di ànd ak ñu ne jotaay bi tey nag ñu war a waxtaan ci ay points yu bëree bëri bi ci njëkk ñeel affrontement yi nga xam te ni ñu ngi koy nemmeeku mu ngi en cours actuellement ñuy wax ak yéen fële ca Ngor mu mel ni daal ñi nga xam ni ñoom ñu dëkk foofu ak force de l'ordre jamono bi ñu wax ak yéen nii ñu ngi ci ay attentat yu métti li ko sabab nag moom mooy dañoo fas yéene jël euh, benn sit bu nekk foofale ci Ngor daal di koy bëgg a tabax ab magasin Auchan ñi nga xam te ni nag ñoom ñoo fa dëkk ñu ne du ci dal ndax foofu noonu dañ ko prévoir pour def li nga xam ni moom mooy ab gendarmerie ginnaaw bi nga xam te ni seen gendarmerie bi nekk foofu noonu da doon euh, inondé ci jamonoy nawet bi ba tax na daal ñoom ñu opposé wu ak ñii di force de l'ordre yi ba jamono bi ñu wax yéen nii am na benn force de l'ordre bu fa manifestant yi blessé ba ñu yóbbu ko fële ca suma assistance suma assistance moom kenn du leen ko waxaat muy clinique bi nga xam ni fa lañ euh, hospitalisé woon kii di Ousmane Sonko waaye tamit dinañu waxtaan ci lu la euh, acte bi nga xam ni kii di njiital réew mi daan na ko def mu mel ni daal comme ni mu ko defee rek euh, habituellement heure bu ñu nee suba la ñuy julli korite mu mel ni daal dafa gracier lu toll ci 586 détenus ñooñ nag bokk ci ñi nga xam ni ay délinquants primaires lañ waaye tamit ñi nga xam ni dañoo mage. ak tamit ñi nga xam te ni dañoo yore euh, jàngoro ñoom it bokk ci ñuñ euh, gracier waaye tamit ñi nga xam te ni ay tuut tànk lañ ñu leen di wax ay mineur ñoom tamit bokk nañ ci ñuñ gracier dinañ waxtaan tamit ci lu ñeel euh, Idrissa Seck ak Macky Sall gis nañ ki ni kii di njiital réew mi daal dinay recevoir kii di Idrissa Seck mu mel ni nag loolu huis clos la doonoon ñoom ñaar ñoo fa nekkoon di waxtaan li jaaxal sénégalais yi nag moom mooy nax dañoo amaat yeneen perspective yu ñu bëgg Euh, daal di euh, tegaat ay jumtukaay yoo xam te ni dinañ ko mën a utiliser waat ñoom ñaar xamuñu tamit ba xam dañoo nekk ci phase de rupture ndax Idy day demal boppam mais jàpp nañ ni fii ak euh, ci kanam tuuti rek dina am ay communiqué yu génn si ñaari camp yi su boobaa amaana dina leer waaye tamit Pastef ba léegi rek ci arrestation yi nga xam ni dañ ko fay nemmeeku mu mel ni fële ca Géejawaay am na tamit kuñ fa jàpp ku ñuy woowee Grand P. Euh, bu ñu sukkandikoo nag seen coordinateur départemental bu Pastef bi nekk foofale ca Guédiawaye di a Diémé moom daal mu ngi dénoncé acte yi nga xam te ni force de l'ordre yi ñëw nañ mu mel ni daal moom nee na lu toll ci juróom benni oto euh, boo takkee nag nit ña ca nekk da yëpp vingtaine de personnes yoo xamante ni ay forces de l'ordre lañ ñoom ñoo nekk foofale di daal mel ni daal arrestation ba dañ koo xaw de ñaawlu 77 842 19 19 ngeen di wéy rek di ànd ak ñun di joxe yéen tamit euh, seen xalaat ci li nga xamante ni moom mooy euh, tolluwaayu dëkk bi mu mel ni daal affrontement yi fi ñu wax yéen nii wax naa leen li ngeen xamante ni moom moo ko sabab mu mel ni daal benn site bu nekk foofale ca euh, Ngor ñi nga xam te ni ñoom ñoo fa dëkk di euh, habitants yi nekk foofu noonu ñoom dañoo fa yéene ne li ñuy euh, déclaré wala bokk lu bëgg moom mooy ñu tabaxal leen foofa lu mel ni ab kii di gendre gendarmerie ba nga xam te ni. dinañ mën a amaat euh, seen ab sécurité ak yu demee noonu mais mu mel ni daal kii di euh, maire ba fa nekk li nga xam ni moom la fas yéene def moom mooy ñu daal di fay euh, tabax lii di magasin bu Auchan ba tax na daal ñoom ñi nga xam te ni ñoom ñooy habitants yi dëkk foofu noonu ñu ne mukk rek du ci daal ba tax na moment bi ñuy wax yéen nii affrontement yi métti na. am na fa benn euh, force de l'ordre boo xamante ni évacué nañ ko fële ca euh, suma assistance ba fi ñu wax ak yéen nii mu ngi jël ay premiers soins mu mel ni daal manifestants yi ñoom ñoo jekkoogul mais ba léegi rek ñii di force de l'ordre yi ñu ngi daw di wër ci mbeddi ngor yi ñoom it dafa mel ni daal ñu ngi daal di euh, jël li nga xam te ni moom mooy seen revanche 77 842 19 19 bu fekkee am na ku nekk si ligne bi rek ñu daal di koy jël. Euh, ànd ak moom ngeen wax tamit ci arrestation yu bëri gis nañ euh, ñi nga xam te ni ñoom ñoo fare Pastef ba récemment rek euh, géejawaay nii am na kuñ fa teg loxo bu mel ni daal ni ñu ko jàppee ñoom ñu ngi koy dénoncé dafa mel ni daal joxuñu ko benn notification boo xam te ni mooy wane dañ ko convoqué dañoo jékki-jékki rek dem këram daal di koy jël fuyate tamit li nga xam te ni moom mooy ay bagage am ay poosam waaye tamit jël ay appareils yi nga xam te ni moom la nekkaloon foofu la ca këram mu mel ni daal loolu it euh, beneen euh, dictature la boo xamante ni sénégalais dañuy wéy rek euh, di ko dénoncer mu mel ni Pastef ñoom ba léegi rek pare guñu ci li nga xam te ni combat bi nga xam te ni moom la waa mouvance présidentielle nekk ak ñoom tamit gis nañ grâce présidentielle bi gisaguñ ci. kenn koo xamante ni dañoo mën a wax ne dafa fare ci Pastef te buñ demee bay gracier lu toll ci 586 euh, détenus yoo xamante ni daal jàpp nañ ne waroon nañ ci mën a boole ñi nga xamante ni ay détenus politique lañ te amaana. Euh, defuñu loo xamante ni lu doy waar la 77 842 19 19 ngeen euh, wëy rek euh, di ànd ak ñun bu fekkee am na ku nekk si ligne bi mu daal di dugg rek joxe xalaatam ci lu ñeel arrestation yu bëri waaye tamit lu ñeel manifestation yi ku ne xam na ne suba incha allah la ñu war a julli ginnaaw bi ñenn ñi jullee tey mais daal foofale ca Ngor. ñoom moom taluñu sax loolu ñu ngay nekk daal di revendiquer seen ay droit ndax dañoo jàpp ne site boobu ñu fas ne def li nga xam te ni moom mooy magasin Auchan bi. Euh, daal ñoom duñ ko fa xaar lañ fa bëgg a def daal moom mooy ab gendarmerie ba mën a continuer di dund ci jàmm ak salaam 77 842 19 19 mu mel ni ñoom it ñu ngi dénoncé carrément acte yi nga xam te ni kii di maire ba fa féete mu ngi koy def ñu di ko wax tamit ñuy exiger daal mu daal di teggi tànkam euh, su ko defee rek ñu daal di leen defal ab gendarmerie foofale ca Ngor bu ko defee euh, ñu daal di mën nekk ci kaaraange gu mucc ayib 77 842. 19 19 antenne libre la rek fu waay mën di nekk mën na woote ci appel normal bi waaye tamit mën na woote ci whatsapp bi rek ngeen woy di ànd ak ñun ci 77 842 19 19 émission boobu di wax sa xalaat ñu defal leen ku ngeen nekk rek di man di yéen tamit li nga xam te ni moom ngeen am comme xalaat ci tolluwaayu réew mi ci aspect politique beeg bu man doon rek fee di bee rek lépp ngeen daal di ñëw rek indi yéen tamit seen contribution ci li nga xam ni moom mooy xew yi 77 842. 19 euh, 19 euh, mu mel ni daal Pastef ka nga xam ni moom lañu fa jàpp euh, buñ sukkandikoo ci seen président boobu noonu di koordinateur départemental bu parti Pastef ba nekk fële ca Géejawaay di wuyo ci turu Yankoba Diémé moom daal moo ñuy xamal que ni. ni nga xam ni noonu lañ jàppee seen membre bii nii ñuy woowee grand P daal jàpp bu doy la dañ ko jaay doole dañ ko humilier tamit deful dara. loo xamante ni moom lañ mën a wax que ni euh, liñ def euh, c'est normal mu mel ni daal foofale la xewee ca parcelle ca unité de bokk ci euh, fale ca Guédiawaye mu mel ni daal moom dañ ko mënoote waaye tamit yóbbu ko fale ca commissariat bu central commissariat central bu dakaar am na ko nekk si bi allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum. oui salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah Seydou ñu ngi lay ziar. ñu ngi leen di ziar yal na yàlla nangu. allahumma amiin ziar. maa ngi jégalu ñu ngi woote pour seen émission boobu. Mm-hmm. di leen nuyu di eh, di nuyu ba Sénégal yëpp ñaan yàlla koor gi lépp ci mu ciy wóor nag yàlla ko sama borom nangu. allahumma wo ñi ñi julli tey ak ñi nar a julli suba. Mm-hmm. ñëpp ñëpp yàlla ñuy suñu borom nangul barke si dugub jël. waaw man nag man maa ngi wootee fii Paris ñun moom julli nañ tey. <laughs> waaye bëggoon na wax rek ci Sénégal googu. Mm-hmm. muy li ñun ñëpp bokk wax dëgg yàlla. Mm-hmm. kenn bëggul mu tàkk. Mm-hmm. waaye dañ bi nii mu commencé nii nañ ci jóg. na ci kilifa yi jóg ndax euh, man sama expérience bu gàtt nekkoon naa. ak Côte d'Ivoire def naa ko vingt deux ans. Mhm. nii la ko commencé woon. Mhm. daal pënu xeex ak corps ak yooyu te corps ak yooyu ñuy xeex ak suñuy suñuy suñuy mbokk lañ suñuy frère lañ suñuy rakk lañ suñuy mag lañ. Mhm. dégg naa nag xaw ma Macky Sall dafa jël ay drone nar ko ci askan wi loolu lu ñaaw la bu fekkee ne am na lu ñaaw la bu dee amut yàlla bu mu am. ndax sëñ bi benn bakkan kese bu wadd bu nekk benn bakkan rek ëpp na waxuma la ak ay bakkan te nguur te nguur Macky Sall nag mi ngi bëgg mi ngi bëgg sikk nag wax dëgg yàlla ku dee ak sa bàmmeel mi ngi bëgg sikk mm-hmm. dañuy ñaan yàlla moom mi nga xam ne moom moo yore sutura yàlla ñu yàlla suturaal ba li ñuy yaakaar ba ba ba lii di commencé am nii yàlla bu mu yàlla bu mu am ndax bu amee du baax mm-hmm. di jégalu nag bëgguma tee sa antenne di jégalu bu baax a baax. waaye daal mhm. mais est-ce que bi lépp lu ñu mën a ma ne mais est tamit euh, ñoom bu fekkente ne dañoo sukkandiku ci dakaar ak Dakaractu rek euh, ñoom ñoo ñu xamal ne. waa mhm. Ngor li nga xam te ni moom lañ bëgg moom mooy def fa ab euh, gendarmerie ndax foofu amul sécurité ak yu demee noonu kii di maire bu fa nekk bëgg fa def magasin Auchan est-ce que tamit loolu nekkul moo waral tey manifestation yu métti yi te gis nañ déjà. habitants euh, yi fa dëkk euh, détermination bi nga xam te ni am nañ ko tey. waa sëñ bi xam nga tey jii bu ñu bu fekkee ne waa dëkk ba dañ ne ñoom bëgguñu ñu dafa nàngam. Mhm. état moom moom mi mbiram. Mhm. état defe naa ne terrain boobu état moo ko moom. Mhm. mais tey état bu muy def day def loo xam ne moom la waa dëkk ba bëgg bu fekkee ne waa dëkk ba dañ ne Auchan la ñu bëgg. même bu fekkee ne état mënut a tabax foofu Auchan mais defe naa ne. du du ay bal moom moo koy wala du du ay grenade wala ay bal moom moo ko war moom moo ko war a mën a moom ko war a mën a saafara mënoon nañoo toog ay kilifa lañ maire bi kilifa la Macky Sall wala ministre wala ministre bi nga xam ne moom moo war a def loolu wala wala député bi nga xam ne moo war a def loolu. Mhm. ñu toog daal waxtaan man bu ma soñoon daal nañ toog waxtaan parce que lépp loo gis lu nekk ci waxtaan lay mujjee même bu ñu géree it bu ñu paree ci waxtaan la ñuy mujjee toog ci benn table waxtaan kon bala ñuy sànni bala ñuy sànni kenn grenade wala ñu fay rey kenn wala ñu fay nañu toog waxtaan ñoom ci seen biir ñi ñëpp ay sénégalais lañ benn dëkk lañu am muy Sénégal benn réew lañu am muy Sénégal benn benn carte d'identité lañu am muy carte d'identité nationalité sénégalais lañu am. Mhm. voilà léegi ma yaakaaroon ne tey même bu ne dañ fay def leneen loo xam ne wax population bi bëgguñu ko waa population bi jógee yow yaa yore yaa yore arme yow yaa yore nguur yaa yore arme yow yaa yore doole. mais doole boo koy jaay da koy jaay beneen dëkk mais bul ko jaay sa waa population. Mhm. nañu toog waxtaan jéem a trouver terrain d'entente. ah man sa man sama xel mu gàtt ma yaakaaroon ne loolu moo gën ñu jël ay bomb di ko dóor xale yi wala ñu jël ay ay ay ay ay grenade di ko sànni xale yi. ku woor ba ngoon. tal nga leneen lu dul di nokki ay grenade nañu waxante dëgg ku dee sa bàmmeel. Mm-hmm. ma baña ma bañ a téye sa antenne ma bàyyi yeneen auditeurs dugg. Mm-hmm. jërëjëf jazakumullah xeyran yal na yàlla def jàmm Sénégal. merci beaucoup allahumma amiin jërëjëf jërëjëf. 77 842 19 19 mu ngi noonu génn wéy rek di ànd ak ñun yéen tamit di joxe seen xalaat ci lu ñeel affrontement bi nga xam te ni moo am jamono bi ñu wax ak foofu foofale ca Ngor. waaye tamit lu ñeel détenu yi nga xam te ni mu ngi gën di bëri ndax gisaat nañ kenn ku ci yees ku ñu jàpp fële ca Parcelles Assainies allo salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi ñu ngi lay ñu ngi dolli. alhamdulilah yaa ngi en direct Feeling Dakar. waaw euh, ne ci émission bi en direct quoi. Mm-hmm, mm-hmm. mooy lii am ni yow. Mm-hmm. waaw vraiment nag euh, man maa ngi tudd Alioune Ndoye. Alioune waa doon lébu daal. waaw waaye daal vraiment affaire bi moom moom moom ni ma ko mën a gisee daal métti na trop surtout ak koor gi ñu nekk nii. weeru àjjuma bi nga xam ni. kilifa yi mën naa ne ñu góor ñi jigéen ñi ku ci nekk yaa ngi daw pour mm-hmm. jéem a préparer sa korité mm-hmm. envers sa famille daal xam nga lima ma wax mm-hmm. voilà mais daal vraiment daal su ma doon nguur xam nga nag ñun suñu nguur gi souvent duy dellu ginnaaw waaw duy faral di dellu ginnaaw mais souvent population bi lu mu bëgg dañ cee war a daw ba tonn man daal pour man comme bëgguñu fa loolu seen ñoo ñoom ñoo fa ne bëgguñu fa te boo dee xool affaire bi ne ne ñoom moomuñu ko nguur gi moomul terrain boobu n'est-ce pas. Mhm. waaw ñoom euh, nee nañ euh, site la boo xamante ni liñ bëggoon ñu def ko fa moom mooy. Euh, waaw xam nga man sànq dama doon xool ci réseaux sociaux bu ma dégg waa ji wax il pare que nguur gi moomul foofu am na ku leen ko may. Mhm. waaw pour man nag comme population bi dañ leen defal lu ñu bëgg mais tamit suñu nguur gi dem da ngay waaru. Mm-hmm. parce que li xamul dox da ngay waaru bi ñun li tax xol yi di gaaw a jub nii toujours toujours toujours injustice bi moo moo moo moo bëri envers ci gouvernement Macky Sall suñu nguur gi mm-hmm. dafa bëri moo tax booy bu ñuy tàngal nii tàngal gi nii c'est que loolu kese la kese mm-hmm. parce que day xëccoonteeg population te population bi waroo xëccoonteeg ñoom da war a dugganteeg ñoom li ñu bëgg nga di ko def parce que tey jii ñoom laa Sénégal ñun ñëpp ñun ñoo ko ñoom ñoo moom ñoom ñoo ñoom ñoo fi ne mais pour man xëccante bi ñoom seen gouvernement bi fu mu bëgg di xëccantoog trop population bi te du noonu da ngay négocier affaire bi da ngay da ngay waxtaan la am na ku génn léegi léegi ni mu ko waxee maa ngi koy rafetlu da ngay da ngay communiquer sa sa sa kii sa population. mais du ñu ne fu ñu ne nii rek nga ne lii arme laa koy fajee wala ay lacrymogène wala di tirer ci ñoom xam nga lii dafa yàgg dafa yàgg trop boo dee xool seen xeex bi mën naa ne depuis semaine passée la yàgg na. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. loolu la quoi te tamit maa ngi ñaan yàlla wi si ndox mu set daal ba kenn ban ba kenn bañ ci rob waaye daal président da ngay communiquer ak say population say mbokk. Hmm. waaye duñ ne nii rek nga yebal ay nit lacrymogène yi ku ci ne di tirer fii sànni fii xam nga dañ loolu kan kiiwul daal. Hmm. te lacrymogène balaa nga koy sànni il faut que dafa am dafa dafa war a jaar ci yoon. du doom dafa mel ni hmm. affaire bi dañ koy jël di ko sànni comme ay gerte caaf te li muy jar dafa ak dëkk bi nu mu méttee. suukar bi. ñi ngi jëm ci korité bi xam nga mette na trop quoi. Hmm. lan ngay wax euh, lan ngay wax ci grâce présidentielle bi. ah. lan ngay wax ci grâce présidentielle bi. lan laay wax ci. grâce présidentielle bi. ci grâce présidentielle bi. non man loolu affaire bi yéen mais yéen xam ngeen nu mu demee <laughs> affaire bi lu ñu ciy wax ñu ngi téye waa kër Sonko yi rek di téye. ñu leen ni bàyyi ñoom bàyyi wuñ leen xam nga. Mm-hmm. man li may man li ma man du ma la nëbbaa man maa ngi dëkk Parcelles Assainies unité 10. Mm-hmm. même le cas de Kaba bii ñu jàpp nii man Kaba xam naa ko nañu bàyyi di collé motif gars yi ñoo xamante nii dañu jug pour liggéey. Mm-hmm. nit ñi dañuy jug pour liggéey mais seen duma ma la nëbb sànq laa loolu laa doon wax sama papa ma ne ko euh, nguuru Macky Sall dañoo yàq ci yi. parce que noo nekk benn gaañ boo xam ne da nga nekk di ñafe ñu naan la da defar ay bomb ay léeg man loolu bi ma ko déggee damaa man dama waaru sax. Mhm. vraiment. Mhm. jikko koy dafa yàqu quoi. te nag attention nag ñun dañoo bëgg koo xam ne day tenir kàddoom. Mhm. da nga ne woon ci ngay yem. parce que kilifa yi il faut ñuy wax dëgg. na nga ma baal ci kàddu bi. pour xale yi nekk ci ginnaaw mun na di topp seen tànk yi. mënoon na yow ni nga nga jàkkaarloog nit ñi ñëpp. Sénégal yëpp dina seetaan nga ne man deux mandats lay def. leem mhm. leem yëpp xam nga lan la. Mhm. génne défilé wane ay armes yooyu yëpp pour bëgg a xookatal nit ñi kese la. mais duñ ci dellu ginnaaw. moom moom na xam ne ñaari mandat la fi am day dem keneen ñëw. jërëjëf kenn du ne liggéeyul liggéey na mais nag nit kàddu da nga ko war a tenir. Mhm. boo dee kilifa da ngay tenir sa kàddu pour xale yi nekk sa ginnaaw mën di teg man di jël seen tànk yi di ko teg fi ñu ko teg. mais wax waxee bi dafa bëri trop quoi. Hmm, gaspillage millions yi te tamit nguuru Macky Sall dafa bëri injustice. da ngay gis ko fiy blanchir argent ngay doxandu ah. Hmm. ah ñu fi tëj ñoo xamante ni vraiment waruñu leen tëj le cas de li gën a metti sax démb woote naa ko mu nga baal ma ci kii bi réew mi FM woote naa ko le cas de Sitor. Hmm. mais da ngay xool affaire bi nu mu demee daal vraiment Sitor bàyyi nañ ko mu libre. Sonko mi nga xamante ni amul dara dara dara dara lu leer ci moom docteur bi dafa leeral ay mbiram kii nga xamante ni da cee tax rib mu ngi nii bàyyi nañ ko këram a dem toog man lenn laay wax kon sunkoo waratuñ koo toppate dara te dañ ko delloo passeport mu dugg fi mu war a dugg parce que dañ ko war a fal comme président. Hmm. voilà. jërëjëf c'est ça voilà jërëjëf. allo salaamaaleykum. alo salaamaaleykum allo alo waaw maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw naka mu yaa ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. naka koor gi nag. waaw ñu ngi si jàmm alhamdulilah de. maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax naka yitte yi. Mhm, ñu ngi delloo ziar bu baax a baax. Veuillez ne pas quitter, votre correspondant est en communication. Euh, baal ma nga dugg si waat allo allo waaw man maa ngi en direct Feeling Dakar. aywa ah, oui yaa ngi en direct Feeling Dakar. voilà ok yow moom samay faral di woote foofu noonu quoi hmm. parfois nii. jërëjëf merci beaucoup. waaw mais man dama bëggoon a participer. Hmm. si situation dëkk bi nu mu demee nii quoi. Hmm. waaw sa benn instant tamit dama bëggoon comme yéen journaliste yi tamit yéen war ngeen di seen information yi gars yi war nañ koy gëstuwaat bu baax ngeen di gëstu ba des bonnes informations. waaw ba pare beneen bi tamit mooy gars yi dañu war di sax mën na gëstu information parce te tey jii su nga comme gars yi affaire problème mu wax kii am ngor noonu. Hmm. maire bi si boppam moom génn moom keroog wax ci benn euh, site internet nii. Hmm. seen comme seen naataango yooyu dégg naa ko man mu wax moom ci boppam. Hmm. parce que boo xoolee problème mu parking boobu noonu ñu ñu ñu waa gendarmerie bëggoon jël foofu def ko gendarmerie. foofu parking boobu moom wax na mu ne si ay jamono si aussi bi bi mu amee foofu noonu ka si Karim Wade xam nga leneen état bi joxoon parking boobu noonu pour gars yi bu ñëwee foofu ñu am fu ñuy def ñu fan ko parking. Mm-hmm. mais tey jii mairie kii bi mu doon sax gendarmerie bi fi mu nekkoon da doon inondé foofu léegi ñoom li ñu amoon ci ay mètres carrés yaakaar naa tollu wuloon ci ay deux cent mètres cinquante xamul deux cent mètres carrés sax matu ko woon léegi nag fi ñu leen bëggoon a jox tollu woon na ci ay trois cent mètres carrés. Mm-hmm. mais dañu waxoon tamit ne ñoom dañu amoon ay sites yoo xamante ni gouverneur bi dem na waxtaan si waxtaan si général Moussa Fall pour ñu xool euh, yan côté la ñu mën a am site bu ñu leen jox bañ d'accordoon si mais après à la fin ñoom dañ dem ba ci gis ne foofu noonu ne jamono ay jamono na maanaam comme aussi bi euh, bi mu amee foofu parcelle boobu dafa nekk ci loxoy état. Mhm. léegi ñoom gendarmerie ñoom ñu gis ne kayit yi euh, état moo ko moom quoi moo tax ñoom ñu bëgg a ñëw rek exploiter zone bi quoi. te li ñuy exploité dafa bëri dafa yaatu trop te foofu noonu ñuy wax noonu ne Ngor amul lycée même seen maire bi fu mu nekk noonu dafay taar te tey jii nii amul lycée amul CM amul lycée waxuma laa CM bu xale Ngor yi bu ñu demee ba nga xam ne jàng nañ war dem sixième dañuy jógee dem yeneen quartier dem di fa jàng ji te loolu c'est pas normal mm-hmm. war nañ am foo xamante ne bii ñoom dañ ko war a exploité zone boo xam ne pour ñoom pour ñu def ko lycée wala CM boo xamante ni pour élèves yi bu ñu demee ba nga xamante ni ci niveau euh, entrance ci da doo ko mën a dem jàngee pour mën a dem jàngee ji foofu noonu quoi mën fa def école. Mm-hmm. waaw loolu da dafay nekk information yoo xamante ni dañ ci day jaadu ñu xam ko xam ne situation bi li ko waral comme egg fii. mooy après ñëw rek bëgg a exploité bi sans ñu waxtaan si ak waa dëkk bi ba déggoo ci. ba pare ñu bëgg a ñëw moo lépp te Ngor bu ñu toll nii ñëpp xam nañ ne espace presque ko. Mhm. waaw léegi nag bu fekkee ne situation bi compliqué na ba yegg si fii ñu waroon a toog waxtaan ci commencement bi. Mhm. Euh, gis naa dégg naa maire bi bu ñu ñëwee ñoom di négocier di waxtaan ak gars yi. Mhm. mais ñoom gendarmerie dafa am tamit ñoom benn rôle boo xam ne dañ ko war di jouer ñoom chaque jour ci seen diggante ak euh, surtout les autorités. ñu respecté tamit population ci benn benn côté parce que tey da gis ay député ay maire ñëw di ngay ñëw nga taxaw di wax la gendarmerie pour pour ngeen di wax pour trouver une terrain d'entente mais bala ngay expliquer ñoom ñu leen jëkk wax dañ lay humilier ne la dégage dispersez bala ngay taxaw di expliquer ñaari ba ñett ñu ne leen c' est que loolu mooy indi situation yi ni muy compliqué quoi parce que tey jii ngay gisee nii waa même même gis nga jeunes ñi ak gars yi xeex bi nga xeex nii xam nga la moo ko indi. Hmm. gis nga ñoom bu ñu taxawee gendarmerie taxaw doo mos a gis jeunes yi yëkkati xeex xaañ leen. doo hmm. mos a gis nit ñi leen ñoom mais saa yu xeex affrontement amee rek mooy ñoom seen bopp ñoom ñooy provoqué da ngay jékki ngeen taxaw fi ñu taxaw ñu gazé leen. léegi bu leen gazé booy yu for ay xeex sànni. comprendre nga léegi nag comme loolu mooy tax situation yi di critiquer ba yegg si foo xam ne war di si yegg bi parce que tey jii Sénégal fi ñu toll nii lu bëree bëri bëri quoi te bañ a yu mel nii di am ci dëkk parce que tey jii li ngay gis nii man li ma ci jàngat ko mooy ñi ngi dugal bopp booy si si seen seen xel ne ñoom dañuy maanaam dama jàpp ne genre entraînement la ci xale yi. parce que dañ leen di gën a ñemeloo gendarmerie gën a ñemeloo force de l'ordre bi léegi lii dañuy dem ba dañ koy miin. te buñ ko miinee dañ ci am expérience te bu ñu demee ba am ci expérience yu nga bët bu ñu demee ba nga xamante ni bii dëkk bi fipp nañ ba nga xam ne ñu ngi toll ci jaamaloo ñoom mm-hmm. dañu am ay stratégies yoo xam ne ci lii lañ koy jàngee ba man ko kon lii nii warul di faral di am tout temps foo toll bu amul ngor mu ngi am wakaam bu amul wakaam mu ngi am feneen c'est que yooyu moo moo dul yoon quoi ak manifestation yeeg feneen ak feneen bu nekkul politique mu ngi nekk affaire localité wala yoon ak yooyu yooyu wala affaire nangu ay suuf ak affaire yooyu yooyu ñuy jaaxarloo bu yàggee da ngay dem dem ba ñoom dañuy am euh, euh, maanaam dañ koy miin quoi te buñ ko miinee rek mën na jur ay musiba yow ak euh, ba pare dootul yomb ci ñoom ci gendarme yi si ñoom ak policiers yi du yomb si ñoom ndax lu yomb ci moom mooy doy booy dañuy dem ba tàmm am stratégie boo xam ne ñoom après dañ koy mën a teg parce que tey jii maa ngi dégg ci yenn am na ay cocktail molotov yi booy di créer du leen ko du leen ko xaaj. Mm-hmm. xam nga yooyu dafay gën a gravité les choses moo tax il faut ñu jéem a bàyyi xel yi bu baax a baax a baax quoi ñu xalaataat bu baax. yow nga xam ne Sénégal fii nii bëgguñu lii warul di continuer di fi am ma ne actuellement yaa ngi ngor nga dëkk wala kenn ku ci nekk côté côté côté état ak tout le monde a nañ jël sa responsabilité. Mhm. parce que yii di raam nii dina mën a yegg foo xamante ni bii mais ñu ñu bëri nañ ko regretté de. Mhm. man même yéen ñi nekk ci terrain bi yéen yéen yéen ñi nekk ci terrain bi nii yéen di ngeen ciy gis loo xamante ni jàngat la boo xam ne bu am solo boo xam ne da ngeen ko ci am yéen. Mhm. comprendre la beneen bi tamit mooy wax mooy wax mooy mooy seen moromu journaliste yi. Euh, war ngeen gën a góor góorgóorlu ci seen bopp parce que tey jii yéen ñi ngeen gis nii man bi ngeen gis seen naataango journaliste yi boo leen génnee ci terrain yéen da leen di gaase beneen bi mm-hmm. mooy Pape euh, Pape ko jàppee ba léegi nii man gisuma journaliste yi journaliste yi mobilisé ñu marche wala ñu mënu ñu dénoncé ko maanaam même seen média yi sax très maa ngay dégg ñu ko ci wax yenn quelques seen yi ñoom ñoo koy wax mu mel ni yéen du seen naataango bi nga xam ne yéen bokk liggéey bi moom lañ teg moom moo nekk ci nattu da ngeen war a génn ngeen dooleel ko moom fi mu nekk noonu pour pour ëllëg ñu mu ngeen ngir bu bu def bu dalee keneen si yéen ñu mën leen parce que bu fekkee na man tey métti naqarlu ma lii bu ëllëgee ba ma dalee keneen tamit du ko naqar da nga war a boole ngeen doon benn parce que tey jii nii le cas de kii Faye Diomaye Diomaye Faye mm-hmm. mais pourtant naataangoon bi nga xamante ni dañ ko jàpp même pas douze heures de temps ñoom génn nañ def communiqué nañ ñoom grève nañ génne marche nañ ko ni ko naxarlu comprendre mm. kon yéen tamit war ngeen jël seen responsable ngeen xam ne yéen yéen ay journalistes yi yéen seen seen seen famille. Mm-hmm. man si sama xalaat quoi maa ngi jégalu nag ci kàddu sama xalaat te gars yi tamit ñu joxe les bonnes informations. yow fi ñu ñu joxe les euh, informations fiables. man actuellement yaa ngi ngor wala. ah. man actuellement yaa ngi ngor wala. ndax maa ngi ngor. waaw. non non man ay yu ma xam la de nekk ma ngor maa ngi Joal Joal Fadiouth laay wootee. ok merci waaw mais man maa ngi dëkk Tëngéej laa dëkk mais maa ngi à Joal Fadiouth. Hmm, jërëjëf. waaw ok jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup. 77 842 19 19 waa di wax rek ñu ngi jégalu euh, dañoo trompé wu ci information bi mais li nga xam te ni moom moo fa xew exactement rek moom mooy. Euh, gendarmerie bi ñoom ñoo bëgg daal di tabax benn parking foofale ca euh, benn site bu nekk ci Ngor daal di population ma nag daal di koy bañ. ba tax na daal fi ñu toll nii loolu lañ jàppaat d'après information yi mujjee amaat nii que ni loolu moo daal di euh, sabab euh, li nga xam te ni moom mooy euh, affrontement yi am jamono bi ñuy wax ak yéen am na ku nekk bi allo salaamaaleykum. maaleykum. jaar a si jàmm bu baax. alhamdulilah. waaw alhamdulilah. maanaam li may ma damaa am ko woon wax sama xalaat bala ma ñëw tamit muy ak TFM. Mm-hmm. man dama ne traité Sénégal ñoo ko yor maa ngi moom l'observateur ñoom kan lañ man ndax leen xam ne dañuy dañuy jékki-jékki jàpp ñaar booy naan dañuy jàpp ko koppal mel ni dañu mënoon tànn mënuñoo lool loolu xanaa dañuy wax wax dëgg te yàlla tax. journaliste yi loo xam duñu wax dëgg dañuy dañuy confilé mbir. ah munu maanaam boo na chanté plateau dañu woon naa fekk kuréel maa ngi gis Mouhamed Ndiaye wax naan dangaa war a armé xaw ma la républicain lan mooy républicain nga xam ne Sonko bëgg wax te ñu mënu ñu ñu revue de presse ma maanaam ñam borom APR ba nekk fee sax bu ko defee dana ko revue de presse lu waa APR dana ko revue de presse mais l'observateur nañ ñett nit te bàyyi nañ dimbali nit ñi xef tëpp ñu génne ñett bu daa mel suñu génne ñett nit ne defañ cocktail molotov kon nañ dem nañ dem yoo yoo ñaata cocktail molotov la ko gis ah mhm. pratiquement toog daa jël ñu ñu ay commando ay force yi loolu lépp ñoom ñoo fiy sulle l'observateur moom kenn lañ man nga xam ne dañoo mën a fen ñuy wax loo xam journaliste bi loo xam ne ñu ñooñu baaxul li may njëkk wax ak affaire bi am ñu wax mooy Macky Sall lim maanaam ñoom dañoo yàq tànkoon rek yàq police yàqale parce que seen lépp rapport da jàpp nañ ñoom doole la état da ngay mel ne Ablaye Wade fii maanaam oto yi ngay gis ñi ak armée yi yëpp jamonoy Wade daawoo ko gis te mënoon na koo def mais xam nga bu yow li ñuy xeex am nañ ci droit yow suuf si pourquoi ñun dañ ko def xam nga moom lépp mu doole la. maire bi wax na imaam bi wax na maanaam gendarmerie booy wax ak ñoom te wax yi ci yeneen réew yi. man bala maa dee Sénégal ñu ne armée républicaine du am benn armée jaay doole parce que gendarmerie dañoo a nekk nii. manifestation bi am bi ma wax benn benn police mu naan mën na ko mayew ma dara. yéen da ngeen a xam policiers yi ñenn ñi moom jànguñu xamuñu dara. jërëjëf mais Sénégal lii lii yàlla xam na Macky Sall indi na fi loo xam ne boo xoolee depuis Bokk Saal sa amul woon moom léppam doole la. boo xoolee kanam nga xam ne du nit ku baax. léppam doole la fitna dóor gaase su naan la sii man fa la si jar gaase ah waaw waaye yow li ñuy xeex dëgg la koor bi metti yi xam nga ne xeexoo ko ci ngeen. moom lépp lépp doole la mooy zone gendarmerie wala maa de ñu mel ne ñoom ay yàlla yu ndaw dañ leen a formé ñoom ko koy wax yow mooy seen français yi bon ñu la xamuñu dara jànguñu tus ah sëñ dafa mett ci xool parce que man maa ngi man maa ngi lay woo fii Dakar mais dëkk bi kenn mënut a nooyi sama saal dafa bëgg xeexal ci wax Abdou Diouf mosu fi am ab Abdoulaye Wade mosu fee indi lii lii mu indi Sénégal mosu fee am boo demoon Niger gii weesu na indi troisième mandat Cap Vert weesu ñëpp weesu na xool journaliste yi boo waxee Bamba Kassé du wax te waa ji wax dëgg la da ngeen a war a gën a mbooloo. Mhm. ah lépp lu leen yàq lii TFM l'observateur la lépp luñ bind man ci TFM laay déglu si rajo ay nit la yoo xam duñ wax dëgg nañ xool yàlla te yàlla tax liñ yàq si dundu doomu aadama yi bëri nañ journaliste mu ñu dàq fen ci àddina bi mooy l'observateur dañ ñu ci dara. jërëjëf jërëjëf. allo salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waaw na ñu sant yàlla bu baax bàyyi si jàmm. loolu jàmm baaxee. alhamdulilah. dama doon seeraan seen chaîne YouTube ma gis benn kii te comprendre mu quoi mooy problème mu ngor noonu. damaa amul lan moo ko soxla. Hmm, mu nekk ab bi bëggoon a xam lan la quoi. Hmm, yaa ngi ci ligne bi. waaw maa ngi leen hmm. allo. allo oui. mais dama doon seeraan seen seen benn live léegi ñu wane ngor quoi ñuy taal ko mu doon laaj lan moo xew ko quoi. ah ok gendarmerie bi nekk foofu noonu. waaw. Euh, ñoom ñoo bëgg tabax foofu benn parking. tabax foofu. benn parking. benn parking. Mhm. waaw. léegi population ba rek dañoo lànk ne du fi amee. ah ñoo duñ ko fa tabax. Mhm. d'après information yi mujjee jot. Mhm. ah léegi may ñëw lu tax la moo tax ñu taal kër Farba Ngom moom. Euh, baal ma. dama dégg ñëw dañoo taal kër Farba Ngom. Euh, information boobu nag mais actuellement daal ñu ngi nekk di affronter. Euh, force de l'ordre yi ñii di population bi ñu ngi nekk di leen moment bi ñuy wax ak yéen nii. ah ok kon ñoom am problème mu sànq ñoom sànq yi daal ñoo problème quoi. Mm-hmm, ñoo am problème. merci waay ku baax ñu lay ziar. ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah. man de maa ngi si daan xew xew bi yëpp seen seen li ci bi laa weesu daal. dinañ def lu am solo. dëgg yàlla ñu ngi toog di xam xew kon yëpp wax dëgg yàlla. jërëjëf. nag ñun ñun ñun xam ne moom la ñu jàpp nag mooy ñoom lu ñu ñoom ñoo nekk ñoom lu ñuy xeex. ñu waa ngoon ñu bañ. nañ baal ma baal ma nga génn écouteur bi bu fekkee da nga yor écouteur. waaw. allo allo oui. yaa may dégg quoi. man la waaw man la dégg c'est bon. waaw man ne ñoom nag li ngay xeex nag ñoom ñoo nekk ci yoon. Mm-hmm. waaw ndax nañ leen bàyyee liñ moom. Mm-hmm. waaw man loolu laa jàpp ndaxte instant bii nii instant bi nii jaay doole bi dafa bëri trop trop trop trop. Mm-hmm. dafa bari trop. waaw waaw nañ bàyyi jaay doole gi fi mu ne nii rek ñu génne takk déeri teg génn takk déeri teg di dóor lacrymogène xamuñ ne lacrymogène dafa seet. ah waaye loolu dafa doy waaye sëñ bi dafa doy réew mi daal doy na waar réew mi daal kenn du wax. Mhm. doy na waar de yal nañu yàlla yërëm. jërëjëf. ñu ngi jégalu ngeen woy rek di ànd ak ñun joxe seen xalaat. ci affrontement yi nga xam ni moom moo xew actuellement fële ca Ngor wax nañ leen euh, d'après information yi mujjee jot moom mooy gendarmerie bi nekk foofa ñoom ñoo bëgg tabax ci benn site euh, seen benn parking te population bi nga xam ni ñoom ñoo nekk foofa dañ koo daal di bañ. ba tax na daal fi ñuy wax ak yéen nii affaire mu ngi mel ni euh, tulleek mel la 77 842 19 19 ngeen woy rek di ànd ak ñun waaye tamit ñu wax. ci lu ñeel grâce présidentielle bi nga xam te ni lu toll ci cinq cent quatre-vingt-six détenus allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar ngeen def. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. Hmm, aywa ñu ngi lay teelu allo. allo oui maa ngi dégg yaa ngi si direct bi waaw. mais xanaa nekkuma en direct. waaw yaa ngi en direct maa ngi lay déglu. allo oui yaa ngi direct yow laa déglu. maa ngi delloo ziar na fi ñu tey. ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. yéen a si jàmm. ñu ngi si jàmm bu baax kay. waaw mais man vraiment Italie laa nekk quoi. Mhm. mais mais senegal bii li fay xew da ngay am gàcc sax. allo allo oui maa ngi lay déglu. Euh, lii nii dafa rus ñu trop quoi. Mhm. parce que parce que suñu problème mooy ñun lépp jaay doole la. Mhm. mais doole fa ñun dara parce que nit il faut ngay waxtaan ak population bu dëgg. Mhm. njaboot sax boo leen yoree léegi nii njaboot. bu njëkk ak léegi du benn boo leen yore dangay waxtaan fexe ñu ñëwee la dugg mais dëkk boo xam ne yow dañuy ruus sax yow ruus tant que sénégalais dañuy ruus yow ñuy nekk heure yëpp dañuy ruus. Mhm. parce que lii c'est village. Mhm. dëkk boo xam ne jaay doole lépp doole la. amul waxtaan amul négocier amul dara. mooy vraiment dañuy ruus sax loolu loolu vraiment xamatuma sax lu ma wax ndax xol bu jeex ko dëkk li fay xew la injustice boo xam ne yow ah tant laa dem police. fii sànq dem police mais boo gisee ni ñu ma tatagale mais dama dama dama dama dama rus sax. Hmm. benn document bu fa mais vraiment da da nga naan non mais c'est extraordinaire. ah mais weeru koor yi ñuy sonal nit ñi ni comme ça ay lacrymogène ngay dóor ah am asma mais hmm, non sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf. jërëjëf. 77 842 19 19 ngeen wéy rek euh, di ànd ak ñun di joxe seen xalaat ci lu ñeel affrontement yi nga xamante ni moom moo xew fële ca Ngor waaye tamit euh, ni ma ko waxee woon rek euh, grâce présidentielle bi mu mel ni lu toll ci 586 personnes yoo xamante ni dañ leen daal di gracier ni ki tey allo salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw nu lay di ziar baax di rafetlu seen liggéey. alhamdulilah jërëjëf. daal yéen ñu koy yéen ñu koy wan vraiment kontaan nañ seen liggéey bu baax a baax. Mm-hmm. waaw ma ñëwoon tuuti laa tuuti rek xam nga Sénégal nag gars yi gis nga gars yi ñoom fekk gis nga fee boo bëggee dégg-dégg boo dee dégg rek ngeen bëgg a dégg. Mm-hmm. fee lépp lu fa am du leen lu ak reewante ak reewante kese moo fa am. Mm-hmm. ndax ndax ñoom kenn la laal seen kër bàyyi kenn laal seen kër baay kenn laal dara nguur kenn mënut a xeex ak moom. nan waxaan dëgg yow li ñu soxla nañ ko ñen ñoo ko soxla mooy ñi xam se ñoom noo yor suñu lan mooy ndey ñu taxaw naa fii wala ñu ko faa jël nañu wax dëgg te yàlla tax man ñun ban réew lañ nekk. bu mm-hmm. bu demee ba bu demee mi nga xam te ñi nga xam ne war kaaraange réew mi ñoom ñu soxla benn place ñu ne waa dëkk waa koñ ba ñëw nii du ngeen ko fa def mais ñun ban dëkk lañ. est-ce que tamit nekkul. si ma gis leen bàyyee. man est-ce que nekkul si boobu ñoom ñoo ko moom. non non non mënuñu ko moom parce que koy jël te kër yooyu sax boo état sax day day ñoom ñëpp da leen dëcc di loolu kay ñëpp ko jël jërul ñëpp di ko wax. kër yooyu bu ñu am bu mhm. sax nit mhm. ñu mhm. foofu am lu mu fa soxla da koy ñëw day ñëw denc ñoom ñëpp lay jël yóbbu leen feneen ñu dem dëkk ba mu def fa la mu fa soxla gis nga réew mi nañ di wax dëgg te yàlla tax gisee yii ñuy def réew ne kese la kun si jàpp la jàpp àtte may nit man foofu laa ko jàpp parce que yéen ñi nag maslaa bu bëri mooy li ma Macky Sall bi moom maslaa Sénégal yu bëree bëri xamuñu démocratie dañ wax dëgg te yàlla ku gis ni nii dox ne xam xamuñu démocratie mhm. dama damaa bëgg Sénégal si moom ñu am xel nu yeewu xam ne nit am réew dafa am loi loi dafa am yoon am réew am dëkk même dëkk kër gi nga moom sax bu ko état soo da lay da koy nangu jox la jox la feneen wóotu maag la yow lu xam ne moom moo ko sa bàyyi moom ko sa yaay moom ko sa maam moom ko état moo moom kii public la ba ne ba ne public ñëpp a ko bokk lu ñëpp bokk na bu bu ñi nga xam te noo yor ñoo yor sa karange bu ñu ko soxlaa yow da nga da ngaa war a tàccu sa kontaan mais yow ñi solo sa karange ñoo soxla foofu nga ne ko déedéet mooy ne ñoom duñu bëgg kon du nekk ko def ay ay agression ay ay sàcc ak pour ñu def yëpp pour boobu bañ a am sécurité mm-hmm. ñoom ñu nekk jubul parce que ku jub doo doo waroo bañ yooyu dafa am yow ñoo xam ne ñoo pour sa dëkk sa koñ am loolu war see sant yàlla war a kontaan mais ni dox ñax di yàq yi di yàq yi fi jàpp di taal ay kii kun si jàpp na la jàpp àttray nit c'est ça le problème Sénégal yi na Macky Sall dem na jël benn responsabilité bu dee mënu ko na jël ay nit ñu xam ne ñu mu jox mu jox leen mu jox leen mu jox leen ay doombay tàng ñu régler Sénégal mu jeex faxal yi dafa yomb hmm. lépp esprit yëpp Ousmane Sonko yàq na esprit yëpp mooy li ma wax nii rek ñii dugg yi xeex yëpp mooy Sonko Sonko yi noo fi ne routement lu rawat la yow nguur bu xam ne muy armée ñoom noo soxla muy police gendarmerie ak ku mat doon yor sa sécurité ñëw ne foofu la soxla dañ ko doo fi amee di yàq taal fu mu am Sénégal dong la am moo demal indépendance bi foofu hmm. Sénégal yet la xam gis nañu ne leen dóor yet kay ku ci jàpp la yëpp xam ne xorom la nu laal la xorom parce que li mooy lan léegi dañuy yow di sabota Sénégal naa ay Sénégal amul amul sécurité Sénégal euh, ay jaay doole nit ñi jaay doole lii du jaay doole sin moom bu état neex day nangu kër gi jox leen feneen ñaata dëkk leen ñaata village leen toxal ñaata dëkk leen toxal mais est-ce que am na ñoo xam leen di wax ne dëgg te yàlla est-ce que ñoom mënuñoo na waxtaan balaa ñu yegg si fii nii yii yëpp gis nga saa ñi ko mën a réewane fu mu xas baam mënoo réewasaane leen wax dëgg yàlla tax réewane fu mu xas baam waxtaan mul faam gis nga jamono ji tool genre ñu bëree bëri dafa am ñoo xam ne rek seen suuf di leen buux te noo ngi seen kër ñi leen di buux xale yi noo ngi seen kër tëdd naa la jóg leen bu leen ko nangu jóg leen bu leen ko nangu noonu leen bëgg a jaay doole ñoo bëgg a jaay ko doole ñu bëgg a jaay nit doole ëpp liñ li moo di. mais xam ne booy yi xam boo leen gisee ñoom dañuy xeex xam nga booy boo si jot eh, ay doon jox ko micro du xam ne lu mu la ay dañ ñoo dañ koo nangu yow bu doon sax man dañ koo jox ko tubaab boo doon jox ko naar boo doon jox ko géej bu def nga mën a wax mais yow noo ko soxla yow sa sa sa soxla xanaa yow sa kër gi soxla yow li ko war a jox pour ay yi ni def te xam ne Sénégal ñun ñoo ko bokk kenn koo xar ñaar réew mi gis nga na na na gars yi xaw ma kan mooy justice ak kii àtte bu mu baal kenn ku ñu jàpp na la jàpp àtte ku rey nit c'est ça le problème parce que yëpp yërmande gi la bu nu kenn ku ci jàpp na yoon li ñuy def ko jàpp dëgg leen ko noonu billaahi wallaahi ko léegi Sénégal nekk ci jàmm yéen ñi réewane kese ak lekk ba suur naan Sénégal néexu Sénégal néexu réewane kese la yow lu toll nit ñi koor suba nit a dem jàmm yàlla ñoom ñaan yàlla nga ne si di sànni ay xeer di di door ay di yàq fi jàmbur di bëgg loo sàcc rek la loolu lépp bëgg lu sàcc kese la. jërëjëf waaw maa ngi leen di siyaar baax di leen fekkee. jërëjëf di defal baax a baax. jërëjëf ok. allo salaamaaleykum. ah moom maa ngi ci direct bi non. waaw yaa ngi en direct sànq lay tontu. Mhm, <laughs> maa ngi lay woowee maa ngi lay woowee depuis Madrid quoi dama toogoon di déglu. Mhm. ma dégg muy wax quoi mais boo ko déggee ni muy wax rek xam ne moom muusul. amul xel comprends nga dèjà mi ngi jël affaire yi ba ko yóbbu ci ay sopp <laughs> billaahi non Sénégal dëkk bu dëkk bu ñu jara om ay tour bu dee ay tour am na war nañu tuural Sénégal quoi parce que daf ci am yenn sénégalais yu nga xamante ni bi seen xel yi baaxul duñu xalaat comprend nga. Hmm. voilà loolu noonu il faut gars yi gis ko parce que réew mi dafa bëri ñu nga xamante ni jàngu jànguñu su ma nee jàngu jànguñu nag mooy maanaam amuñu. culture générale quoi. comprendre li may expliqué. bu fekkee ni nit ki am na culture générale xam na bu baax a baax a baax àddina nu muy doxee ak lépp nu muy doxee. warul dugg xoolam mi dugg rek commencé naa ne Ousmane Sonko yi laa ci jéem a wax. Mm-hmm. dañoo nekk ci benn réew bu nga xamante ni bii. Mm-hmm. dafa jëm ci dictature. moom moomu di wax nee na Sénégal nañu wax dëgg te yàlla tax mais moom nekkul di wax dëgg te yàlla tax te moom bu fekkoon ni day wax dëgg te yàlla tax war a tax xool injustice bi nga xamante ni bi gars yi ñu ngi koy teg Sénégalais yi Sénégalais yi benn ku ci nekk yaa ngi ci injustice maanaam ñu ngi lay teg ay injustice ñu koy subir comprends nga. Mhm. voilà moom nag moom bu fekkee ni moom wax dëgg moo ko moo ko moo ko tax a jóg dëggantaan. war na mën a wax maanaam injustice bi nga xam ne ñu ngi koy teg Sénégalais yi mu wax ci. jàpp tëj jàpp takkal bracelet gazé ah ay sénégalais nga leen di lu ñu dem waxtaan lépp ñu teg ci table di négocier am benn tourné benn terrain d'entente jàmm am mais duñ ko def lépp jaay doole lépp gazé génne armée dóor tëj rey ah. Mhm. moi je en général. barki alxuraan Sénégal bu jag rek laa bëgg. billaay wallaay Sénégal bu jag rek laa bëgg ñun ñu nekk fii nii Europe. Mm. tuñ normal sax. parce que any time xam nga ñu ngi dugg ci YouTube du di senegal Sénégal stress bi fa nekk nelawatuñ yandoor billaay wallaay wa taalaay teg nañu fi nga trop. Mm. mais boo ci gisee benn man xaw Mandori mu mel ni waa ji dugg sànq di woote di wax waxi dof mm-hmm. man la tam waaye kooku bu ko kenn déglu genre nit yow bu ñu wootee di wax da nga leen coupé parce que wax yi équilibré ak alxuraan. jërëjëf yàlla na Sénégal am jàmm. alhamdulilah moom la ñëpp di ñaan. jërëjëf waaye du nii du nii. jërëjëf. ok merci. allo salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum sama waa ji man maa la woowoon sànq man maa woote woon Joal ah. Mm-hmm. waaw mais gis nga gars yi bu ñu yàq débat bi parce que wax sa xalaat bi bu ñu ko changé débat bi parce que affaire bi du problème mu problème mu affaire de politique ay Ousmane Sonko. xam nga ay takkar ay place lekk ay jàpp ay nit affaire yi affaire locale la. Mhm. localité la maanaam affaire ngor la. Mhm. mooy li ma lay wax ci terrain bi nga loolu parking boobu noonu ngay gis noonu loolu parking bi li tax gendarmerie yi bëgg fa tabax foofu noonu waa Ngor ñoo leen woore. Mhm. ñoom gendarmerie bi muy taa ñoom dañoo jógoon dem nar dem seen yoon. pour gars yi xam affaire bi nu mu demee lañu naroon dem ñoom bi ñu naree dem ñoom ñu ne ñoom comme ñoom Ngor insécurité bu gendarmerie amul foofu insécurité daf fay am te population bi dañ leen war a dañoo war a nekk ci ñoom ñoo dem ñoo wooy ci gendarmerie yi mhm. ñoom ñoo demoon dem gendarmerie wax leen ne bu leen dem ñëw leen comme si ngeen nekk dafay taa ñu jéem a xool foo xamante ni bii dina leen sa mën a def ngeen def sa gendarmerie même bu fekk ay conteneur la sax ñu jël ko teg ko foofu noonu bu ko defee ñu def ko gendarmerie comprendre nga li tax gendarmerie yi ñëw gendarmerie yi ñëw bëgg a tabax foofu bi ñu xoolee sur boobu dañu gis ne zone bi fu foofu noonu ci parking boobu kayit yi moo ko moom. Mhm. mais léegi lan mooy problème bi même bu fekkee état moo ko moom état du yoon. même bu fekkee moo ko moom te mairie euh, maanaam ab mairie nekk ci dëkk bi foofu noonu ñoom bala ñuy def dara dañu war a waxtaan ak mairie bi ñu ànd ñoom bokkul liggéeyandoo léegi nag problème bi mooy malentendu bi foofu la amee. kon gars yi bu fekkee dañuy ñëw dañuy wax seen xalaat nañu wax ci xew xew bi xew Ngor fii Ngor fii mais dañuy ñëw dugg ci injustice ak Ousmane Sonko affaire Ousmane Sonko amul fii parce que son Ousmane Sonko loolu leneen la loolu affaire politique la leneen la mais lii affaire citoyen yi peuple peuple kii Ngor bi la ak gendarmerie ñoom ñoo problème kon bu ñu ñëwee ci débat bi di ci wax seen xalaat nañu wax ci loolu. waaw mais gars yi bañ a changé débat bi quoi. di ci dugal yeneen si bu dul loolu dañuy yàq sa émission bi. waaw parce que kii day wax lii keneen ñëw mi ngi ngay débat contradictoire te loolu loolu du wax du loolu suñu xalaat bi ñu koy wax dañuy wax ci sujet bi tax mooy xew-xew bi am ngoor nii beneen bi mooy maa ngi gis benn waaye am lakk kër Farba Ngom ko non man jotuma information yi information yi mais information yi ñu déggee ne dañuy saccage kër ak saccage kër ak lakk kër bokkul. man mm-hmm. voilà yu mel noonu peut être day am te bu manifestation amee en général comme yu mel noonu daf leen jege côté boobu peut être booy mën nañu romb sànni ay xeer am luñ fa yàq xam nga affaire yooyu noonu quoi moo tax man la gars yi euh, il faut ñuy joxe de bonnes information mm. parce que tamit loolu dafay dimbali population bi. Mm-hmm. pour ñu ñu ñuy ñuy ñuy parce que loolu moo war journaliste quoi les informations les sources juste et vrai. Mm-hmm. xam nga voilà gars yi gën see góorgóorlu quoi maa ngi jégalu nag. jërëjëf allo. salaamaaleykum. ñu ngi ziar. ñu delloo ngi ci jàmm. alhamdulilah. alhamdulilah. man dama doon laajte ba. ndax lii la lii la soo gisee jàpp yu bëri. Mhm. lii la dañuy anticiper parce que xam nañ li ñu yor nii. Mhm. kon tëj mënul sax maîtriser mboor. Mhm. waa patriote yi nekk Sénégal yi lan moo leen di tey lii moo tax ñuy anticiper di jàpp waaw. maa ngi doon comprendre mais kër farba bi ñu daal nag métti na ma ne xaalis ba suñu xaalis boobu warul woon lakk ne. xaalis boobu waroon nañ ko bàyyi ba deux mille vingt quatre ko si jàpp quoi. jaajëf jaajëf merci beaucoup. allo salaamaaleykum. na alhamdulilah. alhamdulilah. Mm-hmm. yaa ngi ànd rek Feeling Dakar. waaw man xam naa ni daal bu fekkee ni wàllum ngor gi la. Mm-hmm. man li may njëkk a laaj ñan ñoo yor sécurité am réew mi ba pare. Mhm. du police. Mhm. kon war na noo mën a xoole changé waat seeni doxalin. Mhm. ndax benn réew mi gëmatu leen ñoom it gëmatuñu seeni bopp fi nii police moo réer ci biir réew mi. ndax bu nu demee ba tey ñu soxla ab bërëb ñu toog ñu ni mënuñu leen a jox bërëb bi yaa quelque am na lu xew. mooy que léegi réew mi gëmatu leen te ñoom it gëmatuñu seen i bopp kon nanu changé waat seen i doxalin ñu xam ni ñoom ñoo war a yore sunu sécurité waaye waruñoo yore sunu menace li waa def nag man ànd naa ci ànd naa mu am partout ci biir réew mi bitim réew. Mm-hmm. Mm-hmm. mais nag muy tegu toujours ci yoon rek. Mm-hmm. waaw. loolu dong laa amoon lu ma ciy wax. jërëjëf na pëlis xoolaat doxalinam daal. Hmm, jërëjëf. ok. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam yaay booy ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu wér a wér a wér. alhamdulilah ñu ngi delloo ziar bu baax. alhamdulilah rabbi al sant yàlla bu wér. Mhm. yaa ngi Feeling Dakar. waa jooju fi waa jooju fi génn mhm. ba ba dugal ci affaire Ousmane Sonko kooku laay waxal tuuti rek. Mhm. kooku moom xàmmee naa ko bu baax a baax a baax a baax mooy Birama numéro 2 Birama numéro 2. Biram di xam nga Birama bi naa nekk ci fee TFM. Birama Ndiaye waaw. Birama Ndiaye ci ci wax sa xalaat yi lañ ko daan fey gouvernement bi da ko daan fay muy dugg di wax di wax sa xalaat yi di wax lu nekk Ablaye Wade. moom mooy Birima numéro deux moom dañ moom ku nekk lay dugg ci wax sa xalaat bu ne dafa ba nga xamante ne moom dafa tekkiwul dara mm-hmm. li may wax nag mooy lii nga xamante ne moo xew ci Sénégal mm-hmm. gis nga ku waxul dëgg wax ay fen mm-hmm. fii mook Macky sàll ba tey menace bi tëj kenn amatul dafa bëgg a xar ñi def lii bakkan yi ñëw jaay nit ñi def lii def lii dafa war a jeex ci Sénégal gouvernement bi ci boppam moom nit ñi ñuy riposte nii. Hmm. te nag ànd ko yëpp bu ñu àndandoo di riposte nii du baax ci ñoom de. Hmm. du baax ci ñoom waa Ngor yii fulaak fayda dong la ñu am. Hmm. fulaak fayda la ñu am. bu la nee yemal fii da ngay yem foofu naan état lu mu yore daf ko war a ñëw foqati foqati pour lan. pour lan te du waxtaan ak dañuy. as ndooy defee conférence de presse ak yooyu dama leen di gis nga fi ñu toon nii li xam li xew foofu ñëpp a ko xam. Mhm. jaraaf ndooy def na conférence de presse wax na li muy wax. Mhm. ñëw leen ñu waxtaan nañ de waxtaan ak moom moo gën lii ñuy def di sànni ay lacrymogène di def li di xeex ak nit ñi parce que ñii duñu reculer. Mhm. waa Ngor ku leen xam xam ni ay xale yu am fulla ak fayda fa ne am jom am fit duñu reculer ci dara. toog waxtaan nag moo gën li ñuy def ak leneen ak leneen toog waxtaan ak dëkk bi parce que dëkk bi fa mu jëm baaxul dëkk bi fa mu jëm bu ñëpp jógandoowee du baax du baax Macky Sall na seetaat boppam te xam bu baax li muy def peuple bi li ngor yi di def ñeneen ak ñeneen a ngi ñëw di def noonu parce que jàpp gi dakkul ci dëkk bi te te mu bàyyi détenu politique yi nekk ci kaso yi day taali mhm. day taali nit ñaa ngi ne tekk toog naa fekk journaliste ya nekk TFM di wax naka sudul noonu di jàppale du du wax dëgg di sos di yokk di def lu kenn xamul saa bu ñu deewee daañu am lanteeg yàlla parce que gis nga dëgg moo jëkk dëgg mooy mujj boo taxawee sa dëgg doo ragal mm-hmm, yenn yi dafa ñaaw ci dëkk yenn yi dafa ñaaw ci dëkk ñaawlu dañ ko ba fa ñaawlu yem lem Sénégal te kenn tegu ko kenn ku dul Macky Sall Macky Sall kese la ak ñi mu àndal waaw jërëjëf. merci beaucoup allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa ku baax ñu lay ziar. ñu ngi dolli ziar alhamdulilah. alhamdulilah yaa ngi ànd rek Feeling Dakar. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Mhm, ñu ngi delloo ziar bu baax a baax. di leen baalu àq bu baax a baax. di ñaan yàlla nangul ñu suñu koor. ci barke yonent bi. waaw dama bëggoon a ci émission bi. Mhm. Euh, li may wax nag dama koy jëmale ci état. Mhm. état bu Sénégal il faut que Macky Sall mu toog xoolaat boppam xoolaat entourage am. Mhm. gis nga dëkk. bu mhm. fekkee da fa soxla dara. waxtaan waxtaanal ak waa dëkk ba. ndax tollootunu ci jamono bu président di jaaye doole walla muy xëccoo ak askanam. président warul xëccoo ak askanam. Mm-hmm. ndax du fekkante ne danga bëgg a ñëw ci bërëb bëgg fa def samp dara mm-hmm. da ngay waxtaan ak waa askan bi euh, euh, askan wa fa dëkk mm-hmm. xool ba xam di ngeen trouver terrain d'entente waaw wala déet mais lii am ni yëpp jàpp naa ne jaru ko woon sànninte xeer beeg lacrymogène yeeg ba kër euh, Farba Ngom bi lakk ci yaakaaroon naa ne yooyu yëpp mën na ñàkk lépp mënoon na ñàkk ndax lépp ci waxtaan la rek ndax tollootul hmm. ci réew moo xamante ne ni Afrique sax laay wax jaay doole bi daf fi jeex hmm. kon Macky Sall na arrêté teg lépp ci suuf waxtaan ak magu dëkk ba waxtaan ak ndaw ñu nekk ci dëkk ba hmm. su ko defee ñu jéem a juboo moo gën parce que lii am nii day dem ba dafay ëpp loxo parce que kër ba moom bii nga xamante ne nii lakk nan ko euh, jeune waa ngoni ngor yi ñoo doon manifester ci leen fa bëgg a def waaye day dem ba day law ci politique mhm. dugg ci waa Pastef yeeg waa Bennoo yeeg yooyu yëpp te yaakaaroon naa ne waroon na bañ a yegg si fii kon mag Macky sàll na reculer teg lépp ci suuf dem waxtaan ak mag yi dëkk ba mag yi dëkk ba waxtaan ak jeunes yi xool su fekkantee war nañ ko fa def ñu juboo ci loolu su fekkantee waruñu fa waruñu ko fa def nanguwuñu mu reculer parce que moom la ñu dénk réew mi su ko defee leneen mën see bañ a am te yàlla bu ci leneen am. jërëjëf salaamaaleykum jërëjëf allo salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar yaa ngi Feeling Dakar. voilà dama bëggoon euh, participer ci émission bi. Hmm, aywa ñu ngi lay déglu. bon ñun nag ay ndaw lañu. Mhm. ay ndaw lañu bi ñuy juddoo yàggul. Mhm. mais euh, li nekk di xew suñu réew neexuñu naqari na ci xol barki rasulilahi mhm. yow da ngay nekk jeune xale bu ndaw ah toll ci liggéey jàng ba am say diplôme. toll ci liggéey mais da ngay gis ni yow ñi la war a jox liggéey ñoom sax ñoo lay ñoo lay ñoo lay xañ jàpp. déjà de un may ñu liggéey de deux ñu xañ ñu jàmm. dafa dafa dafa dafa naqari quoi en fait dafa naqari saw na Sénégal ñun ñu nekk di dund nii suñu génération ñu nekk di dund nii te du kenn ku dul Macky Sall Macky Sall dèjà de un amul yërmande ci ñun amul yërmande ci jeunesse. Macky Sall ñun bi ñu bi ñu war a jëm bi jàng jotee dañoo dem dañoo bàyyi suñu lépp dem jàng. Hmm. bi ñu jàng ba am say diplôme mais da ngay ñëw pour pour pour am liggéey sa problème la. wàllum ngor bi nii am na benn gaañ bu fi dugg sànq nii di di di di di di di sur les jeunes mais en fait gaañ boobu na arrêté gis nga xam nga ñun Sénégal lan moo lan moo lan moo ñu gën a sonal moom mooy fii daf dañ koy wax dañuy wax dëgg te yàlla rek tax. Hmm. ay mag yu naa fekk ñoo ñu sonal. barki rasulilah ay mag yu naa fekk Sénégal kaddu gi dafa dul neex ko mais gis nga saa yi dëgg bu jotee dañuy wax dëgg te yàlla rek tax. Hmm. ay mag yu naa fekk ñoo ñu sonal. war nañu war nañu war nañu xoolaat suñu bopp ko en fait. mag yi. mag ñi nañ xoolaat seen bopp bu bu bu gis nga dëkk bu demee ba ba ba mag bu waxee xale contredire ko ne ko ne ko li nga wax lii ak lii ak kon kon dëkk boobu noonu mag yi war nañ xoolaat seen bopp. suñu mhm. toll nii xale yi ñooy ñooy ñooy ñooy wax dëgg ko en mag yi di wax leen neex fii mi ngi nekk fii naan ay ay ay ay ay ñi mais ñii espace bi kese moo leen dese espace bi kese moo leen dese. après ñun espace boobu noonu ñu bëgg ko ñëw ñu foxate ko seen foxate ko seen kaw. ñoom duñ ko nangu ku nekk am nga am nga am localité bu nekk am na droit ba nga xam ne am na droit am espace ba nga xam ne peut-être fa lay fa lay defee loisir am ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. mais mënuñoo ñëw jël jël jël espace boobu noonu par force ñu ne dañ fay tabax dañ fay tabax kii dañ fay tabax gendarmerie. d'accord gendarmerie baax na ci dëkk mais ñoom amuñ droit boobu noonu ñu ñëw ne dañuy dañ koy def par force sans sans sans sans sax di ko mais ñu waxante dëgg ñu waxante leen dëgg ko en fait Sénégal nañ bàyyi nañ en fait yi nañu bàyyi yëfu yëfu naa fekk yi ñuy def nii. ma ne mais ñuy def tey tey tey tey ñoo xam ne Sénégal bu takkee ñëpp la takk mm-hmm. Sénégal bu takkee ñoom ñoom ñoom ñu nekk fii di défendre Macky Sall te man li ma ci gën a naqari. Mm-hmm. ñu ngi fii di défendre cause ba nga xam ne Macky Sall en deux mille dix mille douze cause boobu noonu Macky Sall dafa doon dafa doon xeex contre cause boobu noonu. Mm-hmm. tey ñoom ñu ay magum naa fekk ñëw di défendre cause boobu noonu. dafa neexul quoi billaay wallaay da ngay wax sax sa xol day day jeex da ngay da ngay wax di bëgg a jooy. jërëjëf. jaajëfal. merci beaucoup jërëjëf. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam Seydou ñu alhamdulilah. alhamdulilah. yaa ngi en Dakar. alhamdulilah Dakar Dakar si la la moom. ma ne yaa ngi en direct Feeling Dakar. waaw maa ngi en direct Feeling Dakar. ok tey lan mooy thème oh, bi. affrontement yi xew fële ca Ngor. ah. ma ne affrontement yi xew fële ca Ngor population bi nekk foofu ak force de l'ordre yi instant yi dañuy jàmmaarloo. ah ok affrontement ma affrontement bu am Ngor. bon mm-hmm. man maa ngi koy suivre euh, depuis Kolda. bon mm-hmm. man même sama sama xalaat. Mm-hmm. Euh, xam lii yëpp. am na ay cause euh, cause lointaine donc lii mu war na war na yee population yi du Ngor kese Sénégal yëpp dans toutes les zones gis nga euh, nos élus locaux là il faut que ñu choisir kan la ñuy tànn ban genre nit la ñuy tànn ma jox leen benn exemple terre à xam ngeen tubaab yi du ñu musa fal baadoolo tubaab dégg tubaab yi boo demee nga gis kooku ko leen jiite du ñu mus a fal baadoola parce que la plupart baadoola boo ko falee tamit xa moom moom day day day day xalaat tamit naka lay def ba mu suur balaa muy toppatoo nit ñi problème bi yëpp foofu la te du du ngoor kese ngoor peut-être ngoor ngoor ngoor moo wane tey mais la plupart les problèmes fonciers la ak Sénégal foo dem rek foo dem rek am na foo dem rek am na. foo dem am na même ñun fii Kolda am na benn dans la région de Kolda am na benn zone benn euh, homme d'affaires moo ñëw euh, jënd benn comment dirais-je maire jox ko ay hectare hectare pour pour pour bananerie population yi manifesté ñu jàpp près de plus de dix personnes tey te di leen déféré leen Kolda loolu loolu fépp la mais d'une part les populations sont responsables parce que élection yi bu ñëwee. bu ñëwee la plupart euh, comment dire nit nit ñi suñ ñëwee financé leen xaalis jox leen ay saaku ceeb xam nga seen côté mais ñun noonu noonu la suñ leen joxee ay saaku ceeb wala ay mille francs cinq mille francs rek dem côté leen mais du ñu xalaat kii ban genre ban genre nit lañ nekk di lay lay lay lañ nekk mais da ngaa ne boo xam ne dafa teg ci soxlawul alal alal alal nit ñi mais moom bu ñëwee genre yi du ko du ko xalaat. Hmm. genre yi du ko xalaat moom maa ngi partage maa ngi en tout cas. comme sama wàllu soppi de toute façon maa ngi partagé seen métit. Mm-hmm. Euh, maa ngi leen masawul seen métit mais. mais neexul ñun ñoom kese loolu c' est dans toutes les zones comment dire du pays les gens et les mal noo noo noo lii da ngay gis benn baadoolo boo xam ne tekkiwul dara. nga ñëw mu ñëw rek dugg teel euh, politique parce que pour moom léegi politique boo amee euh, benn post rek da rek nekk mais nit ñooñu ñu ñu kii leen topp leen ba ba fal leen ñoom ñooy def genre yi mais sinon sinon euh, les jolis le collab balaa ñuy dugg si dañuy war a d'abord concerter avec avec la population parce que population ñoo tax ñu ngi foofu. mais c'est dommage c'est dommage. merci ma ma maa ngi maa ngi leen maa ngi leen jëfal dégg nga. jërëjëf merci beaucoup. merci beaucoup merci. allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum. 77 842 19 19 allo salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Feeling Dakar. yaa ngi en direct Feeling Dakar waaw. Eh, sëñ bi. Hmm. gis nga gis nga réew bi. Hmm. xam nga ngi gis ni manifestation encore instant bi nii. Hmm. gis nga jeunes yi imagine gis nga jeunes yi bëri ni ñu génn nii yëpp. xam ko waral. xam nga jeune nga nekk nga nekk nga nekk am ndaw nekk sa réew. amoo liggéey. xëyoo amoo daru lekk sa te xam na ñi la teg ñi la teg ñàkk liggéey boobu. ñoom ñooy def ñu ngi fii si àdduna bi def nag su dul noonu. te respecté jox ñu la cër. kooku bu ñu ko si frustré bu génnee frustré man day génn man fasal par force. sëñ bi xaaral ma ma jox sama kaa tuuti. parce que man maa maa fi ñu ko toog man maa fi ñu toog rek ma demoon fenn. de manifester man man suñ ko toog. Mhm. comprendre nga. Mhm. mais naxat mooy dund man ci par exemple ci sama sama gouvernement. Mhm. kenn xamul nu mu tool par exemple moo la benn affaire xam nga xam nga dañ ne comme ni ko américain di waxee rek nit lan nit balaa génnee sa réew lu mu la war defal yow yow la nga defal si ba pare. man ma mun naa mun naa jox sama benn cursus léegi nga xool ndax man def naa sama réew wala defal ma sama réew. gis nga Wakaam ah. Mm-hmm. école El Hadj El Hadj Mbaye Diop bu Wakaam mu nekk ci booru gendarmerie Wakaam bi. Mm-hmm. nekk naa ko facilitateur facilitateur TIC en informatique facilitateur TIC. Mm-hmm. pendant un an. di ko jàngal xale primaire yi l' informatique. sur les sur les TIC. sans sans rémunération pendant huit mois. sans ma ne sans te école école primaire école école primaire publique la. Mhm. école camp bu nekk fii boori Jean Mermoz. Mhm. moo camp école camp. Mhm. def naa fa un an. comprendre nga. gratuit ni ni rien. école Mas Massayer Niane 2. Daw Ba. Hmm? def naa fa deux ans. xam nga ñu waroon jox passe vingt mille francs par mois passe te deux heures moom ko doon may pendant deux ans. <laughs> comprendre nga. Mm-hmm. école Souleymane Wade face école école Souleymane Wade face UPG. Mm-hmm. boo demee da ngay laaj da nga boo demee foofu école boo demee nga laaj man école gën a nga laaj ndax xam nañu wala xam ne euh, face UPG Souleymane Wade. Mm-hmm. def naa fa trois ans facilitateur TIC. comprendre nga. trois ans foofu sans rémunération ni rien ma jógee fa. nekkoon liberté six extension liberté six B extension bu nekk si booru si booru terminus neuf bi si booru terrain ah allo. dama ne. def naa ko une année. facilitateur TIC. sans rémunération. CM 19 bu Parcelles Assainies. CM 19. allo salaamaaleykum. waaw kay ñu ngi ziar. ñu delloo ziar bàyyi si jàmm. waaw maa ngi doon woote Dakar xam nga kii la dugg wax wax ji am solo xam nga réew mi dafa toll foo xam ne gis nga booy xeex bi ñu ngi gën a métti te gendarme yi sonn nañ. Mm-hmm. dañu waxante xam nga bi dafa am loo xam da ko war a bàyyi xam nga nit ñi euh, fiñ na la euh, domaine boo fa dem ci bi nga xam ne ci conseil xam nga état mënatu koo jël. Mm-hmm. xam nga ci état bi jaay na lu mu bëgg dafa def mais ginnaaw ay nit ñëw ñu fa dëkk duñu ay ginnaaw duñu ay xel ay population xale yi yeewu nañ xam nañ. Mm-hmm. te préfet bi li ñu waxtaan ak gouverneur ak ministre bi duñ ko respecté. Mm-hmm. loolu mooy problème Sénégal fi ne gouverneur bi la muy tënk gars bi du ci respecté dara day jékki-jékki rek ci Sénégal dañu war a bàyyi lu ñuy wax mu ne EAC damaa jot ordre xam nga dëgg la mën ngaa jot ordre waaye gendarme yi ñoom dañ leen war a gën a formé waat mm-hmm. parce que nit bu ñuy dund sa yow nekk imam wala mu nekk nekk dëkk dëkk sa koñ bi di waxtaan ak yow lu mu lay waxtaan yow déglu waaye bala ngaa àgg ñu la sànni seen loolu yi sax dóor ay grenade mm-hmm. xam nga si loolu saafara wu dara bu ñu waxantee dëgg te Macky saal del xool fu ñu doon jour del xool bu ñu woon di wax ni day wax ni réew mi ku fi na rek itam dañ lay jàpp tëj fi na fin lay wax fi na li am ngoon duñ jàng dara maanaam réew mi am si moom am si problème soog a jàng mais moom fi na del xool bu subaa hmm. suba la correcte mais bu ñëwee li may waxaat ni ak li am sax day moom day faral day day génn gaaw hmm. maanaam président la boo xam ne damaa am koo xam ne ne ma président bi dafa naqare deret nee na ma Sénégal président bi ñoom dafa naqare deret xol bu baaxul ki ma lay wax nii wallaahi naa xam si weeru koor laa nekk ku ko xam la nee ma man ma nee ma man ministre laa waaye mbirum Sonko kenn mënu maa ma fay nekk di defar parce que xam naa ñu ngi si dëgg mais man sama li may liggéeyal Sénégal moom dinaa ci nekk. sama fii ci taw umpantewu fi. te yooyu toll na foo xam ne nii faaw moom man man du ko ñaan parce que nag man bu ma gisee ku koy ñaan ak a wax xam ne xamoo ko. ñi nga xamoon tey soog de noonu ma sant dafa am lu mel ci biir maanaam dafa dafa mooy xeesi nit ñoo ngi xam dañuy jàpp ne cent ans duñ bàyyi hmm. li ko gën a métti ci Sénégal mooy la amul mois de mars xam nga da ngay dégg benn ay boobu naan ar état kenn du xeexam mais mois de mars population moo tax état bi arrière li am ngor ni état bi day arrière ndax booy yi ñi ñuy def buñ toggee lu ne mën na gendarme boobu ndaw gendarme yi jurul fi ne ji ak xoolal li ñu yàqal foofu seen liggéey xoola booy bañ dalee xeex ni ni ñu taxawee jàkkaarloo gendarme yi gendarme yi mun na luy leen dara te seen oto yi ñuy génn nii boo demoon Soudan moom lañ génne fi mu toll nii. Mhm. yàlla xam ne Soudan dafa am ne oto yi ñuy génn nii sax génne guñ ko ndax ñi xa dama man jaaxal na ma. loolu moo tax jàmm faaw ñu sàkk ko am loo xam ne gënu. nga xam te dëgg li fi am nii li ma yàlla xam na ne nag loo xam ne doole moo koy liggéey. day indi problème. Hmm. ndax loolu daal di dara yow moom sax sa kër boo fa demoon yàlla xam ne sa jarbaat moom ak say doomu nga ma waaye dangay ngay maslaa bu la ni nga xam nga génne leen mais doo ko def. Hmm. daam looy hmm. républicain mooy nga am man ngaa yor doole ji mais da ngay am looy jomb comme Wade Abdou Diouf mais kii daa jombut def dara jombut rey nit ñi toog jombut def lu ko neex li mu bëgg a def la xam. li ñu li ñu jàppee républicain mooy loolu mooy acte maanaam nga da nga nekkoon noobo nga xam ne bu la neexee mën nga yaayoo armée boo jox ordre ñu def mais da koy jommale sa bopp da nga sa bopp nit ñi dee yow mi am na loo xam da nga sa bopp droit may na la ko mais doo ko def mhm. loolu mooy problème yàlla nañu def jàmm fi ñu toll koor dëgg la métti na mais fi ñu diñ déficité doo xam lu xew hmm, doo xam lu xew affaire li fi nekk mën a su ko wax nga xam nga xew gore yi li ñuy xew du affaire tonkoor moom li ñuy xew ngoor la Mm-hmm. seen affaire carte la ñun ñoo ko dëkk la ñuy xeex xam nañ ko defuñu ko ngir ngir sero xam nga xeex ni mu métti ak weeru koor bi doo ko def ci sero. Mm-hmm. xam nga dégg naa benn waay woon nag ku ñu si jàpp dañ naa war a àtt ku rey loolu mooy leen wax parce que xam-xam boo ko amul xamoo ko. Mm-hmm. waa PNN si lépp doole gis nga koo ci gis nag daa ponk rek Moussa ku jàppale Macky Sall ndaw ñëpp ay ñoom ñëpp a yem ñoom ñëpp ay ponk lañ jiital seen i biir. jërëjëf maam Mbacke. allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum euh, boo ma nee dugg si rek euh, nga continuer contribution bi 77 842 19 19 allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi ziar wér. alhamdulilah. waaw di rafetlu seen jotaay yi nga nekk nii. Hmm, jërëjëf. waaw li ma la bëggoon wax mooy. Hmm, hmm. Euh, gendarme yi takk der wax dëgg yàlla euh, sonn nañ sonn nañ de. Hmm. ndax léegi dañ métti fan yëpp métti na trop. waaye nag dañ soraale euh, kër yi ñuy toog ci dërgënaale si si kaw parce que am na mën naa am ku tëdd feebar ku fa ne. Hmm. waaw bu fekkee su ko kii bu duggee mu andi ay problème dañ bàyyi grenade nañ bàyyi grenade yi biir si kaw hmm. maa ngi leen di saraan en direct nii si internet waaw nañ bàyyi grenade yi ñuy si man nag yërëm naa leen parce que si bi ñuy daj ñuy na trop. waaw hmm. ah, ñoom ñi nekk nii loolu am ñax dañoo fekk tey ni ñu ne seen kër di corté ji am ñii di a corté ji suba ah ñu nekk fii coono nii ñu ko jar. jërëjëf rek nañ ko def ci jàmm. jërëjëf na nekk jiite rek woote jàmm nit ñi mën a def ci jàmm. Hmm. baax na jërëjëf xewal. jërëjëf. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. Ah, maaleykum salaam. Mhm. aywa yaa ngi ànd rek lay teelu. Mhm. ñu ngi doon participer ci euh, débat bi. Mhm. li xew Sénégal métti na. li xew Sénégal métti na. te nit ñi malhonnête yàlla bëgg na dëkk. dëkk boo gis injustice am fa. ay jullit nekk fa. xëy suba ba ngoon ni duñu reconnaître lan mooy injustice te ku ci nekk buñ ko tegoon ku la gën a jege nga yuux mhm. ni ñi di prétendre naan gis ñu vérité dëkk mhm. boobu bu yaboo buñ fa doon wàccee ay téeméeri maami kaamil tamit yàlla du ko gis parce que lii oustaz aadi kii doon wax keroog Sénégal dañuy dama yàlla baal ni ñekk wax dëgg bëggam ko lan la mhm. mooy kan gis na li ngeen di gis nii yëpp xale yi di réagir le peuple frustré frustré frustré et on ne reconnaît la gravité d'une crise que quand le peuple ne reconnaît plus l'autorité autorité ci boppam lañu reconnaître pour Sénégal donc il y problème qui se pose dafa dafa dafa dafa doy waar dafa doy waar dafa doy waar. li mm-hmm. muy jël nit ñi di tëj di les les gens et puis euh, individualisme bi am. qu'est-ce qui se passe. qu'est-ce qui euh, situation ku mu arrangé nga nga nga nga nga noppi ku mu arrangé wul nga wax. Mm-hmm. bu ñu waxee ñu naan Ousmane Sonko Ousmane Sonko Macky Sall lii na ko xam mu leer ko leer ay ñoñoom. Mm-hmm. Sénégal la fa nekk ci pétrole tey jii ñëpp war a gis seen bopp ci Sénégal ñu nar def seen biir population bi di gën a pauvre di dem. Mhm. da dul amati. Mhm. vingt et unième siècle bii. dafa doy dafa doy lii ngay gis nii yëpp ay ay ay euh, réaction extrême yi yëpp le peuple est les gens en en ont dafa doy Sénégal boo xoolee situation bi sa xol day tàng ngay bëgga a dee. y a trop d'injustice man Sénégal rek laa gisee ay homme de tenue ñu leen di rey for nothing. Hmm. kenn waxu ci. di jàpp ay nit di tëj. amaat Suzanne Camara di taxaw ci digg euh, dëkk bi di wax naan kii ya rey kii ya def lii en toute impunité ñuy jël di di di jël seen c'est nag trop c'est trop. Mm-hmm. trop c'est trop te li nit ñi ne tekk nii c'est pas euh, il n'a rien compris il se dit que tout peut passer au Sénégal non. gis mm-hmm. nga bés bu peuple bi jógee. Mm-hmm. ci la di xam ni léppay dëgg. parce que nag à trop tirer sur la corde elle finira par se casser et à ce dootuñ ko mën a ci contenir na def très très très attention li xew Sénégal tey bu doon dans les pays limitrophes là les pays de la sous-région i nañ ko bu yàgg dañ ko dul sax maye ci fu mu taxawee mm. deux mille vingt quatre sax duñ ko ko may fu mu toogee ba naan day organiser ay élection parce que nag lu ëpp tuur lu ëpp tuur te il y a des gens tellement malhonnêtes malhonnêtes ba taxaw naan euh, ay c'est Ousmane Sonko le problème ak euh, y a trop de kii ku ci nekk na nga xool sa digganteeg sa trahim ba mel àddina dafa jeex ba pare ku ci nekk na nga xool buñ la tegoon injustice yenn yi nan ngay réagir malhonnêteté dafa bëri et journalistes yi xaw ma ces prétendus journalistes qui sont là en train de divulguer des de, de fausses informations amuñu benn benn benn rigueur dans la démarche. Mm. c'est pathétique. Mm. Sénégal daal fi ne nii fi ñu toll nii à l'heure actuelle bu yeboo rek na ñëpp rek tàllal seeni loxo di ñaan. yàlla suturaal ñu Macky Sall jógeel ci boppam sax. jërëjëf parce que lii da euh, à la à la limite tu ne comprends pas. Mm-hmm. dafa métti dafa métti li xew Sénégal. Mm-hmm. yàlla na ñu yàlla taxaw ci barki weeru koor gii di. jërëjëf yàlla na yàlla delloo si. jërëjëf. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Kuba ñu lay ziar. dellu ziar bu baax foofu sans limite la wala. alhamdulilah yaa ngi fi Dakar. ah Feeling Dakar waaw waaw dama bëggoon participer ci émission bi rek. Hmm, aywa ñu ngi la déglu. waaw ñu ngi rafetlu liggéey bi bu baax. di wax euh, waxi sëñ Cheikh. bi hmm. mu waxoon rek ne fu fu ja fu dëgg amul jàmm mënu fee am. Hmm. loolu lay leeral nii maanaam fu dëgg amul jàmm mënu fa am. gis nga grand moo wax benn affaire. liñ yaakaar ne day yam fii du yam fii man mii di wax ak yow ab waa ngoon la ma. 2001 mhm. bi ñuy dàq waa LGI Mbaaw ñuy daw di dugg ci boobu maa ngi am vingt et un ans ñu ngi dàq waa LGI Mbaaw ñuy daw di dugg di dugg si bi comme ay xale. Mhm. loolu yàggul. Mhm. te man xam naa ne xale yi nii tey ñoom ñoo gën seen deret ñoo gën a tàng fukki junni yoon ñun suñuy deret ñun sax léegi xaw dañ mag am na yoo xam ne ñu ngi koy jombale suñu bopp quoi. mais grand ma ne la benn affaire. Mhm. est xam nga ne euh, vingt trente pour cent jeunes yi dëkk Ngor nekkuñu fi actuellement. ah bon. barki alxuraanul karim dañoo dem Nimzaat. Mhm. te ñooñu bu ñu ñëwee barki alxuraan affaire day gën a dégénéré. Mhm. di nga fi dégg maa la ko wax fii jàppale wax tey. di fi dégg moor moor am de tenue. yàlla ñaanum ko yàlla yàlla buñ ci yegg. Mhm. gis nga Macky ni mu yoree dëkk Sénégal bi du dëgg du yoon. Mhm. Moussa Fall bu fekkee ne ne moom yaakaar na ne moom dafa dafa équipé ba yaakaar na ne mën na mën nañoo téye ñun billaahi dafa nekk si ay caaxaan musaa Fall ci ay caaxaan dëgg la nekk moom ak Antoine Diome ci ay caaxaan dëgg lañ nekk. Mhm. grand maa wax fii booy suba la ñuy ñibbi si wala ginnaaw suba Nimzaat lañ dem mais buñ ñëwee. ba dolli renfort barki alquranul karim di nga gis policier bu daw yëqet génn daw mhm. xeex bii dañ koy organiser te dinañ ko xeex te billahi gayn ngor lay gañe te li may wax nii dafa am fu wér fu ma ko teg gis nga nit ki lu mu bëggul si dëkkam nga ne danga ko kay defal foofu mhm. ñun bëgguñu gendarmerie foofu foofu mooy espace bi ñu desee foo xamante ni mën nañ fa doxantaw mën nañ fa mun nañ booy yi fa la ñuy defee seen entraînement ak yu bëree bëri oto yu bari fa la ñuy gaaree nga bëgg ñëw def fa gendarmerie si lu ñu neexul loolu du dëgg du yoon. yow ngor nga dëkk wala. ah. ma ne yow ngor nga dëkk. ngor laa dëkk. Hmm. actuellement nii affaire yi fan la toll kon. affaire actuellement ñu ngi xeex nii ba léegi nii ñu ngi jàmmarloo. ñoom lan lañ bëgg a forte def foofu ab gendarmerie wala parking. gendarmerie lañ fa bëgg def. Mhm. bu fekkoon ne sax dañoo ñaan ñu ne nañ leen may benn côté ñu def fa gendarmerie ñu xool ñu ngi doon waxtaan. waxtaan bi yeggul ñu bëgg a ñëw samp fa gendarmerie. Mhm. ba pare bëgg jël espace bi yëpp di jaay doole. Mhm. sëñ bi fii fan la gendarmerie mën a tegu fii mënu fee tegu parce que. lu mu yàgg-yàgg bu ñu génne woon arsenal bi nekk Sénégal bi yëpp di ñëw chaque jour munoo xeex ak booy chaque jour da ngay bàyyi da ngay séddee barki alxuraan dañuy bàyyi ñii. ñoo gis ñii dañuy bàyyi par la force. yéen demoon ngeen demoon ngeen wut ay papier pour site boobu noonu ngeen muumal ko. waaye mën na la terrain bi du terrain état ngor ko moom terrain bi ngor ko moom. Mhm. xam nga kam moo ko joxoon waa Ngor. Mhm. sëñ Cheikh Tidiane si almaxtum moo ko mayoon man gannaaw lu ma la wax ci xeex bi jàpp ko téere man ngor laa dëkk man actuellement fi may wax ak yow nii maa ngi biir ngor toog. Mm-hmm. mais li ma si métti rek mooy le fait que force de l'ordre yi ñu ngi sànni ay grenades seen muy dugg suñu kër yi suñu maire yi feebar fii ak suñu paa yi loolu moo mu ci xaw a métti quoi. Mm-hmm. mais sëñ bi li ma la gis nga Sénégal billaahi yàgg muy yàgg wala muy muy muy muy yéex. Macky Sall dina fi jóge deux mille vingt quatre waaye bu fi jógee tamit ñu ci bëri dinañ xam ne ne liñ doon def teguñu ko ci yoon man ay nervi gendarmerie laa fi gis man ak ay policier mais gisuma fi ay force de l'ordre mais am na maa ngi maa ngi leen di gërëm di leen sant ah. Euh, Balma am na ci waa euh, manifestant yi ñoo xamante ni jàpp nañ leen ci wala ba léegi jàppuñu ci kenn. non démb gis naa kuñ ci jàpp mais actuellement yëguma kuñ ci jàpp. Mm-hmm. mais xeex bi moom mu ngi gën a mu ngi mu ngi mu ngi gën a mu ngi gën a. ci moom wax ne am na benn euh, homme de tenue bu ci blessé est-ce que c'est vérifié wala. waaw am na ko ci gaañu si ñoom. Mm-hmm. suma assistance moo ko jël si. Mm-hmm. waaw loolu loolu lu wér la suma assistance moo ko moo ko jël si. Mm-hmm. et puis Kër Farba bii lakk loolu dëgg la tamit fu Kër Farba ngoom la dafa tàkk dafa lakk. manifestant yi ñoom ñoo ko tàkk lii moo ko lakk. mënu ma la wax lii moo ko lakk mën na am lacrymogène yi ñoo ko lakk. Mhm. mën na am mais du question booy yi ñoo ko songul taal ko wala affaire yooyu déedéet du loolu. Mhm. jërëjëf ñun suñu ñun suñu amuñoo problème ak Farba Ngom ak yooyu noonu ñun suñ problème rek mooy dëkk bi na jaar yoon ñu téye ko ci dëgg téye ko ci yoon bu dul loolu moom nii lay demee ba deux mille vingt quatre. incha allah jërëjëf. waaw jërëjëf. jërëjëf. yaaraama. 77 842 19 19 ñoo ko déggandoo mu mel ne mbir ma euh, mu ngay gën a euh, dégénérer am na benn homme de tenue boo xamante ni comme niñ ko waxee woon rek suñu ndoorteel yi wax euh, actuellement mu ngi fële ca suma assistance nekk clinique bi nga xamante ni foofu la ñu hospitalisé woon kii di Ousmane Sonko bi mu nekkee woon ci le 30 ba passé foofu la ñu yóbbu woon actuellement kon am na benn homme de tenue boo xamante ni manifestant yi ñoom ñoo ko daal di blessé fële ca Ngor ba. Euh, fi ñuy waxee yéen nii mu ngi fële ca suma assistance gis nañ tamit d'après kii lu wax euh, kii di Farba Ngom tamit këram daal di nañ koy euh, taal mu mel ni daal fi ñuy waxee yéen ni mbir moom mu ngay gën a compliqué 77 842 19 19 bu fekkee am na ku nekk si ligne bi rek ñu woy di continuer waxtaan ci lu ñeel bi nga xam ni moom moo xew foofale ca Ngor allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay ziar. delloo ziar taarikàlla ah di di di di di ñaawlu li xew Ngor euh, état mënoon na ko waxtaanee ak euh, autorité yi nekk Ngor parce ñu ngi jëm ci Korité suwe nit ñi mënuñu jënd lu ñu yóbbu seen kër mënuñu dem jëli seen i ñaw ci téyel ñi fiy daan seen doole ci dëkk bi sax di jënd lu ñuy jaayaat mënuñu ko jaay loolu baaxul ci dëkk bi te dañu nekk ci dëkk boo xam te ni doxul ñu loolu yëpp état moo war a am yërmande ci doomu adama aadama mën na am yërmande tey ci doomu aadama yi parce que xeex ñaara koy def tey su waa Ngor noonu état bi reculé xeex du fay am dañuy bàyyi ba beneen yoon ba weesu korité bi lu ñuy def ñu door ko def lii daal ñun ñu ngi koy ñaaw ba ci kanamu yàlla te ñi ci war a wax ñu jóg wax ci voilà mu mel ni mu mel ni allo. allo. oui. ma ne mu mel ni kon fi ñu toll nii daal mbir mi doy na waar te nee nañ am na ñoo xamante ni ngor lañ dëkk mais dañoo dem euh, julli ji korité. waaw plus de trente car trente bis nañu ngor dem dem dem Nimzaat. Mhm. donc kon boo xoolee xaaju dëkk bi yëpp nekkuñu fa. Mhm. te bu ñu fa nekkoon mën nañ ñi day gën a ñaaw. Mhm. donc li ci li ci mën a wax daal mooy. Euh, ñi ci war a wax ñaan ci mu dal ñu waxtaane ko sa mhm. at àdduna lépp waxtaan bu ñu waxtaanee mën nañ trouver ten euh, solution mais bu ñu ko nee nii mën na jur leneen comme de tenue mën na ci gaañu comme civil mën na ci gaañu mhm. bu boobaa day yokk problème yi mais du ko wàññi mhm. di ñaan jàmm ci donc kon boo xoolee rajo bi jeex na. allo salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay ziar. delloo ziar bu baax a baax. alhamdulilah yaa ngi en direct Feeling Dakar. waaw mais juste bëggoon def benn intervention bu ndaw rek ci li jot a xew ci Ngor. Mhm. parce que mënu ma ne am na ku koy rafetlu fii Sénégal. Mhm. waaw parce que réew mi fi mu toll dafa dañu yaakaaroon dafa tolloo si apaisement. Mhm. mais nag gis nañ ni ñu nguur gi ñu jaakaar lool ni rapport de force la xam. waaw ñoom amuñu amuñu benn amuñu benn diplomatie seen bopp parce que nit boo amul diplomasi rek. Mhm. yow da ngay jàpp ni lépp rapport de force la. Mhm. te nag lii day firndeel ni nguur buy jeex la rek. Mhm. waaw parce que nguur buy jeex moom moo soxlaatul négocier ak kii que ce soit mais nag il va falloir tamit nag nguur bi fi nekk ñu xam ni àdduna lépp diplomatie la lépp dañ koy waxtaanee. mun a am benn benn benn terrain d'entente mhm. mais tey mënoo ñëw ci dëkku jàmbur yow nga bëgg li nga xamante ne waa dëkk bi ñoom bëgguñu ko nga bëgg leen ko imposer par force te dëkk bi am na ay priorité yoo xamante ne ñoom xëy na moom lañ doon bëbët pour am ko mhm. mais woo leen nga toog waxtaan ak ñoom mhm. da leen di woo nga toog waxtaan ak ñoom ñoom ñu wax la seen xalaat yow nga wax leen tawit sa xalaat parce que gendarmerie kenn bañu ko ci réew ci ci ci ab gox waaye day fekk tamit mu nekk loo xamante ne loolu la gox bi gën a yittewoo Mhm. mais nag rapport de force bi ñu bëgg a def nii yow tey waa Ngor bu ñu nee euh, état bi du tabax gendarmerie mais xanaa du ma ne tamit ñii ouvrier yi war a ñëwul liggéey si liggéey si bâtiment boobu noonu xanaa ñoom tamit est ce que tamit dañ ñëw tayle seen bakkan. Mhm. parce que dafa am loo xamante ne dafay aajoo ñu def taxaw seetlu. parce que mhm. bii ni man je me dis que ñun ñëpp benn lañ Sénégal ñoo ko bokku. tey tey bu bu bu waa Ngor bu waa Ngor meree parce que ngor boo ci boo ci laal laal nga laal nga kenn koo xamante ne mu ngi yeewoo yoof mhm. yoof koo fa laal yaa laal nga kenn koo xam mu ngi yeewoo ngor mhm. parce que c'est la communauté lébu mhm. te solidarité ñoom bu ñuy demee mooy ñoom dana solidaire conviction la ñuy demee te nag état lu mu bëgg a def nii affaire de injustice la affaire de doole la parce que dafa waroon nañ jiital communication balaa daraa xew te pour confirmer tamit ni ki état bi ni muy doxalee nii noonu lay doxalee ak bépp citoyen sénégalais. Mhm. bépp citoyen sénégalais état Sénégal bu ñu jàppee ni ki yow ak seen intérêt nekkul loo leen benn rek ñoom dugal nañ la ci seen liste boo xamante ne yow à tout moment mën nañ la fitnaal mais loolu ba kañ. état Sénégal mu ngi jaay mu ngi mu ngi jaay téere yi nekk si dëkk bi mu ngi maye téere yi mu ngi nangu ñenn ñi baadoo la du ma ne sax baadoo parce que baadoo la état la. Mhm. mais néew di doole yi mu ngi nangu seeni i di ko jël di ko utiliser si ay futilité wala mu jël ay étranger ñu ñëw mu yëkkati suufu waa réew mi jox ko ñooñu ba pare ay doom am ay problème pour am sax terrain donc dafa am loo xamante ne dafa laaj taxaw seetlu. Mhm. Macky Sall na delluwaat ginnaaw ci tànk yu mu jëm nii ndax tànk yu mu jëm nii comme ni ko Thomas Sankara waxee mu ne quand le peuple se lève l' impérialisme tremble. Mhm. soo moytuwul nag foofu la ñuy mujj parce que peuple. moo def état moo constitué état donc juste ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci tête dañ leen jiital rek waaye ñun lañ fi nekkal ko war nañu déglu askan wi lu ñu bëgg ñu ciy dox di ko di ko di ko jëfee lii nag kenn rafetlu ko te ñu ngi ñaan yàlla yàlla saafara ko ñoom. kilifa kilifa yu toog waxtaan nekk ci benn delloo waa Ngor seen wàll seen àq waa Ngor tamit xam ni tamit carrément ñoom mérité nañ lu ñu warut a lu ñu lu ñu lu ñu xalaata am. waaw loolu kese laa ne woon dama ko si sànni di mm-hmm. mosawu ñëpp. jërëjëf merci beaucoup. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo jaar bu baax. alhamdulilah yaa ngi en direct Feeling Dakar. waaw Feeling Dakar ñu ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi delloo ziar baax a baax. Ah, di ñaawlu nag li jot naa am li fi jot a am noonu foofu si waa Ngor ak ah, takk yi. Mm-hmm. waaye man de sëñ bi comme li waa ji wax dama gis nga nguur gii nii moom rapport de force la la xam moom daal defante daal fayonte daal ah. Mhm. mais vraiment sëñ bi loolu rafetul damaa jàpp nag li am nii nii ñàkk waxtaan ci la bopp man est-ce que yaakaar na ñoom bi lii nii waxtaan nan ak population ndax mbir nag donte nguur bu soxlaa woon dañ koy bàyyi moom mais ak lu mu mën di def ak doole ju man di am boo ñëwee si si si si commune jàmbur ak loo man di soxla war ngaa maanaam mairie ba ak préfet gouverneur ñoom ñëpp ñu convoqué ndaw ñi population ba fa nekk. des na ñi ma nekk si commune boobu ñu waxtaan jàpp naa ne bu ñu waxtaanoon dëgg-dëgg ba lépp leer est-ce que lii dina am. ndax loolu ñu fay samp ni xañ na njariñ si ëllëg njariñ Sénégal la mais ñàkk waxtaan doomu sëñ bi jàpp naa ne moo waral lii ndax boo waxtaanu pare boo jàppee ne tamit da am doole te loo bëgg a def koy def ah bu yàggee lu mel nii rek ngay lu mel nii kese mooy mooy am comme danoo toog ci mbirum apaisement nañuy toog di waxtaan di dialogue yaa ngi dégg jaay doole baaxul kenn du yor saw askan di leen noot leen jaay doole loolu baaxul du mës a jur jàmm yaa ngi dégg du mas jur jàmm ndax takk der yi ak ak ñuy jàmmaa loolu ay mag rek kese lan ñoo bokk réew mi jaay doole baaxul amul benn nguur boo xamante ni jàpp nga ne doole ji da ngaa doole doole mën a jàmmaaloog say askan. loolu ngor kese la am mais pour ëllëg dina amaat feneen lu lu mën di soxla si bërëb bu jàmbur nay convoqué na fa nekk ñëpp jeunesse population ba fa nekk ñëpp ñëw toog waxtaan mairie bi toog préfet bi toog ñu waxtaan tëgg. Hmm. ñu réglé ko njëkk ak doo xëy rek ñëw ne fii da ngeen koy jël si far force. moo tax population waa Ngor jóg bañ ñooyay bañ. ñooyay bañ même bu fekkee foofu ñu jim leen lijjantiwaat feneen Dakar dafa xat am na suñu xamante ni rafetul lii image bi ñaaw la suñu réew. vraiment neexu ba neexu mais ñun suñ vraiment neexu ba neexu mais su réew mi ñu koy diriger ñun man ñu koy diriger war nañoo xalaat seen bopp quoi. jërëjëf ngeen baal ñu ngi leen di ziare baax sëñ bi jërëjëf di ziare baax a baax. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sang bi ñaa ngi ziar. ñu ngi dellu ziar bu baax alhamdulilah. alhamdulilah di rafetlu émission bi. jërëjëf. waaw di di ci am ay kàddu ci bëgg sànni rek. Mhm. Ah, xanaa di ñaawlu li nga xam ne moo ngi xaw Sénégal te xamuñoon ko woon. Mhm. muy que dañoo gis ne instant nii. Mhm. depuis temps bu yàgg ñoo ngi ne nag kilifa yi wax parce que fi jëm ci kaw total la. te man nag gis naa ne kilifa yi. ba tey jëlaguñ paar waxuñ ak ñi ñu war a waxal. Mhm. parce que li fiy xew yëpp day mel ni que violence bi dañuy wax ne ci population bi la. Mhm. mais man mii dama ne suñ force de défense et de sécurité. Mhm. ñoom ñooy andi violence bi. parce que lii lii rafetul ci Sénégal. te su loolu weesoo ñun ñëpp ay doomu sénégalais lañ. donc nañ xoolaat defaraat nañ defaraat jikko yi. Mm-hmm. nañ bàyyi jaay doole jaay doole dafa bëri ci dëkk bi instant nii mm-hmm. jaay doole bi bëri na ku ma am ndey ku ma amul ndey bi tamit bëri na fi mm-hmm. mbir li nga xam ne xew na ngor su dee tey bu ngeen fi def dara wala ngeen bu ko tënk dara man je pense que tey li gënoon mooy que waxtaan su waxtaan amee ba ay kàddu jib fa donc nañ ko jëfee mais doo ko def ci forcing forcing amul ci lenn lu mu baax kon donc nañ ci bàyyi xel man nag ñi may interpeller rek mooy kilifa diine yi. dañoo boole njaboote ñëpp. mais ñoo ngi toog dina suñu waxee ñu saaga ñu suñu waxee ñu lii mais dama gis ne ki ñu war a waxal lañ waxal la ko fi. ki ñu war a waxal lañ waxal la fi. il faut tamit mbir bi nit ñi ñeme mbir bi ki ñu war a waxal lañ waxal la ko fi. dëkk kenn du ko téye jaay doole. parce que population bi kenn moomu leen. donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax baax. Hmm, hmm? nañ ci bàyyi xel di rafetlu seen liggéey nag. jërëjëf. lii dafa ñaaw ci Sénégal Sénégal boo xam ne heure boo xëyee ay dangay comme si que dëkk bi guerre la nekk quoi chaque jour checkpoint boo dem gis fa ay policiers yu cagoulé wu policiers yu lii policiers yu lii ba kañ ça ne peut pas continuer. Hmm. c'est-à-dire instabilité ngay génn sa kër avant nga fay dugaat yaa ngi xalaat lu nekk at yi nga foog ne lii dina jur jàmm ci Sénégal. amul sens. kilifa diine yi laay interpellé man personnellement dama ne kilifa diine yi nañu wax ak ki ñu war a waxal. Mhm. yow soo buggee jàmm sa kër yow kilifa gi yaa koy incarné mais soo ko incarné wul jàmm du am il faut que nit ñi ne se ne se voile pas la face ñu waxante dëgg. Mhm. yow bii kilifa nekk sa kër doon kilifa yow yaay attiré jàmm sa jabar fekk la sa ay doom fekk la ñëpp mais soo xëccul jàmm sa doom day dugg néegam keneen dugg néegam jàmm du fa am kon donc ki war a andi jàmm ñëpp xam nañ ko na andi jàmm ci dëkk bi. Mm. Sénégal dañoo soxla stabilité jeunes yi liggéeyuñ les gens sont fatigués la vie est dure. ba mm. ñu bëgg a sonal nit ñi ci kenn xamul nañ kilifa yi dañoo xam ki ñu war a waxal. le problème mm. n'est pas voilà parce que suuf bi nañu waxante dëgg. Mm-hmm. sang bi soo soo joteeg man joteeg keneen joteeg keneen joteeg keneen yaa sikk mhm. te kenn ki mooy joteeg ñëpp su nekkul ci population mu ci suuf si moom ci lele moom ngi ci lele mu ci lele kon donc y problème te problème bi ñëpp xam nañ ko ñëpp situé mais ñëpp a noppi. ay mhm. ñaata cas moo am fu muy jóge ci ñoom les forces de sécurité et de lay jóge ñan ñoo leen di jox oto ca kaw kon donc ça veut dire problème c'est ñoom la. kilifa diine laa interpellé nañu wax ak ki ñu war a waxal parce que lii mënut a continuer. te rafetul ci Sénégal lii Sénégal bi nga xam ne pays de la Teranga bi ñu doon incarné nekkatu ko. man loolu laa amoon lu ma ciy joxe loolu laa amoon lu ma ciy xalaat lii du Sénégal franchement ñaaw na. Mhm. image du Sénégal instant yi au niveau national international dafa dem ba yàqu instant yi yàqu définitivement franchement. jërëjëf voilà. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ku baax ñu lay ziar. ñu ngi lay ziar baax ñu ngi lay ziar baax a dama bëgg a bokk ci xew-xew bi. wax suñu yaa ngi yaa ngi yaa direct waaw. ah nee nañ buur du xeex ak baadoo la. Mhm. wala borom baatum neen borom caqadu xeex ak borom baatum neen. Mhm. dafa mel ni caqadu wadd na nag. Mhm. léegi for ko moo des léegi. buur bu borom bu ne buur xeex ak baadoola mooy mhm. euh, boo boo ko gañee yow bu bett kenn te bu la gañee nga am gàcc mhm. réew mi li fi nekk dafa day waar lii moo danoon waa Wakaam fi Ablaye Wade nekkee mhm. problème suuf la ci amoon lépp xam nañ ko ñañ ko joxoon nit ñu jël ko di ko saax-saaxee di ko jaay ñun xam nañ ko di ñu ngi ci réew mi te ba tey ay coow ak li ngi réew mi li fi ne dafa doy waar sëñ bi nañ fexe population bi seen bëgg-bëgg moo compte parce que état bu fi nekk population bi moo ko jëmmal moo tax ba état mën a rek doon dara état mooy man mooy yow mooy keneen mooy keneen comme que ñoom population bi nee nañ lii lañ bëgg bi nañ leen defalal lycée ñu jàng si ak te ñoom dañu lay jógee paas ba vacam di paas di jàng bis bu mhm. ko bëgg comme comme état bi comme que population bi lay déglu nañ jéem foo xam dinañ fa mën a. du seen doom yi fa jàng déedéet waaye dañ leen forcé force yu def lii loolu état du defe du doxee noonu état day fexe xool tegee seen bëgg-bëgg mu saafara ko hmm. ni ñuy def ba élection jub see ñuy neexal population bi lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg yow mu jóglu population bi li tax du jóglu population ci ah. hmm. ñu ngi banaliser dox ma seet billahi di ñuy seetaan bis buñ ko buñ ci artu seen kaw la jëm si. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. jërëjëf. 77 842 19 19 ba léegi rek ngeen way di ànd ak ñun ci seen émission wax sa xalaat ñuy war a waxtaanee affrontement yi nga xam te ni moom moo xew foofule ca Yoff. Euh, fële ca Ngor mu mel ni daal ni ki bërgi démb tamit Yoff gis nañ li nga xam te ni xewoon na fa te comme li internet bi wax sàng rek ñoom koo jëlaat rek dangay laal moroom ji mu mel ni beneen xeex moo daal di judduwaat ndax su boobaa loolu mën na indi guerre civile ci dëkk te ñaanuñu ko yàlla 77 842 19 19 allo salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi lay ziar. ñu hmm, ñu ngi dellu ziar bu baax ñu woote waaye ñi lépp tur bi. alhamdulilah eh, ngi déglu ñu ngi déglu ñu ngi leen di ñu leen di seet ñu ngi leen di déglu bu baax seen seen seen waxtaan bi. Euh, waaye kenn xamul ñii ni brigade la ñii ni daal kenn xamul ba léegi maanaam motif bu bu gouvernement bi tax ñii dañuy jël dañuy jël makkaan boobu daal. waaw mais lu mu ci mënti doon maanaam loo gis rek problème foo mu gisee rek loolu dul maanaam fa mu jeexee fa mu commencé la maanaam dëkk bi maanaam ñu jiite mi. dañuy mhm. dagg jaay fu leen neex lañuy joxe. lu leen neex la ñuy def maanaam ba lotissement. Mhm. maanaam amul ci amul ci dëkk Sénégal ba mu daj. dangay xool bu ma bu boo rombee euh, mbedd yi euh, tel nga xam ni dafa route nationale doon yu mag yi. Mhm. amul amul beneen mbedd boo xamante ni da ci mën a dugg ba nga xam ni lii am mbedd mën a dama mat ay doo gis kër boo xamante ni day dagg mbedd bi wala. loolu comme comme comme comme comme daal ab ab dëkkuwaayu ay mala. Mhm. waaw tey boo demoon ci yeneen région yi man. waaye yooyu noonu yëpp maanaam moom mooy jur yu mel nii tey boo demee bu ñu naan brigade brigade la ñuy bu la ñuy fañ fañ nekkoon day day day day inondé bu tawee en tant que ñu nga xam ne ñoo yor suñuy kaaraange ci li ñu wax ndax ñu ngi ñu ngi toxoo ñu ngi toxoo rek suñu waxee lii da ma dañ faa bëgg tabax lan dañ faa bëgg tabax lan ay ay kenn xamul waaw ne maanaam ñi ñi ñi bàyyi xel loolu te ñu bàyyi xel nit ñi bàyyi xel gendarmerie yi bani bàyyi xel police yi ñun ñëpp ñëpp ñëpp saa ñi nekk di sonn ñëpp mooy mooy mooy mooy Sénégal yi ndax euh, police yi Sénégal leen ñu ñu Sénégal leen ñu bàyyi leen xel bàyyi caaxaan yi police yi tey boo leen gisee ñi da leen di yërëm ndax dañoo bàyyi njaboot ak seen i këkk yoo xamante ni tàngooru ñi maanaam coono yu nekkee yooyu yooyu maanaam maanaam nañ tëj dëkk bi si yoon nañ tëj dëkk bi si yoon bàyyi caaxaan yi hmm. Farba Ngom Farba Ngom du këram la xaalisu Sénégal la ñuy taal Farba kañ li commencé liggéey kañ la mën a am kër gu mel noonu. Mhm. nen nen nen dimbale Sénégal teg ci yoon Sénégal aw askan mënoo ñëw nii ni yow da def lu la neex loolu amul fen amul fi Europe gi ñu nekk fii sax te fii la yoon ëppee. Mhm. xam na yow mi nekkoo si dëgg mais teewul. dana la jéem a teg teg la ay daan yoo xam ne yu ndaw yoo xamante dana la euh, adversaire ne la lii kat bu ci jaaraat nangam nangam nangam mais di jaay doole di dóor di di tëj di def nii loolu baaxul Sénégal yi moom Sénégal ñoo ko moom du Macky du Sonko du keneen dañ dimbale nit ñi. Mm-hmm. jërëjëf. baax na jërëjëf jërëjëf. jërëjëf allo salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah ku baax ziar naa baax. ñu delloo ziar bu baax bàyyi si jàmm. ça va bien merci maa ngi si jàmm baax a baax. alhamdulilah. Hmm, juste maa ngi dugg léegi YouTube di euh, gis seen image. Mhm. Hmm, bëggoon naa xam nag actuellement le sujet parce que dama gis na à Ngor saa suuf la baaxee. voilà dafa am ay affrontement yu fa am actuellement. Mhm. Euh, force de l'ordre yi ak euh, population bi nekk foofu noonu. dafa am benn benn site benn benn endroit bu nekk foofu noonu. léegi gendarmerie dañ fa bëgg tabax benn parking. Euh, selon information yi ñam am population bi nag dañoo bañ loolu noonu ba indi ay affrontement foofu noonu. ok am na tamit benn benn homme buñ ca blessé ba ba suma assistance lañ ko yóbbu. ok ok ok ok c'est bien merci pour leeral juste que li may joxe comme contribution. Mhm. avant tout d'abord maa ngi apprécier seen liggéey. Mhm, maa ngi tudd Cheikh Ahmed Tidiane donc euh, di appeler tous les jeunes ñu def euh, ñu conscient di moytu yenn yi aussi. Mhm. parce que ni mu koy faral di waxee manifestation mënut a ñàkk ci réew mu am démocratie. mais nag ñu nekk une personne yi nga xam ne aussi dañuy bàyyi xel ëllëg suñu réew. parce que lépp day ñëwaat dellu ci si ñun parce que lu ñu yàq bu ëllëgee ñu ñuy mujjaat téye leen pour cacher. Mhm. de ce fait bu ñuy manifester ñu bàyyi xel alalu jàmbur yi nekk ci mbedd yi. Mhm. souvent dañuy gis borom kees yi borom téléphone yi borom ci yóbbu gars dañuy ñuy daaj nga am na ay taabul yoo xam ne peut-être maire yi nga xam ne dañuy góorgóorlu. Mhm. di xëy di jaay seen jën laa seen taabu seen mundu kër peut-être bañ koy dépensé jël jëlal na leen xaalis bu bëri si ñoom même bu dee quinze donc loolu lu mot a bàyyi xel ñu koy sóoraale. tamit ay jeunes lañ. Mhm. booy dañuy révolté léegi parce que dëkk bi moo fa tollu en combat. mais après loolu lay lancé samay mbokku jeunes yi ñu moytu ko bu baax a baax a baax a baax. Mhm. xam ne réew mi ñoo ko moom et ñun ñoo koy desee la. Mhm. peut-être que ma première fois may contribuer ci yu mel nii. mais bu ma gisee luy mét di yàq dëkk bi daf may métti d'une part euh, d'une part à l'autre côté bu man di nekk rek daf may métti. donc loolu laa doon def comme contribution maa ngi rafetlu seen liggéey bu baax a baax parce que permettre ngeen ma à ce que mu dund événement bi am fa. Hmm, jërëjëf donc jërë ngeen jëf merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf. 77 842 19 19 mu ngi noonu ngeen wéy rek euh, di ànd ak ñun ci li nga xam te ni moom moo xew foofu la ca Ngor allo salaamaaleykum. waaw ah, salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay waaw. maa ñëw rek am lu ma clair tuuti rek pour gars yi xam. gis nga gis nga li ma doon wax léegi mooy ñëw rek gis nga gars yi moo leen wane nii loolu taxul leen a jóg li leen a mooy sabote parce que boo xoolee ñu wax te lii gouvernement lii gendarmerie moo sol c'est pas gouvernement. moo lay wane Sénégal Sénégal du dem man dama am yàlla ba bari ñu dugg ñu xam dama leer te wóor moom bu ñu xool ay seytaane wala ñu xool ñi gën a bon ci àdduna wala ñu xool ñi nga xam ne nàmpuñu nàmpuñu mooy mooy dugg mooy ñaar jigéen ñu dugg dama yàlla baal mais dafa am loo xam dafa jékkul lu toll ni Sénégal ñëpp ñuy kontaan ci lii doxu ñaxtu yi nga xam day état moo soxla li mu soxla lii par force la dañ ko war a jël par force amul sa waxtaan luñ soxla dañ ko war a dem jël subito amul sa man ñu xam dëgg waa ñu xam lu waa même bu ñu xamul dara ñu dem jàngi lu yàlla baal gaa yi amuñu xam-xam yeewuñu dañoo ci xëy rek ñu dugaleen ci gaal dem wala ñu wutale visa ñu dem amuñu xam dañoo dem Europe rek defe ne yeewu nañ dem Europe te ñoo gën a dof boo xool ñu nekk Europe xaaj bi mu gën a dox ñëpp amuñu xel barke Rasuul la lu leer naa gis nga ñu jàng ñëpp Europe moo la ko tey nga bind ko boo xool ñuy mooy ñu jàng ñoo ëpp Europe ati Europe xamuñ sax lu waa Europe xamuñu Europe lan lay doon doxee mais Sénégal état bu soxlaa loolu kay jëru fa wax loolu bu la neexee buñ ci tas état lu mu jël moom moo ko bañ na kër gi même kërin moom sax ñoom moom ñu ko de même kërin que nekk Sénégal gi moom am na lu ñu ko bindal ñu waxuñu ñu moom dëgg la bu soxla ñu koy jël nen wax dëgg sa nit njëkk mooy mujj li ñuy li nekkee du yoon ak réewane kese la parce que mënu maa d'accord nga ñëw di sànni ay di yàq kër jàmm taal kër jàmm naan ay ay nangam li fii la bokk fee la bokk loolu mooy soxor ma la Sénégal kër wuta dara gis nga Ousmane Sonko li nit ñi bañ yàq esprit gars yu bëree bëri jigéen ñu dugg tamit amul kenn sa njaboot di génn nga jóg naan Macky Sall naan nga Macky Sall lii c'est pas Macky Sall lii gendarmerie noo soxla foofu pour sécurité ba waaye lam nag mooy fii moo demal ñuy jubuñu ñii ay sàcc la wala ay client wala ay rekkat nit la am réew kay bu ne ba ndeen di gendarmerie nga war a kontaan ah man nag ngaay mexe nga ma ma ma indi ma jox leen ñu leen jox utaleen ma feneen mais def la bu nit di wax dëgg naa ay état boo état man ku ma xamul dama ba Ndiaye Mekh laaj ci mm. man soxla wu am ma sa mbokk muy politique mais dëgg moo njëkk daal maa ngi Macky liggéey Sénégal liggéey bu rafet jaar liggéey ku. am ñoo xam ne woon naam soom xaj parce que yenn soxor gi yenn soxor yi du man du ak man kii benn. allo salaamaaleykum. moom na bàyyi population ngoor bi muy bi muy xas ci saaga na bàyyi loolu. ah <laughs> waa mais yow da nga ko war a couper xamal ci li muy def nii yëf ñi xamal nit ki am loo xam bu ko def yoon da nga ko war a raka da ko war a delloo si xelam ne ko li ñuy def yëf ñi parce xam nañ lu muy wax. moom ku moom affaire xam-xam la boo ko déggee bàttam nga xam lu ñu nekk Europe boobu xam xamuñu waa Europe moom lu mu bëggoo faaw mu laxale si Ousmane Sonko affaire bi du loolu la muy xeex très si doon nangul ko ko. Mhm. ah. Sénégal affaire bu kii ay da ngay dëgg te yàlla loolu loolu wax dëgg te yàlla mais li ñu li ñu gis la mhm. yi nga li ñuy xeex ku ñu met ne dañ ko xeex naan ay bandi la ñëw seen ñeen naan xam nga li muy wax nga xamul ci dara moom affaire bu affaire bu bëgg Macky Sall dong la fi wax. mais a tamit da ko war a jël parce que tamit ay junni junni ñi ko ci neen nag. Mhm. xam naa ñooñu doon namp ñu sax solo waxee dof yooyu. yow kay man d' na naa nga ànd ak Macky Sall ànd ak Sonko wax ko wax ko ci ànd ak wu dara tey rek bul waxee xool. Mhm. jërëjëf ku mu neex nga faral ku la neex Macky Sall ñu le président de la République kenn ku ne war nga koo défendre Sonko ñu ñu waxee xool la ko xew. xam nga dafa ñu kii ñu fa dëkkee yàlla juddoo fa mag yoo xam nañ la ñuy xeex. Mhm, même suñ taxi ay robel la loolu na nga wax leen ko loolu bu ko defee da ko war a coupé seen mhm. ah allo salaamaaleykum maa ngi lay ziar. ñu delloo ziar bu baax. naka liggéey bi. ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah. ñu ngi lay jaajëfal di rafetlu seen liggéeyandoo fi Feeling Dakar. jërëjëf. di leen ñaanal ci weeru koor wu tedd wu màgg wi. Mhm. yàlla na yàlla defal leen lu kawe seen jot. yàlla jéggal leen seen i bàkkaar. allahumma dimbale leen ba kër gi àgg fu ngeen ko foogewut. allahumma amiin. yéen da ngeen am solo lool ci dëkk bi ndax mhm. bu du woon ak yéen ñun ñëpp suñu kàddu du jóg du nit ñi dañu dégg. Mhm, dañuy toog fu sori di xam li xew ci dëkk bi te gannaaw yàlla yéen a tax. Mhm, jërëjëf kon damay jàpp ne bu dee ay journaliste yu vrai am na moom yéen lañ ko war a yéen lañ ko yéen lañ ko war a woowee. Mhm, ndax yéen a yéen a askan bi bu leen àdduna mas a bu leen mas a bu leen mas a wan ginnaaw askan bi nag. Mhm. Euh, di wax ne nag waa léegi doon wax euh, na wàcce na wàcce tàngooram te xam ne lii euh, amul solo te àdduna loo gis dafay jeex xam ne ku ne xam na ne yàpp baaxut. xeex baaxut amul solo amatu mujj waaye nag moom bu ci bëggee ñambaas Ousmane Sonko rawatina Modou Modou yi di wax nag amuñu ay xel ak yooyu maanaam na xoolaat bopp bu baax a baax a baax gis nga Modou Modou moom yaakaar naa bu amutoon yaakaar naa ne pauvreté bi dana gën a metti te ñàkk a a ñàkk dund gi dana gën a tar ndax ku ne xam ne ne Modou Modou moom nekk na loo xamante ni Sénégal li mu réglé ci Sénégal dafa bari lool loolu moom li ñaan lu na fànn du ko jeex kon moom na xoolaat boppam bu baax a baax a baax a baax wax na nag réew bi ki ñu ko jox mu jiite ko muy président bi xañ na dañu jël réew mi ko benn loxo réew kenn du ko yore benn loxo ñaari loxo lañ koy yore. Mhm. tax na nag kenn du ko yore benn loxo te moom benn loxo ko yore mooy daanaka moom dafa jàpp ne ñooñam rek la war a protéger. Mhm. ñeneen ñi nga xamante ne seen bokku ñoom moom xalaat wala bokku ñoom moom gis-gis day jàpp ne ji moom ba maanaam lépp loo xamante ne seen naqar la ak jaay dañ koy wan loolu nag amul solo kon daal nit ñi nañ delluwaat nañ delluwaat xel yi bu baax baax xam ne jàmm ñaan des koy dox wax ko rek. Mhm. jàmm moom jëruñu koy ñaan lu ñu dox di ko wax dong la. bu ko nekk dafay li nga war a def jàpp ci nga war a jàpp ñuy doxal dëgg rek réew mi kon lii yëpp du fi am waaye nag mooy ah jaay na yàlla génnuñu ci guute gii ñu nekk mhm. mhm. a ko wax ay am na ñoo xam ne si yoon mën na cee bañ a nekk sax te boobu ñoo ci yàqul wala ñoo ci dee wala ñoo bale blessé loolu lépp nag li ko waral mooy xañ na réew mi fi mu toll nii tension bi metti na lool te tension bi ku ko mën a calmer du kenn ku dul njiitu réew mi na woote jàmm def jàmm na woote dëgg def dëgg su ko defee rek réew mi dal nit ñi nekkaat ci li nga xam si ne moom lañ nekkoon yàlla yàlla def jàmm maa ngi jégalu ñëpp nag kàddu gi lu ñu dëgg rek ñu xam ne mata doomu aadama la waaye lu jub ñu sant ko borom tabaaraka wa taala yàlla yàlla def jàmm ci réew yëpp allo salaamaaleykum wa rahmatullah allo salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam Kouba ñu lay ziar. waaw sëñ bi foofu fan la Feeling Dakar. waaw yaa ngi en direct Feeling Dakar. waaw man de ma bëggoon participer rek di leen defarlu seen liggéey bu baax a baax. Mhm, jërëjëf. waaw man de bëgg moo dugg sax waaye mais dama bëgg tontu waaj a dugg sànq di wax affaire mooru mooru yi nga xamante ni yeneen amuñu xam-xam. Mhm. ça veut gis nga am na ay nit ñoo xam ne ñoom danoo yaakaar ni ñoom ils sont plus intelligents que que les mooy ñi nga xamante ni dañuy dañu di jox un million ñu war koo séddoo ak seen numéro mu doomu aadama ñu lekk un million yi ñoo ay traître la bi mhm. yaa dégg mais maire Ngor bi ku nekk dégg na li mu wax. Mhm. ah dafa am négociation la ñu doon waxtaan mais suñuy waxtaan même su dee état état état mooy état état mooy mooy mooy la population. Mhm. ah gouvernement dañu fi nekk pour lan pour taxaw pour taxaw population bi bu fekkee ñoom dañoo bëgg def benn affaire boo xam te ni mais waxtaan ak population bi. mais su maire bi taxawee ñu ñuy négocier di waxtaan ñu wëlbatiku dem xool ay fichiers yi ñëwaat daan ni waaw léegi xool nañ ni sa état moom lii kon léegi dañ koy jël par la force mais loolu amul respect. Mhm. mais nan respecté population Sénégal bi te bàyyi seen affaire yi ñuy def gis nga ñu ngi woo ak ñu ngi yee affaire yoo xamante ni ci sénégalais yi sénégalais yi dafa nekk ay nit ñoo xamante ni xamuñu coow. waaye suñu dof daf loo nag xoolal bañ ñu dugal leen ci affaire yi coow wuñu leen ci affaire ay cocktail mën a tof loolu c'est pas loolu xamuñu fan la réew mi jëm il faut ñu xool bu baax la ñuy def. man mhm. daal loolu la amoon damay wax quoi franchement parler. jërëjëf ok jërëjëf. jërëjëf. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum waaw sëñ bi na nga ñu sant yàlla bu baax bàyyi si jàmm. maa ngi sant bu baax dama bëggoon participer. alhamdulilah ñu ngi lay déglu yaa ngi en direct. maa ngi en direct. Mhm. waaw bisimilah. Mhm. Euh, bon man maa ngi tudd Daour Ndoye. Mhm. maa ngi dëkk Wakam. Euh, bon membre la Benno Bokk Yaakaar. Euh, ma bëggoon participer si li nga xam ne moo jot a xew Ngor. o di ko ñaawlu trop. Mhm. waaw maa ngi koy ñaawlu trop parce que nag Ngor amul lycée bu nga xam ne xale yi fa la ñu war a mën a jàngee. Mhm. amul lycée bu nga xam ne xale yi fa la fa la ñu war a mën a jàngee. comprendre ñu bëgg fa mhm. jël bëgg fa imposer gendarmerie am nañ fu ñu leen joxoon pour ñu mën fa nekk foofu day taa mais nañ jéem a xool nuñ ko mën a defaree ñu defar assainissement bi ut solution. pour Ngor yëpp parce que problème assainissement dafa posé wu si Sénégal bi yëpp. ah. Mhm. aéroport bi mu ngi fi. aéroport baa ngi fi lan moo tax ñoom mënuñu dem si biir aéroport bi ñu dagg fu ñu defar fu nga xamante ne nii mën nañ fa defar seen gendarmerie. Mhm. mais Macky Sall lépp lu nga xamante ne nii yaakaar bi ñu amoon si moom mu ngi koy yàq. Mhm. man Benno Bokk Yaakaar laa bokk. waaye fu mu toll nii sama benn sama ñaari tànk yëpp a ngi si biti. Ah. sama ñaari tànk yëpp a ngi si biti parce que nag réew boo ko yoree da ngay da ngay da ngay yor réew mi si jàmm ak salaam mais li mu réew boo yor da ko yor si jàmm ak salaam. waaw lu may wax. man li ngay wax ni li ngay wax nii bokk meeru ngor bi ñu ak moom toog ak kilifa yi waxaam ngor yoo ñu discuter ñu li ngay wax nii euh, baal ma man li ngay ah. wax nii bokk Benno Yaakaar loolu jafe na de. ma ne li ngay wax nii te bokk benn bokk yaakaar loolu jafe na. non mais tamit tam bi gis nga yàlla. Mhm. Mhm. dëgg la bëgg. yàlla dëgg te gis nga fii yàlla dëkk ci nit yi Macky Sall xool bu jaar. bi mhm. dara doonul dara. buñ ko xooloon ci ligne familiale. buñ ko xooloon ci koom-koom buñ ko xooloon ci leneen ak leneen kon kenn du ko fi teg. mais Sénégal dëkku dëgg la Sénégal dëkku yërmande la. Mhm. Sénégal dëkku maam El Hadj Malick la dëkku maam Cheikh Oumar Foutiyou dëkku maam Serigne Touba. Mhm. dëkku maam Limaamu Laay. Mhm. mag ñooñu noonu ñëpp dëgg la ñu mos a kon nag boo yor dëkk bi da koy yor si dëgg dëgg yàlla bëgg mais am na lu nga xamante ne nii jëkkul rafetul. plus de huit oto gendarme dugg biir Ngor di semé semé semé le bordel. ci mhm. biir nit ñi mag ñi feebar xale yi feebar jigéen ñi nekk enceinte ah am na lu nga xamante ne nii dafa rafetul jaay doole bi dafa ëpp si réew mi. Eh. jaay doole bi dafa ëpp si réew mi man nag benn bokk yaakaar laa bokk waaye am na lu nga xamante ne nii du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg. Mhm, réew mi moo jiitu avant dara. Mhm. waaw li ñuy def nii teguñu ko fenn man ànduma si tey ànduma si ëllëg. maa ngi gis benn waaye bu ñuy wax Californie muy toog di wax si si TikTok bi mu naan woy euh, lëbu yi li ñuy def xamuñu ko nangam nangam sangam sangam moom day jéem a seet lu mu defaree kotam. Mhm, moom day jéem a seet lu mu defaree kotam te lii nag bu mu si dugg de. Mhm. waaw lii bu mu si dugg na yem palaatam. moom dañ koy jox pour muy wax buñ ko joxatul mu génn génn toog bi yàq mag ñàll lu ko neex. Mhm. waaw. buñ la joxee nga toog arrangé mag yi buñ la joxul nga génn génn si biti eh, toog di yàq mag sàll lu ne loolu dafa baaxul. Mhm. te nguur yàlla moo koy joxe yàlla mi la ko jox bis bu namee pour jëlaat ko rek dina ko jalaat si say loxo kon am na lu nga xamante ne nii dafa rafetul. Mhm. rafetul. Mhm. ànduma si tey ànduma si sël ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakatu. jërëjëf. waaw. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum ñu ngi lay ku baax maa ngi lay ziar na ngeen def ak coono. sant yàlla bu baax alhamdulilah. Euh, maa ngi rafetlu émission bi waxtaan bi trop. Euh, jërëjëf. di wax nag euh, li am ngor moom ñu ngi koy si bu baax di ko gis mais nekk na loo xam ne. Mm-hmm. peut-être mënoon na ñàkk si weeru koor bi. Mm-hmm. ñëpp mën nañu ànd ak dal rek. Mm-hmm. tey loo xam ne ñoom bëgguñu ko. moo nañoo def médiation si waxtaan. ñu xool solution nu ñu koy def ba defe ko ba. te te te dara du yëngu waaye réew mi bu dee lu am la ñu génn armée génn police. loolu man jàpp naa ni war a ñëw beneen métier beneen beneen beneen beneen defar beneen boo xam ne beneen jëf la boo xam par par rapport a lu mel noonu. ndax réew bu ñu ko bokkee te te la ngay def askan bi moo la koy def askan bi bëgguñu lii mais te yow fu mu koy defee am nay kilifa woo kilifa yi ngeen waxtaan. askan bi ñu leen ah ñun ko lii lañ bëgg ki def ci biir waxtaan kilifa yi d'accord nañ kilifa yeeg kenn jóg na d'accord nañ nañ bàyyi nañ nañ fa def nangam mais pas bu dara amee ñu génn armée génn lépp loolu yaakaar naa dafa du réew exemple réew mi jaay doole bi ñuy def nii man jàpp naa ne amul lenn moo defar ci réew mi loolu yàq lay def. Mhm. bu dara amee nañ ko taw waxtaane ko defar ko ñoom ñoom ñoom ñoom la état bi bëgg moom bëgg na kaaraange waa dëkk bi waa dëkk bi ne bëgguñu lii te yow état yow ñu nga jiite ñëpp. da nga war a xool leen li mu bëgg nga di ko def mais ñoom bëgguñu lii mais yow wooteel waxtaan ak kilifa yoo fa nekk am na foo mën a jàll ko diine la. mais par rapport ak ñii di sànni de xeer di gaañ ñii def nii loolu mën na ñakk ndax gis nga mbir da koy topp di nga gis ëllëg bi mu jur loo xam ne day dem ba mujj loo moo la ñàkk te lu ndaw lii rek bu mu tax dëkk bi mu déborder te naa pour mu déborder loolu mu ngi dépendre si ñi jiite ndax am nañu beneen yoon bu ñu mën a jaar paa ñuy génn armée police gendarmerie ñuy dóor di gaañante te amul benn njariñ hmm. réew mi ñoo ko bokk ñoo ko bokk te ñu ñu fi ñëpp ndaw ñoo fi ñoom nee nañ li ngay def nii enragé wu leen mais waxtaan leen ko paal yi. Hmm. ma bi ba léegi dama dama dama lii mënul nekk ma xool mu nekk dëggantaar mu nekk en direct damay li ma a ñàkk. depuis jour barki démb Cambérène la woon tey si Yoff ah lii mën na ñàkk kon état bi ñu xool nu ñuy changé euh, affaire bi dafa ko beneen défi mais par rapport euh, di di génne gendarmerie génne police ñuy jàmmarloo xale yi. Mm-hmm. loolu mën na jur leneen loo xam mën na ñàkk. nañ ko waxtaanee te loo xam mënu loo xam ne ñoom ñoom état lu lu lu neex waa dëkk bi lañ bëgg. waa dëkk bi nag bëgguñu lii kon yaakaar naa ne waxtaan war nañ mën a am waxtaan boo xam ne loolu mooy gën a yomb génn ay arm génn lépp suñuy suñuy suñuy économie réew ci taxaw. Sénégal da si perte loo xam ne mën na ñàkk ndax loolu ñu génne ay millions lañ ciy perte te mën naa ñàkk te mbir boo gisee muy dem da ngay jéem a xool noo ko fàngee bala moo jur leneen moo gën. nañ bàyyi lu am ñu génne armée pëlé bi booy léegi li jënd wuñu armée ba pëlé te loolu baaxul si dëkk dëkk dafa am loo xam ne bu amee il faut ñu xool luñ ko organiser mais paa dara am ñi ñi génn ci doole am euh, ay ay ñi génn armée génn police loolu baaxul en tout cas li ñuy ñaan mooy nañ toog waxtaane ko Euh, affaire nekk si jàmm moo gën nit ñi nekk si fer corté si nekk si ndax jàmm moo moo moo jik Sénégal te moo jik réew mi te moo jik sax fañ koy defee ndax foofu dëkk din diina la te suba dañu war a julli te boo boobaa bu fa jàmm amul te kon xel dax du dal foofu kon ñu ngi ñaan suñu réew na delloo si xelam xam ne moom ñu bëgg moom tey askanam moom la koy defal te askan boobu bëgguñu loolu na waxtaan ñoom te loolu moo ko fi ndax lu neex askan bi moo tax da war a jàmm soxla askan bi mais pas ngay jàmm loo xam ne askan bi bëgguñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam bu baax ñu lay ziar. maa ngi lay ziar di leen gis na nekku na def. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax. man de dama doon intervenir rek par rapport aux événements de Ngor la. Mhm. pour vraiment di wax ne jaay doole réew mi dafa ëpp. Mhm. gis nga dafa am loo xam ne askan boo ko teg. Mhm. loolu laa jig nag moom la nitu ngor yi def te dafa wane ne mais am na loo xam ne boo ko bëggee teg ay population imposé leen lu ñu wax nga indi police indi gendarmerie man mhm. dama déglu seen maire bi sax sama yaram bi dafa daw xam nga ñooñu c'est des hommes de paix dem nañ ils se sont organisés ils ont discuté ba am un protocole mais ñu ñëw bëgg ñëw rek indi ay seere ki suuf di leen jaay doole parce qu'ils ont la gendarmerie mais gendarmerie askan bee leen ëpp doole police mhm. askan bi moo leen doole ñoom xamaguñ ne ba léegi askan bi sax jógul gis nga waa Ndor wane nañ exemple bi wan nañ ko askan wi yëpp am na jaay doole fu muy àgg gis nga bu askan bi jógee danañ xam ne police mënalu leen dara mhm. gendarmerie mënalu leen dara ñu mhm. bàyyi jaay doole bi askan bi xajul ci gendarmerie xajul ci police ak Ousmane nag nga bëgg a ñëw fu suuf am ñu ñëw bëgg ko indi jaay doole. dafa nga ne lii rafet na ci pour une gendarmerie. su implanté une brigade ma. population ba ne la bëgguñ ab lycée lañ bëgg. ah ñooñu ñoom xam nañ li leen baax nañ ne ñii ñooy ñëw di wut ay armement di daal ci population bi mais population yi xam nañ ne suñ jàngee jàngale seen askan suñ fajee seen askan suñ leen jéemale wutale ay ay projet moo gën ñu def ci ay taxar qu'est-ce qu'on a à faire avec une caserne de gendarmerie à la à Ngor mais il ont raison je de tout kër ak ñoom ngor daal wan nañ Sénégal bi yëpp ne fulla mooy jaay Dakar gendarmerie police ñu boole leen askan bi xajut ci ñoom dama koy wax léegi mu leer na ci ñëpp jël exemple na ñëpp taxaw tem pour que nag jaay doole bi moom mu daj maa ngi leen di gërëm. jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum. allo maaleykum salaam. maa ngi dégg xalaat. waaw yaa ngi wax sa xalaat yaa ngi en direct. maa ngi am jàmm. sant yàlla bu baax. waaw ci nga saxaay ngor ngor waaw boobu seen numéro bi nekk noonu mhm. mais lu ma jaaxal mooy gars yi ñu fay affrontement di di kaas mais foofu noonu bu fi pourquoi bu fa laabo yi nekkee gars yi ñoom mhm. ñu am ay laveur boobu ñu fay oro dafa def lu ne kenn kaasul waa ngoon jóguñu pourquoi ñu jox gendarmerie bi ko ñëw rek gars yi ko kaas bu loolu mhm. loolu pourquoi gendarmerie bi euh, nekk fa ñu di ba kaas te lu ne am na fa Mm-hmm. lu ne dafa dafa koy oto am na fa tey oto am na fa laawaan am na lu ne am na fa te waa waa Ngor kaasu ñu. Mm-hmm. waaye léegi pour kàttan ñu wax ko de sax ni muy waa Ngor di kaas. Mm-hmm. mais lu toll ni Ngor lu toll ni Ngor Ngor almadi amul sax numéro bu mag loolu loolu du yoon. allo oui maa ngi lay déglu. Euh, bu fekkee mën nga daal di dugal rek euh, nga daal di ñëw allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. monsieur Noo Thione. ñu delloo ziar bu baax yaa ngi en direct fii Dakar. mbaa am nga jàmm waay. ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah. alhamdulilah. Mhm. saa saa Touba la. saa baax a ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. di bu baax a leen jox seen wàccuwaay. Mhm, jërëjëf. waaw man damaa gis euh, gore mel ni dañuy gisoo ba léegi ñu xeex. Mhm. te man wax dëgg yàlla xaw ma nu mu demee. wàllum suuf daal laa dégg ñu wax. dafa am benn espace dafa am benn espace bu bu euh, bu bëgg a jël def fa ab euh, parking. Euh, gendarmerie yi ñoom loolu lañu bëgg def foofu benn parking ci benn site bu nekk foofu noonu euh, te population bi nekk foofu nag selon suñu ay information dañoo bañ ne loolu du fi amee ndax ñoom tamit benn espace boobu rek lañ dese foofu wala ca Ngor waaw xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga Sénégal moom boo bëggee dégg dëgg mm-hmm. maanaam li ma yàgg a wax rek yàlla xam ne ñi fi nekk nii mm-hmm. maar bu bëggee dëkk bi mel na ñi fi nekk dem ci jóge mm-hmm. ndax li tax mooy mënoo gis ay xale di xeex soo ba léegi. Mhm. mënoo ne mënoo ne mënoo ne mënoo ne mënoo ne ñi ko responsabilité yëguñu ci teguñu ci bët. Mhm. loolu mënut a nekk. Mhm. lii xew di di xew depuis dem ba tey depuis ci suuf ba tey moom laa doon wax. lii xew di ci suuf ba léegi. mbedd mu soo xool di ñaan xale yaa xale yaa xale yaa def nga dàqante. xale takk nañu wax ne seen dëgg nañu wax ne dëgg takk nañu mënuñu xale yi dara. xa mënuñu xale état mhm. te lii kenn mënut a wax ne kenn mënut a wax ne état bi tëddul ci bët. nañ dimbali Sénégal yi ngir yàlla am na ñoo xam ne am na ñoo ne dañoo war a tey am na ñoo xam ne dañoo war a jaay ngir lan ngir amaana lu lu lu lu lu jënd seen cor seen cor seen cortège bu soobee yàlla. Mhm. mais depuis boobu ba léegi waaye nag lii moom lii moom képp ku xam képp ku xam lii du la bett ndax am na bàyyi njëge joo bàyyi fan yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko. waxoon na ne waxoon na ne lii yëpp maam Cheikh waxoon na ko ba yàgg maam Cheikh Rafal nee am na bés mu woolu ay mu mu woolu mu mu mu woolu ay ay ay ñetti ñetti ñetti ñetti ay ay ay taalibi lim balaa xamatul mu woolu ay taali taalibi ba ñuy ñëwee dañ ko fekk muy gas ñaari pax di tibb ci pax mii di suti ci pax mii di tibb ci pax mii di suti ci na mu jékki-jékki ne ne xanaa li may jaaxal na leen de ñu ne ko waaw li jaaxal na mu ne ah damay denc sama suuf ndax Sénégal des na tuuti ay sàcckat suuf doo nga fii dëkke imagine loolu kañ la ko waxoon booba sama maam sama bàyyi sa juddoo mhm, ndeysaan mu barke alxuraanu kay nit la ko waxee mu ko mu ne ko ñu fekk mu tibb ci mu ges ñaari pax di tibb ci pax mi suuf na tuuti ay sàcckat suuf doo nga fii dëkke loolu mi ci Sénégal ku ko ku amut nañ bàyyi nañ bàyyi bu dara xewee xaalis di génn di sànnante ak takk der yi ñu toog seen biir saal di seetaan nañ bàyyi loolu gis nga gis nga képp ku ñu moo tax yi am na ñoo xam ne waru leen waru si lañ ko dénk képp kuy dénk responsabilité war nañ ko jàngal ëpp mun naa toxoona isa ja akal mun naa toxoona ba mu xam nan la ko yàlla teg koo ci ci indil moomu ab naa fekk mooy gis dara lu mën a indi jafe-jafe askan wi mu mën ca dara toog na le toog na lem mu mel ni ko gis déggut te nag lii buñ ko arrêté wut waat naa ko ci Cheikhul Khadim dinañ dem ba Sénégal waxuma président bu fi mën a ñëwati maanaam maanaam xat gi tooy na booy gën daal ay ay taataal ay fël. xam ne nag amatul kenn kenn kenn kenn kenn ku ko mën a lijjanti ndax président boobu mënut a doon maanaam xat gi tooy na gënuñ gën ay ay ay ay candidat ci digg télé bi takk der yi gën ci xeex ak mhm. loolu daf ci yaay xew kitaab bi am na luy raam jëm ci jàpp bis bu àggee. mooy réew mi moom ku kenn képp kuy taxaw di ko yor yaay ëpp jafe-jafe ko koo mën a gis te Macky Sall li mu yàq ci suuf réew mi dafa bëri jërëjëf Macky la journée ko tudd moom ñi faral Macky bu naan ay di di commencé gaz en classe Fatou Ba gi Macky Sall la ku ñu fi Ousmane dégg nag mu gis ne xale yaa ngi xeex ci suuf ba léegi mu am mu am mu am mu am maanaam maanaam responsabilité bu toll ni bu doon dakal ko ban taalibeem gaz lacrymogène lañ koy Sénégal yi seen xaalis la ñuy jël di ko xeexee. jërëjëf xeexe suñu xaalis nag. mooy takk der yi ñuy fay di fay ñu ëlbatiku di xeex ak suñ gaz làkk remouché bi ñuy sànni ak xaalis la boo xam ne Sénégal yi jënd seen xaalis kon nañ bàyyi di seetaan seetaan baaxul ab seytaane képp mooy seetaan ab seytaane mooy gis mbir maanaam gis na lii mën na ci dara maanaam mu lànk bañ caa wax te kooku am na ci responsabilité lan moo tax seen seen seen loi yi nga ko ci français lan moo tax seen taxi ne boo fekkee nit ñu koy néewal doole nga mën cee àddu àddu Sénégal gis gone yi di dàqanteeg takk der ci ba ñu ne xiim waxuñu ci. Mhm. fii bët bu rusutul dafa am loo xamante nii ku mu ndey la ku mu amul ndey gis nga réew mi ñoo soxla seen seen seen seen territoire yi. li li li yëpp Ousmane Sonko Ousmane Sonko wàllu li yëpp déclaré woon na ko nee na képp ku ñu joxati ci territoire Sénégal gii amagoo kër bu dee entreprise la amagoo ak koo mën a doon amagoo loolu dong bokk na ci li gën a tax ñu gën a buntu soo ba léegi ñu wóor sànni ay gaz lacrymogène ci kaw étage jàmbur yi. Mm-hmm. mais ñii amaana am na ñoo xam ne ñu def ci kër yi feebar. Mm-hmm. gis nga Macky Sall. Macky Sall bu ko bul bul jumaa ju mën a julle bu jëru kenn baal maak fii kenn ku fi baal àq néew fi jëru muy julli ji jumaa naan kenn suba euh, euh, suba ci aju ci iib ji ji ci iib muy julli ji naan ay baale maak fii kenn ko fi baal ndax li mu teg bët mooy ay nit ñu woo toog nekk ñenn ñi ne seen i kër sonn ñenn ñi bëggoon liggéey dàq sax fukki dërëm wala juróomi dërëm ci ay ay ay ay bénéfice ci ci événement bi nga xaj leen ko. lii nag moom moom mooy mooy responsabilité. benn nit bu si génn nag di am lenn looy balaame xale yi am naa féq bu mag la ndax Macky Sall la mu dégg suñu alal dégg suñu takk der takk der yi moom moo mën a wax ak ñoom. xaw ma koy joxee or xaw ma koy joxee orlu waaye lépp ndax bindikat yi noonu bindikat yi nañ nañ commencé bindi la xewoon depuis mois de mars ba tey jii ba keroog 2024 nan noome lépp lépp luñ fi dox loo xam ne di yoon ñii bu ñu wàccee ñu rendre Sénégalais yi compte hmm, parce que ñoom moomuñu réew mi doon ñu ko ci ndey ñu ko ci bàyyi bu fekkoon dañuy doon ñoom duñ doon dara bu fekkoon dañuy doon fii réew mi kenn mënu ko fee doon lii dafa ñaaw xale yi nga gis ñuy xeex soow ba léegi hmm. man donte man sama yoon nekku ci ci li ma mën a wax ndax man naa ngi fi Touba Dakar 2600 ak géejoon maa ngi sama huit ans maa ngi koy dugg teguma sama tànk Dakar maa ngi ci waa am jàmm fii kenn gaasuma kenn defuma dara bu ñu wootee manifester a ma bu ma gaas laa kër ma seen xëy na maa dem Mbàkke déplacé wu xeexal sama réew lu dul loolu man gaz lacrymogène dama xëy fii dëkku dëkku suñu tubaab bi génn mu ko déw ma fa amoon benn soxla Ndakaaru waaye lay xew Ndakaaru samay mag a fa nekk samay doom samay mbokk mhm. samay mbokki julli samay mbokki dëkkandoo kon bu nangu kenn ku ne ne fa nga ne naan man lii sama yoon jëruma wax jëruma ci mhm. am xamante ne nii dafa ëpp nit ñi teg nañ ci seen bët lillaahi wa bu fekkee ne Macky Sall xam na ne la yàlla digle woon la yàlla digle woon tey la yàlla diggoon ba léegi gisaguma benn sëriñ benn sëriñ bu génnagul ci télé naan yàlla ne la la la mu wax ndaro dana yoon wa awan sa war a ku fa jaar taw àddina nga jëm wala yoon wa jëm àddina ku fa jaar sa war a nga jëm loo xej ji xej ji dee di sa gan te loo ko bernde lu dul sugru du génn sa kër bu digg ba jeexee ba ba ruuga yu jale keroog moo gën di metti juróom-ñaar kira buy sori képp ku bàyyi xel ru ci teg ruu bu la neexee nag maanaam nga toog ci nga toog leneen Sénégal buy defuk tuum sama yoon jërëjëf gis ngeen yéen journaliste yi nga xam ne bi ci suñu ba léegi yéen a yéen a wante man parce que man yéen li xew bu bu ma bu ma bu ma leen si am doon du ko xam kon dañ leen a war a doole jëmmal leen dañ leen gën leen a may kàttan gën leen a may doole télévision yi nag bu fekkee dañ leen a aaya ñuy war a ñuy xew ci réew mi seen caméra yi nañ ko jaay jënde ko si ngor xalifut yooyu ko dem seet ne nan lu ñuy def parce que dafa loo xam ne dafa ñaaw ci réew réew mi di ko ko du si yi ñu del gaz ay lacrymogène foo tourné rek foo tourné ci mbedd foo tourné rek gis lenn lu ñu lay wan rek maanaam boo xoolee ak site moo koy wane. Mhm. kon loolu mooy wane ne yéen lépp lu ngeen am yóbbu ko seen kër leew na leen doom. Mhm. parce que barki alxuraan lépp lu ngeen am yóbbu ko seen kër leew na leen doom ana ki journaliste bi gën ñu koy gaas ay lakkal mosul mu gën këram takk ay dàllam ci suuf ba tey daw. Mhm. jërëjëf. na ay laylatul xadar wala war ay ay ay ay ay ki gàmm wala ay ngénte ki ay ay théâtre loolu xoolal man mi sax mën naa ko. gis nga liggéey boo bëggee muy law da ngay gis fu liggéey bu méttee nga génn waaye bu fekkee ne ay daayira la wala ay ay ay ay anniversaire nga génn taal say caméra kenn du la a kenn du def boo bëggee liggéey bu lew lépp lu lépp lu soxal réew mi rek taxawal ca loola lépp lu soxal réew mi taxawal ca loola xam nga coow mhm. ba léegi journaliste yi mag yi ñu beneen ñu daw ci naaju tàng yi woor ba ngoon woor ba ngoon jot ñoo ñuy ñoo ñooy séddoo yëf yi ndax ñoom ñu ñu manifesté yi mose gàtt la kar mose ni ñoom foofu laay jeexale foofu laay jeexale foofu laay mhm. jeexale man Ousmane Sonko mi sama leader waat naa ko ci alxuraanu karim bu yàlla dogaloon mu yor réew mi tey di buntu xatal di buntu xatal benn journaliste maanaam mboolem carte mboolem positif bu mu amoon maanaam bu ma ko soobee rek naa fekk laa. ndax dafa am loo xam ne ci nguuru Macky Sall gi laay bu dee ñaar fukki dem kër gi sax ma koy woote da koo kaas ne tey Ousmane Sonko yàlla dogal na mu yor réew wala keneen ko munte yor lu mu munte xeex mooy am na ci ñoo xamante ne nii képp ku ci ànd àndoo ci dëgg àndoo ci yoon te bu ëllëgee maanaam fa ñuy àtte naa fekkee jàpp na yow am nga fa ngandub gétt mooy gis lu yoon nga teg sa tànk ne lii sama yoon nekku ci xale yeeg léegi nag ñii fi nekk di xale yi kan moo yor responsabilité nañ laaj loolu bu dee suuf lañuy suuf suuf la ñuy kaas xale yi ñoo moom seen seen suuf gis nga am gox la fa nekk ni leen ko bàyyee yow mii da bëgg bu amee bu bu bu boo yor sa xaalis jëndal sa sa kër bu ëllëgee. man mii bëgg naa ko keneen ak keneen bëgg na ko waaye léegi boo fekkee ñu sàcc suufa si Dakar si yëpp jaay ko wala nga maag fekk ñu sàcc territoire yëpp jaay ko yow bu amee xaalis boo war a jëndali sa kër sa doom kër noo ko jëndali kër nga yëkkati xaalis ko te ñoom ñaata kër lañu yor ak ñaata parti seen kër yi ñaata parti na oto ko nekk te liggéey luñu Sénégal dara fii nit di xoolal billahi wal kitaab Sénégal ñi fi dàq fayeeku ay milliards waat naa ko ci alxuraan tam am amuñu Sénégal benn am njariñ te Macky Sall nag ba ci gën a gën a suufe laa yor te Macky Sall ba liñ yor ci ab liñ liggéey loolu askan toll noonu ku ciy wax da ngay énervé waaye li ñu xam amee xale yi àq la ju métti nit ñi woor ba ngoon jot nga di leen saan ay gaz la moo ko lakk rek ma seen Macky amee na Sénégalais yaatu amee na Sénégalais ku ko wax ak ku ko gëmul nag am na bu fekkee nag ku wax mu jëli la wala ku génn mu ah, di manifester mu jël si la bu yóbbu mu paree jëli Sénégal yëpp moom bu yóbbu mu tabax si bu xaw ma si bu xutaan nañ ko xaw ma àllub ko neexee na fa tabax téeméeri kaso pour jugal fa Sénégal yëpp bu fekkee nag Sénégal yi bëgg bëgg seenum réew bëgg lu baax la fa séenee jàpp bu ko neex na jàpp bu fekkee naafiq yi ànd ak moom ci loolu ñoom mot ñu pour cent Sénégalais yi jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox seen wàccu bu baax baax ak contentement tamit ñu jël appel bu mujj bi doog a arrêté. allo salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam Baye Alé ñu ngi lay ziar. waaw euh, solo Serigne maa ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu baax alhamdulilah. Baye Alé ñaa nga de porte parole tamit bu Pape mhm. ne wax euh, ci euh, xam te mu nekk woon fajir. Ah, maa ngi ko nuyuwaale bu baax. li mhm. ko ñaanal rek moom tamit jigéen la ju mhm. jigéen jàmbaar rek mu ngi soofu wàllu faj. Mhm. yàlla na ko sama borom ba génn ci situation yi mu nekkee noonu. muy caba caba la tudd caba. caba ay caba. Hmm. Euh, concernant li nga xam ne xew na tamit tey jii nii sama sëriñ. xam nga affaire bu doon ay sage. Mm-hmm. man damay laaj change bi fan la nekk. nga léegi lépp am change kay xanaa parti politique war naa am ay change. Mm-hmm. ah. Mm-hmm. waaye ñoom fan lañ ne change bi ñuy APR yore Macky Sall ñi lekk xaalisam fan lañ ne laay nekk ñi waa APR ñi lekk seen xaalis fan lañ nekk. xanaa am na ay sax ay imaam yu mën a dox jàmm ci réew mi. man gis naa pale ba yoo xam ne Macky Sall daf ne ay chargé de mission ay imaam foofu waaye ñooñu am sama mm-hmm. sëriñ. Mm-hmm. réew moo xam ne kenn du ko jàpp ñëpp a ngi toog di seetaan. Mm-hmm. te heure bu Macky Sall di jox am xaalis ñoom ñëpp fay rang séddoo ñoo ñëkk a séddoo xaalis bi lekk ko ba mu jeex tàkk. ah xanaa lii non non maa saa ji rek saa ji rek saa ji affaire rek waroon nañoo jóg rek defar ko. parce que lii malentendu am na wala boog li may def maa ma neex par force laa koy def te waroo ko fay def loolu war na war nañ jéem a jóg. Mhm. mais sa waay ñaari semaine ngi nii ñuy xeex rek parce que sonal militaire yi sonal gendarmerie policier yi mais sa waay Macky Sall mhm. ana yi ana nit nii xanaa état mu dee dee kenn du ko yore nii téere mhm. boo xam ne ma booy sax kaptaan nañ kaare xanaa ñëw roon nañu jox ne xaaral kenn jóg rek mu ne xaaral ma jaayante ak sa borom may leen jox leen beneen terrain te jàmm am Macky Sall li ni yor ci ay autorisation xam ne maa ngi jaar fu ngaa jëre bu ko neex mënul changé kii boobu yóbbu leen feneen te jooy doy te te dimbali ñii waa Wakaam yi. Mhm. maa ngi ñaan président de la république. Mhm. billaahi wallaahi taala bu laajoon Ablaye Wade ana signature Ablaye Wade di ko seetlu nga fu mu doxee yow sama sëriñ. <laughs> dana waat. signature Ablaye Wade loolu tegu boppam yooyu yoo xam ne nii moo ko bindal boppam ab tegu boppam bu mu mën a may mais fi dara mënatu ko si si biir réew mi Ablaye Wade. ab bu jóg fu mu dund benn signature mënatu ko def décret mu toll ci biir réew mi. jërëjëf. ah. mais pourquoi ngay daanaa président li ñu yor ci ay ak yëpp nga xam ne fu ko neex yóbbu la bu ko neexoon e jii nii Amérique la la yóbbu. mais ni mu dem ci ne yeneen terrain may ko ñu jox jox ko militaire yi nga xam ne militaire yi nga xam ne police gendarmerie yi. Mhm. te te te dimbali waa Wakaam gi nit ñi yendoo fan yi yëpp lii rafet na. jërëjëf. non man daal vraiment am naa lu ma naqar trop franchement man daal président de la Thiel vraiment daal xam nga nag li waa ji waxoon rek nguur gi bëgg a jox sa pëy yëngu jërëjëf. léegi jàmmul ba semaine bi semaine bi yëpp depuis si lundi ba léegi nii nii lay nekkee. Mhm. Ah, ba ba léegi paas ñu nga woon ba léegi jàlloo ko am tamit surtout euh, affaire pêche beeg yooyu ñoo si du mbokk yi ñu jàppoon yaa ngi koy fàttaliku booy dem Yoff. Mhm, jërëjëf. ah fan yii yëpp ñu ngi ci ci ci Dakar. non président bi amul sax eh, ah, ay nguur gu nguur gu jeex moom wala ba koy bëgg a jeex Idrissa Seck ko waxoon de Idrissa Seck mii moo ko waxoon tey. te dégg naa ko moom tamit président recevoir na ko jënd moom it nee na la mu bëggoon a def pare na ci xaw ma xam naa ne benn bi du bokk ci mais moom itamit dégg naa ko moom it di respect. dégg naa waxtaan waxtaanaan naa ci tànn. mais moom bu demul baalu ci Ablaye Wade ak xalaat di respect même bu ko baax a baax bu tax mu ñëw jënd dëgg. parce que Idrissa Seck dafa ñëw falu ba pare jaay ñu. Mhm. dafa jaay suñu quartier yi dafa benn am ñooñu buróokum soow. am na ko wax léegi seen Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag yàllaa ko dimbale. Mm-hmm. képp ku koy xeex doo jógee ci fitna. képp ku fekk euh, Ibn Ousmane Sonko Ousmane Sonko ci musiba wala nga di ko xeex dama ne la doo jógee ci doo jógee ci coono doo doo te du doo fi noppaloo. nelaw yi day tamit da lay manqué ba ba ngay dee nelaw yi day da lay manqué ndax yàlla moo ko def. Ousmane mm-hmm. Sonko yàlla moo ko indi. jërëjëf yàllaa ko indi man ak moom man mbokk ma ak moom partie mais Ousmane Sonko yàlla moo ko indi. Mm-hmm. yàllaa ko indi moo ko fi teg. jërëjëf lii mu tënk ñu lay wax ñu mënul ko dara dara dara bu soobee sunu borom. benn remplacé Macky Sall par force te Macky Sall jeexal na bokkatu ci élection yi daal ma maturité bu ngeen def APR amatu maturité jeexal nañu. jeexal nañu maa ngi lay gërëm baax a baax di baal ñu baax a ndax te lii moom bu soobee yàlla li ñu am fanweeri fan ci weeru koor yi ñuy ndokkee Sénégal yi yëpp di ñaan réew mi yàlla bi yëre jàmm dafa tëri. Mm-hmm. yàlla yàlla yokk jàmm ci réew mi. yal na yàlla tasaare jàmm ci réew mi lii yëngu nii yal na ko yàlla yàlla def ndox mu sedd. Mm-hmm. yal na yàlla def jàmm ci àddina bi yal nañu yàlla mu seytaan ak lamiñ ak set ak uh, musiba ak balaa ak wax bi bari coono bu dul faj yal nañu yàlla jàppale yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na yàlla ñu ndox ci réew mi. jërëjëf la yàlla waxoon ne yow uh, Ibrahima yaa naaru doom yi la ko bartan bartan wa salaaman wa salaaman Sénégal bartan bartan wa salaaman Sénégal jërëjëf jërëjëf kontaan naa. ayca mu ngi noonu mu nekk lu doy waar la xew foofu foofale ca Ngor mu mel ni daal ba fu ñuy wax ak yéen ni affaire yi mu ngay gën a dégénéré mais duñ def dara rek dañ leen di bàyyi ngeen wéy di continuer di topp image yi noonu boo defee ngeen gën a dundaat euh, situation bi ndax ba fi ñuy wax ak yéen ni mbir moom mu ngay gën a doy kon mën ngeen ànd ak image rek ngeen wéy di ko topp incha allah. voilà gis ngeen euh, gendarmerie yi noonu ñëw oto bi ñëw na ba taxaw jàkkaarloo ak euh, li nga xamante moom moo di euh, xale yi gis nga gis nga ko noonu mi ngi xool fu muy wëlbatiku gis nga ko nag moom mooy tireur bi moom ci kaw oto bi lay nekk gis nga mi ngi xool ci ci étage ndax ñun ñoo ngi fii wala dafa am ñeneen ak yooyu pour mu mën a gazer mais ñun dañu xaw a làqatu ba def telle sorte que ba duñu duñ duñu mën a gis loolu gis nga noonu oto bi ñëw na taxaw ëlbatuku jàkkaarloo ak euh, ñi nga xam ne ñoom di ndaw yi ñëwoon ba côté bi taal si ay pono ak yooyu euh, ñoom nag gis ngeen nii dañuy làqatu rek pour mun di leen jox image yi ngeen di ko gis actuellement nag. mooy li may wax rek eh, xale yi ñoom daw ñu ci taay wuñ dellu deltuwuñ gannaaw benn yoon ñi ngi taxaw pour mën a jàmmaarloo ak ñi nga xam ñoom ñoo di woy takk der yi gis nga ko noonu mi ngi mi ngi jéem a xool ndax ñu ñun la wala am déet eh, eh, pour rekk mu mën a gis ngeen ko noonu voilà takk der yi ñu ngi ñu ngi noonu gis nga am na ku muy comme ni ngeen ko gisee noonu rek takk der yi ñu ngi taxaw pour euh, jàmmaarloo ak euh, xale yi ay jàmmaarloo yi méttee métti métti gis ngeen ko xale yi ñëw nañu ba fii taal fi seen ay pono Euh, delluwaat ci beneen wàll wa euh, tamit ñii di takk der ñoom tamit ñëw nañ fi taxaw ak seen capion bu mag a mag boobu noonu pour euh, rek xale yi bu ñu génnaatee mu daal di gaz si seen kaw jamono ji nag xamaa amaana du ñàkk sax ñun lay jéem a séntu ak yooyu mi ngi tourné boobu ba léegi di di xool dañuy mun di rek di di làqatu benn yoon pour mën di leen dëkkal image yi ngeen di ko gis actuellement ni rek dañuy xaar boo xawee delto gannaaw tuuti rek ngeen mën koo am ak yooyu ñu ñu war leen ko ñu ngi taxaw boobu ñu taxaw boobu léegi ñoom i tamit di jàmmaarloo ak euh, xale yi comme ni ngeen ko gisee noonu takk der yi ñu ngi noonu gis ngeen ko noonu gendarmerie ñoom ñu ngi ñu ngi di di di jàmmaarloo ak xale yi ay jàmmaarloo yu métti ñu ngi ñu ngi jàmmaar gis nga ambulance ñëwaat na du ñàkk am na kër guy tàkk parce que auto ambulance bii ñëw nii pour fay lakk la du du ñàkk ci biir Ngor mu am kër goo xamee ne dafay takk jamono ji loolu moom moo tax waaye gendarmerie ba ba tey bàyyiwul mi ngi woy di tourner di xool gis nga mi ngi gazé ci biir kër yi euh, di di di xool ndax ñun ñoo ngi fa ak am déet pour mu mun a gazé euh, li nga xamante moo di moo di kër yi mais gis nga tamit oto. sapeur pompier bu mag bi nga xamante ne pour fay lakk la ñëw na parce que ñoom grenade yi nga xam dañu koy dóor ci kaw kër yi ak yooyu moom mun naa ànd ay jéyee yoo xamante ni mara di itaali loolu moo tax du ñàkk ci biir Ngor am na kër goo xam ne mi ngi mi ngi mi ngi tàkk jamono ji loolu moo tax sapeur pompier ñoom tamit daal di ñëw pour mën a fay loolu noonu am. booy xool ci image yi euh, biir Ngor tey ji euh, safara si lu ci mel ak asamaan ci lu mu lëndëmee kurus ndax saxaar pono bi yi xale yi di taal ak mbalit yeeg yooyu ak ñoom i tamit dolli ci seen grenade lacrymogène yi ñuy gazé day tax dootu problème mu gis sax da nga koy am pour gis bu neex loo tax asamaan si dafa lëndëm kurus waa Ngor di wéy di jàppante ak xale yi boobu léegi ay jàppante yu méttee métti métti gis nga am na ñenn ñoo xamante ne ñu ngi leen di signaler ñu nekk ci ci biir kër yi euh, ñoom la ñuy signaler noonu ñun fi ñu nekkee ni dañu dem nañu sax ba làkkatu pour rek ñoom ñu bañ ñu mën a teg seen i ay gët ndax bu ñu loo gisee comme sànq nit ñu ko defee rek dañu lay gazé euh, euh, mu nekk loo xamante ne nag doy na war torop torop ci biir. nga jamono ji jàppante yi métti na fi. Ali Ali Ali ñi ci war a wax nañu wax Ali. Ali lii di xew ngor lii di yoon Ali Ali lii lan la lii di xew ngor ñu ci war a wax nañ ciy wax gis ngeen pëna boobu noonu li tàq di gën a dem te gendarme yi euh, ñu ngi ci côté juste moo tax mënu ma leen wan ñi nga xam ne daanaka ñoo di gendarme yi te waa ji sooy xool euh, ñun la ko ñun la jàkkaar lool euh, pour mën ñu viser bu baax a baax a baax moo tax ñu tegal leen foofu noonu image bi pour mën a làkkatu bu baax a baax a baax donc ñu ci war a artu nañ ci artu neen àla xeex bi fan yee ñu génnoon gis ngeen xeex bi xawoon naa lool lool lool lool lool lool mais tay jii nii daf ci gën a àlla daw me arme bu blessé bañ dugal ko ci oto fi nga xam ne daanaka moo di souvent mu dem te boo jàppee ne am na ay ndaw yoo xam ne daanaka blessé na nañ noonu parce que xool gis naa ci ay lacrymogènes yoo xam ne ci ay kër lañ ko dóor te ñoo xam ne mën naa ne seen yoon nekku ci ñu dóor lacrymogène yi seen ay kër xamoon nax kër googu noonu nga dóor lacrymogène bi dafa am ay asthme wala ñenn ci nga xam ne daanaka dañoo feebar donc àll ah lii ñi ci war a wax nañ ci sama xol neexatul de aale ah, lii xew ngor nañ ci wax. voilà mbokki internet yi comme situation bi nga xam ni jamono ji nag am na fi dekk na loo xam ni lu doy waar la ndax ay jàmmaarloo yoo xam ni euh, ñu ngi koy nemmeeku euh, du du du nekk c'est pas la première fois waaye bu tey jii da cee gën a fës da cee gën a raw ndax jàmmaarloo yi méttiwaay gi rek foo ko natt rek weesu na ko mu ngi wéy di metti ngor mun nañ ni ngor en feu ngor mi ngi mi ngi tàkk jamono ji ndax li waral loolu mooy xale yi euh, xoolal pono yi nga xamante ni taal nañ ko pono yaa ngi tàkk te amaana pono bi fee muy tàkkee du ñàkk poto courant bu ko jege wala dara te loolu maara day taale ndax gis nañu fi léegi oto sapeur bu mag bi ñëw na fi euh, bi nga xam moom mooy fay lakk du ñàkk comme ni ñuy dóoree grenade ci kaw kër yi ak yooyu du du du ñàkk tamit day am kër goo xamante ne dafay euh, xaw a jàpp safara loolu moom moo tax ñoom ñooy ñëw euh, ngir mën di di di di sauver euh, li nga xamante ne moom mooy am foofu actuellement waaye ci beneen rek gis ngeen léegi oto suma assistance am na fi benn gendarme boo xamee ne jëlee na ci gaañu gaañu bu bu metti ñëw na ko jëlee ko fi évacuer ko pour yóbbu ko defal ko ay premiers soins mu nekk loo xamante ne nag fii ci biir Ngor jàmmaarloo yi nga xamante ne daan nañu ko gis ci wurum Ndakaaru ak bu tay bi dafa jéggi dayo bu tey bi dafa ala mais dafa gën a yokku euh, li tax ma ne dafa gën a yokku mooy que tey ji euh, nit ñi daan euh, gisee manifestation yi di am ak bu ngor ni ñu koy defee bokkul parce que ngor bàyyiwuñu xale yi góor ñi kese ñu génn déedéet dañu ànd mag ndaw góor ak jigéen ñoom ñëpp ñoom ñoo génn di fësal seen ak mer ndax li ñuy laajte wala li ñuy bañ gendarmerie teg ci loxo moo di seen suuf la euh, boo xamee ne tey euh, fii nga xamante moom la ñu dëkkee tey di biir Ngor euh, dafa am ci entrée ba rek ab parking bu mag a mag a mag boo xam fa la ne waa gendarmerie nag ñoom parking ba la ñu bëgg jël tabax ci seen brigade ndax nee nañu brigade bi nekkee fii ci biir Ngor bu tawee rek dañuy am ay jafe-jafe dafay inondé moo tax ñoom ñu ñu ñu ñu ñu taxaw ne. Euh, tey ji tey ji euh, li nga xamante ni rek ñoom dañu koy bañ jamono ji moo di euh, ñu ñu ñoom ñu ñu ñu tabax foofu noonu lañu fa bëgg a tabax loolu moom moo tax ñuy jàmmaarloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di way takk der yi ay jàmmaarloo yu métti yoo xamante ne nag wax dëgg ne fa yàlla foo ko natte rek weesu ko gis ngeen ko noonu oto gendarmerie ñi ngi noonu gis ngeen bi euh, mi ngi ronduwaat di demaat ci yeneen côté ya euh, pour rek di mën di di di di di jàmmaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw yi nekkee ci ci côté bi jamono ji nag ngor mi ngi tàkk jëppet ay tàkk-tàkk yu métti métti ñu ngi koy nemmeeku ci biir barab bi jamono ji gis ngeen gendarmerie gis ngeen mu ngi noonu di tourné waat du di tourné mais boobu ba léegi rek dafay jéem a bàyyi xel fii ñu taxawe gis ngeen ngi mu ngi tourné waat moom moytul nag beneen oto ba ñëwaat na beneen ba ñëwaat na ali auto auto auto euh, euh, moom tamit euh, daanaka mi ngi a baax auto gendarme bi tourné maa ngi gis dafa ni booy dañuy génnaat sur le tour côté donc yéen ñi xam ne yéen fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV xam ne moo di live bi partagé xam yemee tuuti rek parce que situation bi nga xam ne daanaka ñu ngi koy dund fi nga xam ne moo di ci diwaanu Cambérène dafa xaw a compliqué trop moo tax image yi ngeen koy gisee noonu ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax bu xawee yem tuuti ñu wàcc pour gën a mën a avancer pour mën leen dégtal daanaka li nga xam ne mu ngi xew Ngor fan yi ñu génne xewoon fa li nga xam ne daanaka moo di ci diwaanu Cambérène depuis boobaak léegi situation bi nga xam ne waa Cambérène ñu ngi koy dund réglé bu baax baax baax nit ñi mënuñu woor wala ñenn ñi du feete li nga xam ne daanaka moo di seen ay feetu korité tey jii nekk li nga xam ne daanaka moo di aljuma suba nekk li nga xam ne daanaka moo di as euh, korité xale yi continuer ñu demaat ci kaw Ali euh, donc Ali nee na ma ñu demaat ci kaw donc bu ñu mënee avancer bu baax a baax a baax baax dem xoolal leen euh, daanaka yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy suivre au fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV yow mi may saaga baal naa la aax bu baax a baax a baax a baax a baax donc boo xamal li ñuy dund vraiment ay waay <laughs> Euh, ñu avancé demaat ci kaw a kaw euh, pour mën leen euh, dégtal li nga xam ne daanaka mii ngi xew fii nii nga xam ne daanaka mooy niveau fi nga xam ne daanaka ci diwaanu Ngor bu baax a baax a baax donc ñu avancé waat pour xoolaat ñi nga xam ne daanaka moo di takk der yi booy xool yenn ci oto yi nga xam ne daanaka jotoon nañ taxaw fii nii dafa mel. ñenn si ñi nga xam ne daanaka ñoo nekk euh, ñi nga xam ne daanaka moo di na lakka-lakka yu am fële euh, ci kaw a kaw wala ñenn si ñi nga xam ne ñoo di sapeur euh, lakk yi donc lii nga xam ne daanaka mi ngi xew en fi nga xam ne daanaka moo di ci diwaanu Ngor métti na bu baax gis ngeen takk der yi seen taxawaay bi nga xam ne daanaka def nañ ko yenn ci oto yi naa la oto nii gis gisuma ko woon ci manifestation Sonko wala tey ji Sonko boo waree génn wala tey ji leneen leneen la xew ci réew mi euh, yenn oto yi nii ma gis nii euh, tey ji laa ko gis fi nga xam ne daanaka moo di ci diwaanu Ngor donc affaire bi nga xam ne euh, mi ngi xew ci diwaanu Ngor Ali compliqué na loolu Ali mënuma koo bàyyi sama doom bàyyi la moo tax daanaka mënu mënu ma koo bàyyi donc xaar ñu jëm a xool bu bu baax baax a baax nu ñu nu ñu nu ñu mën a gën a mën a régler li pour mën leen a Ali yow Ali am nga fit yow ngay bees téléphone de Ali kaay sama xel dalul kaay. Ali ak lu mën a xew euh, nañ nañ nañuy jox internet yi euh, li nga xam ne daanaka euh, ñu ngi koy bëgg bu baax a baax te gaa yi ñu ngi continuer di di di dóor ah, al almool al almool donc gis ngeen gars yi noonu ñu ngi continuer di dóor ci ci yeneen femme mi wala ñu ngi continuer di dóor li nga xam ne daanaka moo di seen i ay lacrymogène bu baax a baax a baax a baax li nga xam ne daanaka waa kon toogal donc euh, li nga xam ne daanaka euh, mi ngi xew euh, ci niveau bu diwaanu Ngor metti na lool lool lool lool lool. donc lii lii lii vraiment kenn kenn kenn kenn kenn kenn xamul lu mu doon donc Ali da nga may teel micro bi tuuti ma jëm xool li ma mën a amaat fii ni bu baax a baax a baax. voilà actuellement gis ngeen ko xale yi ñu ngi doonu ñoom ñu ngi wéy di jàmmaarloo ak takk der yi ay jàmmaarloo yu métti nag yoo xamante ne foo ko natte rek weesu na ko ndax li ñuy xëy. bi di di di ko di ko xeexa boobu ak léegi doy na waar gis ngeen ñi nga xamante ne ñoom ñoo di gendarmerie eh, ñoom eh, ñun sax ni ñuy amale eh, liggéey bi parce que ñu ngi jéem a lijjanti pour ngeen am image boo xamante ni dina di ngeen mën a gis carrément mais ñoom fii ñu nekkee rek ñoom bu ñu la séenee dañu lay gazé ay ay ay grenade lacrymogène moom moom moo tax ñu ñu ñu xaw a sëgg tuuti pour mun rek ngeen di mën di gis waaye jàmmaarloo yi nag mi ngi woy di am. ba ba léegi fii ci diwaanu Ngor ay jàppante yu métti am na diggante takk der gis nga xale yi boo ñi demee ci côté ba yaakaar ni foofu la ñoom ñu génnaat ca beneen wàll ba gis nga mel na ni ñëwaat ñu feenee takk-takk bi mi ngi gën di di yokku mi ngi gën di yokku su ma nee mi ngi gën di yokku nag di ngeen ko gisa pono yi ak yooyu xale yi ni ñu taalee beneen côté ba doy na waar jéggi na jéggi na dayo torop gis nga xale yi gënaat nañ ci koñ bi ñuy jàkkaarloo ba tey di di wéyal di amal seen seen jàkkaarloo yi nga xamante ñu ngi koy def gis nga am na kenn ku ñu ku ñu teg loxo moom du ñàkk ni yoonam du ci nekk dafay dox doxam di dem yoonam waaye te lay jàpp di yaakaar ne si manifesta manifestant yi nga bokk ak yooyu loolu moom moo waral gis nga am na ci kenn koo xamee ni am da lay leer ni yoonam nekku ci parce que ku ci sa yoon nekk doo ñëw di saraxe sa bopp nii ku génn di dox doxam di dem yoonam ñu ñu ñu jàpp ko moom itamit bugg ko boole ci ci yëf yi da kii da lay leer ni yoonam nekku ci ma nga gàddu saagam di dox doxam mais foofu ñu ñëw jëli ko ne dañu ko teg loxo ak yooyu gis ngeen ko du du ñàkk gis nga waa xale yi ñu ngay ñi ngay xeex boole kook ay yuuxu yu metti man jàpp naa ne ñoom tey jii wooruñu xanaa gis nga euh, sox nañ leen bali yokk nañu ko ci seen ci seen kaw gis nga fële fële ni mu ni mu mel ni ñu jékki rek yokk leen sox yi doy na waar trop. doy na waar trop ci ci diwaanu Ngor actuellement ne situation bi ñuy dund fii metti na saxaar si ñëwati na day kii ba mu yàgg rek mu daal di ñuy gane si moom tamit ñëw doy na waar doy na waar metti na ah, parce que voilà ni ñu koy dundee nii metti na mhm. saxaar si day jékki rek gane si la ñëw saf sàpp si sa ay gët ak si sa bakkan bi nga xam ne moom ngay nooyee actuellement ni Euh, ñi ngi jigéey ci liggéey ci ci anam bu bu bu difficile trop anam bu bu doy waar ñu ngi ñu moom la ñuy liggéeyee nii parce que saxaar si ci kaw terrasse bi plein air la euh, dafay saf si ñun sàpp dañu làqatu di amal liggéey bi mais ba tey duñu bëgg sax noppi pour rek ngeen di wéetu wala ngeen di bañ a xam li nga xamante ne moom mooy xew fii actuellement moo tax dañuy jéem sax di làqatu pour di mën di wax mais wax dëgg euh, xet gi mu ngi ñuy yóbbu laami Chine doy na waar ni ñu koy noyee nii metti na métti na lool eh, ngor yëguñu sax ni tey eh, tafas eh, korité la am suba yëguñu li xew cottotot voilà comme ni ngeen ko gisee nii mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi gën di doy waar di jéggi daya waa ngor tey jii mooy li may wax am na ñenn ñoo xamante ni ci euh, biir réew mi tey la ñu julli am ñenn ñoo xamante ni suba lañu lañu lañu lañu lañu lañu la ñu bëgg a julli waaye ngor yëgu ñuy sax ni tey wala suba ñoom aska tey sax dokk na ci bis yu war ndax ñii ñuy ñii ñuy jihaatee ni ñu ñuy jàmmaarloo ak euh, xale yi nekk na loo xamante ni lu doy waar la trop trop trop trop ngor ñoom seen xeex mun nañ ni dañu naan sax ci olof xeexu njaago du jeex ak yooyu waaye boole ci bu lebu surtout bu waa Ngor ndax góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñooy jog di jàmmaarloo ak euh, euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo di takk takk der yi ñoom naka la ñuy xeex maa ngi koy bamtu boobu ba léegi seen benn euh, terrain boo xam ci parking bi la nekk ñoom ñoom la ñu moom xeex jamono ji di ko waxee waaye xale yi ngor yi rek keroog maa ngi koy wax gis naa sax ñenn ñi dagg ko di ko dugal ci tiktok bi mooy xeetu saaga yi nga xamante ni da nga koo fiy dégg wax dëgg ci anam boo xam ni ñoom li ñuy saagawee doy na doy na waar quoi doy na waar ci wax dëgg ne fa yàlla ni nga koy gisee nii metti na lool ci ci biir ngor bu xale yi ay ay xeet yu mag lañuy sàndi sànni gis nga leen ñoom la ñuy ñoom ñooy yuuxu noonu ñu ngi xeex di di di di yuuxu e li ma ciy gën a jaaxal sooy xool xale yi ci yenn pàcc yi nga xam ne daanaka xale yi nekkee nañu fa donc xale dañoo mel ni Ali lu xaw a maîtriser daanaka ñi nga xam ne ñoo di euh, takk euh, der yéen ngi gis euh, téeli téeli gi commencé na te policiers yi ñu ngi continuer di dóor ni ni mel continuer di door li nga xam ne yéen a ngi déggaat loolu man loolu as bomb sax laa koy yaakaar parce que téeli gi mu def dafa rëy loolu ñu ngi gis sapeur pompier am na fenn fu mu dugg donc fa mel ni am nañ lu mu war a mën a fay foofu noonu te xool ci sama ginnaaw tamit lacrymogène yi ñu ngi gën a jeex-jeexi foofu noonu te gis ngeen image comme ni ngeen koy gisee noonu ci image yi pàcc premier angle deuxième angle troisième ay takk der yi taxaw booy ñu ngi ci euh, koñ yi booy jéemu ñoo nekk sax si fi nga xam ne daanaka moo di ci euh, digg euh, tali bi booy yi dañoo nekke ci koñ yi di jàmmaarloo ñi nga xam ne daanaka Euh, moo di euh, takk euh, der yi donc nekk na loo xam ne compliqué na bu baax a baax a baax a baax ndeysaan yi ñu suivre nga xam ne daanaka moo di ci Feeling Dakar TV 2300 donc continuer leen di like ne moo di live bi parce que Feeling Dakar daanaka mën naa ne yéen la fi nekkal a ñuy bàyyi xel au niveau fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV mbégte la lool ah li ma jox la nga a mën a avancer bu baax a baax a baax pour mën a joxaat les internautes en temps réel fi nga xam ne ñu ngi koy dund au niveau fi nga xam ne moo di ci diwaanu Ngor Ali diwaan bu Ngor jamono ji euh, métti na saxaar si mi ngi tàkk ci côté boo xalaat rek saxaar saa ngi ciy génn euh, waaye teewul xale yi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk fii ñu ngi wëy di di di di di di amal euh, seen ak jàmmarloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di takk deri xale yi ba tey ñu ngi ñu ngi wëy deltu woon gannaaw benn yoon wala sax ñu dugg seen i kër di jéem di noppalu ak yooyu mais ñu ngay continuer bu bu bu baax a baax di def li nga xamante ni moom moo di euh, rek combat bi nga xam moom la ñuy amal di di di di jàmmaarloo ak ñi nga xam ñoom ñoo di takk dere asamaan si tey jii lëndëm na xeetu lëndëm boo xamee ni sax pour nga gis sa moroom xàmmee ko dafay daal di jafe ndax xeet pono yi nga xamante ne ñu ngi koy ñu ngi koy taal fii ñu ngi koy taal fii ak yooyu Ablaye gis nga euh, na ni ñu lay joxoñ pour pour pour pour wax ak ñun waaye gis nga gis nga noonu dañuy jéem di làqatu rek pour mun di amal suñu suñu liggéey euh, taxideer yi ñoom du ñu bëgg nga amal sa sa liggéey wala nga jël image wala dara moo tax bu ñu la séenee rek dañu lay euh, gazer pour nga juge ci kaw ba barab bi nga xamante ni foofu nga taxaw te parce que tey ji euh, presse bi ci ci ci ginnaaw ñi nga xamante ñoo di takk der yi foofu la ñu war a taxaw loolu moom mooy yoon parce que ñoom ñoo yor suñu kaaraangeen ñoom dañu ñëw def seen liggéey ñun itamit dañu ñëw def suñu liggéey waaye dem nañu ba dootuñu nangu sax presse bi jege leen ak yooyu ba suñ la séenee dañ lay gazé yow ci sa bopp moo tax ñu ñu yéeg ci kaw terrasse di làqatu ni pour mun di leen dégtal image yi ci anam boo xamante ni euh, dañu koy jëngu mais euh, anam bu méttee métti métti lay doon kon xam ne ku ne xam na terrasse yi plein air la fay lay doon te bu ñoom dañuy gazé ci ci kaw kër yi ak yooyu saxaar si dafay wëlbatiku di di di ñëwaat ci ci ñun ci wàllu gis-gis ak nooyi dañuy am problème bi jafe-jafe lay doon bu bu baax a baax a baax gis ngeen ko noonu gendarmerie tey eh, ni ñu ni ñu ni ñu ni ñu takkoo ci ci barab bi jóge na dayo parce que keroog li fi amoon euh, xaw nañ ci tirer leçon bu baax a parce que ñoom euh, keroog xale yi wax dëgg neex fa yàlla bu ñu waxee dëgg rek ni fi xale yi meloon ak ñoom dafa doyar waar trop parce que xale yi keroog Eh, ragaluñ woon ba tey ni sax ragaluñ waaye ni ñu ni ñu jegee woon ñi nga xamante ne ñoo di la gendarmerie dafa ëppoon doole moo tax gis nga mais ci suba ak léegi amul benn yoon rek booy toog wala ay seconde yooyu toog te déggoo euh, euh, lu ñu lu ñu lu ñu dóor ci ci ci kaw booy loolu moom mooy firndeel ni que xale yi bàyyiwuñ benn yoon te ñoom dañuy bu leen gendarmerie euh, gazé dañuy foraat grenade bi daal di daal di leen koy daal di leen koy delloo Euh, xoolal xoolool am na takk deer boo xam ne mi ngi daw di ñëw ci côté boobu Ablaye soo ko mën a yëndu xool foofu lan moo fa am rek wala ñan lay jéem a topp noonu dina ci baax pour ñu ko di ko dund ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di sunu ay internet gis nga takk der am na keneen koo xamante ni tamit rocceeku waat na jóge ci oto ba daw toppat ko du ñakk dañ leen di woo rek euh, ci yeneen axe yi parce que booy yëf yi mi ngi mi ngi mi ngi yokk wàññeekuwul benn yoon parce que booy xalaatuñu bàyyi euh, xeetu jàmmaarloo yu mel ni euh, man wax dëgg neex bi ma ko bi may ñëw si manifestation ak loolu mais bi may gis ci biir Ngor dafa jéggi dayo parce que keroog bi ma fi ñëwee wax naa ni ay ay jigéen sax gis naa leen ñoom ñu ñu ñu ñu génn am na ci ci ñoom euh, benn gendarme boo xam ne am na blessure bu metti ba Euh, oto suma assistance moom moo ko mujj jël si fii yóbbu ko fi euh, mooy li may wax rek euh, ngor du du xale yu góor yi kese ñoo gën di xeex déedéet jigéen mag ak ndaw ñoom ñoo génn di di di jàmmaarloo ak takk der ay jàmmaarloo yu métti parce que bokkul euh, ak manifestation yi ñu daan dem ak yooyu boobu dangay ngay gis xale góor yi kese mais fii ci biir Ngor euh, lébu yi dañu boole góor ak jigéen mag ak ndaw di ngir xeexa seen seen seen ak ak seen ay yelef mooy suuf si nga xamante ne bëgg nañ leen ko mu ñoom ci li ñu wax ni dañ leen day jaay doole pour mën ko euh, jël ci seen loxo ñoom ñu bañ ba tëdd ci ci naaj wi loolu moom moo waral ñoom nag nee nañu duñu nango loolu lànk ndaare tëdd ci suuf ni loolu du fi amee loolu moom moo tax rek jamono yi ñuy ñuy amal ay jàmmaarloo yu métti yéen a ngi dégg coup de noonu boobu ak ak ak léegi Ali li xew fii lan la Ali moom mooy yem Ali li xew fii lan la Ali euh, mënoo yow mu sa yow sa bopp mënoo xam sax daanaka euh, li nga xam ne da mi ngi xew fii ci diwaanu Ngor te xool euh, li bi di gën a dem instant yi 14h51 ah. jot na li bi di gën a dem xale yaa ngi continuer di gën a génn ci li nga xam ne daanaka moo di ci koñ ñi nga xam ne daanaka ñoo di takk der yi te Ali koñ bëri na la ñu taxawee ne mooy booy jéggi dem fa nga xam ne daanaka moo di ci deuxième plage Ngor bi booy ci koñ boobu noonu la ñu nekkee te soo xool foofu noonu dafa xaw am li nga xam ne daanaka moo di as rond-point te booy ba léegi nii Euh, taxul ñu bàyyi booyaa euh, euh, ngi continuer di génnee ci yeneen femme boo booyaa ngi continuer di génnee ci yeneen boor yi pour mën a jàkkaarloo ñi nga xam ne daanaka ñoo di takk der yi te soo xool takk der yi am na ñu leen fàttali ne am na benn takk der boo xam ne daanaka jot na am li nga xam ne daanaka moo di as blessé ba mënutoon a taxaw jël ko dugal ko ci suma assistance bi ba yóbbu ko fa li nga xam ne daanaka moo di ci diwaanu hôpital donc li nga xam ne Ali ngi xew fii nii ci diwaanu Ngor métti na lool lool lool lool lool donc ñu ci war a génn rek wax ci artu ci pour lii mën a arrêté nañu génn ñu def ko parce que lii nii di xew ngoon nit ñi dugg nar ko continuer nee naa la tey am na ñenn si ñoo xam ne daanaka ñu ngi euh, def li nga xam ne moo di am na si ñenn ñi nga xam ne daanaka mën naa ne euh, suba la ñu korité wala tey jii nekkoon li nga xam ne moo di h vendredi gars yi continuer euh, di def euh, ni ni mel kon lii nii di xew ci diwaanu Ngor situation bi compliqué na lool lool lool donc yéen ñi nga xam ne yéen vous êtes nombreux ñu suivre moo di Feeling Dakar maa ngi ci 3000 donc laaj ka leen affaire bi a mën a yéeg yéen ñi nga xam ne yéen ñuy suivre fi nga xam ne au niveau moo di ci Feeling Dakar TV mbégte la lool vraiment ñuy partager ak li nga xam ne daanaka moo di live bi ku ci mën a ñaan rek nga ñaan ci artu bu baax a baax Ali lii lu mu doon voilà comme ni ngeen ko gisee noonu ci ci ci ci biir Ngor euh, doy na na waar jamono ji euh, mooy li ma wax rek boobu ak léegi ima ci ci ci biir Ngor euh, image yi nii pour nga gis ko sax dafay nekk loo xamante ne dafay doy waar ndax lëndëm bi nga xamante ne yëf lëndëm na ko jamono ji ci kaw asamaan si ñu ngi wéy nag gis nga oto sapeur pompier bu mag bi yàgg na ci foofu mu taxawee loolu ndax du ñàkk mooy li ñuy wax rek grenade yi nga xamante ne dañ koy gaz ci kaw terrasse yi ak biir kër yi du ñàkk mu am ay jëye yoo xam dafay fay am loolu moom moo tax nag xale yi génn di di di di di di di di di jàmmaarloo te du ñàkk tamit am na kër goo xamante ne rek day am ah, tout tàkk-tàkk loolu moo waral eh, tey jii ñi nga xamante ne ñoo di waa sapeur pompier ak seen oto bu mag bi bi nga xam mooy fooy fay lakk yi daal di ñëw fii ci ci ci biir barab bi gis nga ko noonu eh, eh, ngor tey jii wax dëgg mooy li du ma tàyyi di ko wax yàgg nañu dem ci ay manifestation mais manifestation bi ñi nga xamante ne moom la ñu nekkee nii tey ji wax dëgg ne fa yàlla jéggi na dayo torop torop torop ci ci ci ci gis-gis ndax waa ngoro pare wuñu sax pour bàyyi li nga xamante ne moom moo moo am am fii jamono ji nekk na loo xamante ne nag doy na waar torop ci ci ci. Ali. Euh, li nga xam ne mi ngi xew ci diwaanu Ngor euh, nañu nañu gën a insister pour ñu nga xam ne daanaka dégg nañu euh, pour mën a jàllale li ni mel pour ñu mën a artu wax ci li ni soo xool am na benn gendarme mi ngi continuer di avancer ñenn si nga xam ne daanaka mën naa ne dañoo defoon secours pour seeti yeneen si nga xam ne daanaka moo di ci yéen yeneen gendarme ñoom kenn ki mi ngi dellu si waat mais yeneen yi ngeen ngeen ngi gis lacrymogène yi ci kaw noonu ci xool yenn pàcc yenn ci yi nga xam ne baaxoon na ko woo waaw ñu ànd la li newel parce que lii nii moom vraiment kenn xamul lu mu doon Abdou bu nekk yaa ngi may dégg rek renforcer ñu connexion yi c'est important parce que situation bi nga xam ne gaa ngi koy dund fi nii xam naa ne xaaj gu la bay mën a jeex donc ñu gën a patienter bu baax a baax a baax a baax a baax ci xool ndaw ñi ñu ngi continuer di wéyale linimel ni mel pour continuer Euh, pour ñu mën a euh, continuer euh, li ni mel donc lii nga xam ne mën naa ne mi ngi xew ci diwaanu Ngor si en direct incha allah ñu ngi am 14 cinquante cinq te xam naa ne ndaw ñi may gis nii xaajaguñu la bay waaja a pare te ndaw ñi dañuy fas yéene jàmmarloog te ndaw ñi see xool li ci gën a garaaw am na si ñenn si ñoo xam ne daanaka dañoo jëm julli joon li nga xam ne moo di juma ñëw pour mën a continuer xeexaat ji nga xam ne daanaka ñoo di gars yi donc lii nii vraiment di xew fii nii yéeme na lool lool continuer rek a avancer euh, fi nga xam ne daanaka moo di ci diwaanu rond point bi euh, takk der yi tamit ñu ngi def seen placement taxawee angle ak angle taxaw koñ ak koñ ak koñ pour mën a jàkkaarloog ak euh, ñoo di ndaw ñi bu baax a baax a baax a baax a baax donc lii moom vraiment kenn ken ken kenn kenn kenn kenn kenn xamul lu mu doon lii lii lii lii dafa kéemaan na ko lii moom euh, vraiment euh, kenn kenn xamul doon donc ñun nañu continuer euh, di di di patienter rek continuer di patienter rek pour mu leen a jox li nga xam ne daanaka mi ngi xew fii nii. waaw mën a xam li xew fii Ali jëlal ma gën a mën a zoomé ci gars yi gën a wan ñi nga xam ne daanaka ñu ngi ñuy suivre au niveau fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar pour ñu gën a mën am image bu baax a baax a baax a baax a baax a baax dina nekk vraiment lu lu lu am solo bu baax a baax a baax a baax a baax vraiment ndeysaan déggal gars yi ne seen leen ma numéro bi ma may leen connexion jaajëf gars yi kontaan ci yéen bu baax a baax jaajëf euh, dund bu weer yéen képp koo xam ne daanaka yaa ñuy suivre kuy saaga kuy saagawul vraiment yéen ñëpp euh, vraiment mbégte la lool ñuy partager yéen li nga xam ne moo di live bi donc continuer leen euh, di liker continuer leen di ñu suivre fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV yen a ngi seetaan yéen a ngi en direct fi nga xam ne daanaka Euh, moo di euh, ci diwaanu euh, Ngor ngeen gis bataille bi nga xam ne ndaw ñaa ngi koy def ak ñi nga xam ne daanaka moo di ndaw ji gis ngeen tamit angle bi ma wax fi ma teg image bi noonu oto takk ngi taxaw ja ñenn ci ñi ngi jàkkaarloog seen gauche ñeneen ñi jàkkaarloog ñi nga xam ne daanaka moo di seen droite pour gën a mën a jàkkaarloog ak nga xam ne daanaka moo di ndaw ñi bu baax a baax a baax a baax donc nekk na loo xam ne compliqué na lool gars yi di ko dund fi nga xam ne au niveau fi nga xam ne moo di ci diwaanu Ngor nee naa la ñenn si ñi nga xam ne daanaka seen yoon nekk ci wala ñenn si ñi nga xam ne gëm naa ne ñu ngi waajal euh, dem euh, Korité yi xam naa ne tey jii moom xam naa ne da ngeen di mujjee gëm yàlla rek ba heure bu baax bi ndax ndaw ñi may gis nii Ali gëm naa ne xaajaguñu euh, bay euh, pare wala xaajaguñu euh, bay wala dañuy doog tàmbali pour mën a gën a jàkkaarloog ñi nga xam ne daanaka ñoo di takk der yi te soo xool takk der yi ñu ngi continuer di dóor li nga xam ne moo di lacrymogène yi muy takk der di xam ne daanaka moo di lacrymogène yi pour affaire yi di gën a mën a jax di a dugg ci kër gaa yi oto suma bi xam ne daanaka moo évacué woon ki nga xam ne moo di gendarme bi gis tamit beneen oto sapeur pompier boo xam ne moom ngeen di seen noonu dans les images oto sapeur bi tamit mi ngi taxaw vraiment di jàkkaarloog euh, ñi nga xam ne daanaka moo di takk déer yi xam naa ne euh, lu tàkk mu fay ko Euh, lu tàkk mu fay ko donc mën naa ne ñii di nga xam ne ñoo nekkee ci diwaanu Ngor euh, dañoo préparé li ni mel euh, pour mu gën a mën a jàkkaarloog ñi nga xam ne mën naa ne ñoo di ndaw ñi te xool oto sapeur a taxawee te oto boobu ma gis oto ndox mu tànk la donc kon mën oto boo xam ne daanaka day fay li nga xam ne daanaka moo di ay lakk-lakk lakk-lakk gisuma ci oto boo xam ne mën naa ne day yóbbu ñi nga xam ne daanaka ñoo di blessé oto suma laa fa gisee donc Ali xam naa ne internet yi namm nañ la ñu nga jël wéyale xool jàngatal leen li nga xam ne daanaka mën naa ne mi ngi xew fi nga xam ne daanaka moo di ci diwaanu Ngor Euh, nekk na loo xam ne mën naa ne euh, compliqué na lool. voilà doy na waar jamono ji parce que euh, Ngor instant bi fii ñuy wax ak yéen li fi xew nii wax dëgg neef fa yàlla jéggi na dayoo néew na naka lu ñu ko daan nemmeeku ci biir barab bi sax duñ ne guléet moo di fi am waaye bu tey bi da cee raw ndax boobu ak léegi Ngor ni mu mel nii wax dëgg neex fa yàlla. Euh, jéggi na dayo daal ci ci ki nga gis-gis wala ci dégg-dégg euh, booy xool ci image yi fii li nga xamante ne moom mooy euh, asamaan si wala ci biir koñ yi pour nga gis sax nit ña fay dëkk ak yooyu di fa yeewoo wala nit kuy dox dafay dafay nekk loo xamante ne day day jéggi dayo lool ci sax ay gëtt day nekk loo xamante ne day day méttee gis ndax saxaar si nu nga xamante ne mel na ko ci ci biir barab bi jéggi na dayo trop gis ngeen ñii di waa gendarmerie ñoom ñoo taxawee ca ca benn wall wa noonu di di jàmmaarloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di di di di di xale yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci biir. comme comme information rek li nga xam euh, moo di Farba Ngom xale yi dañ ko am euh, matin xam naa ne yéen ñu ñuy suivre rek euh, kii di Farba Ngom bokkee ca parti boobu noonu ci parti Benno Bokk Yaakaar këram dañ ko jot a saccagé fi nga xam ne daanaka moo di ci diwaanu Ngor donc lii aali ay du yam ci bopp bi gis ngeen gendarme bu ci blessé lii aali fa la jëm Euh, doy doy doy na doy na war parce que ay du yem ci bopp borom euh, jàmmaarloo yi ci ci ci yokk rek mm, saa su ne du ñàkk ngay gis ñenn ñoo xam ne dañ ci am ay gaañu gaañu wala ñenn ñoo xam ne dañ leen ciy teg loxo te seen yoon di ci nekk gis nañu kenn koo xamee ni rek da doon dox ab doxam gàddu saagam du dem ñu interpellé ko woo ko daal di koy jàpp patam patam dugal seen oto te kooku dalay leer ne yoonam nekkul ci yëf ndax euh, bu ci yoonam nekkoon. amaana du ñëw di jege ci gendarmerie bi ba leen di romb di dem mais ñoom dañ eh, romb rek ñu woola gis nga ñun presse bi ci ja eh, xat-xat yi nga xamante ni nekk nañ ci di ci di ci di ci liggéey jamono ji ci benn terrasse la ñu yéeg te dañu sax xaw a fule eh, li nga xamante ne moom la ñuy filmer pour ngeen di gis image ak yooyu boole kook ñun naka ñu bébaru ba kenn ñu gis am na ci gis ngeen kenn koo xamante ni jàpp nañ ko moom lañu ñuy andi noonu gis nga am na ko te kii kii mag la kii mën nañu sax mag la moom la ñu jàpp di ko di ko di ko andi noonu gis ngeen ko moom ñi nga xamante ni ñun nañ ni sa mag la mais dañu ko jàpp di ko diko ko di ko andi tey ji fii ci biir diwaan bu Ngor gis nga jàpp nañ ko dugal ko ci biir oto bi dugal ko ci biir oto bi nii ci euh, ci anam boo xamante ni doo doo sax comprendre ngay ndeysaan maa maa ngi leen di bëggee yéen tamit mbokki internet yi bu baax a baax a baax ñu ngi gis boobu ba léegi ñu ngi ñuy laajte ak yooyu mais euh, euh, jamono ji liggéey bi moom mooy xaw a doy waar te ci anam bi nga xamante ni dañ koy defee liggéey bi dafay dafay xaw a doy waar. dafay dafay xaw a doy waar tuuti moom moo tax gis nga arrestation boobu ñu ngeen di am noonu waa ji jàpp nañu ko ba di ko dugal ci auto gendarmerie bi mooy li may wax léegi rek daane la guma sax ngeen gisal ko seen bopp noonu ñoom rombal di dem rek dañu daal di lay patam patami dugal ci seen oto Euh, yóbbu la bu ko defee nëbbu la jant bi ñuy ñu lim lim arrestation yi muy gën di yokku te ci ñoo xamee ni kii tey jii euh, amul sax kattan boo xamante ni war na ko mën a am pour yëkkati xeer sànni ko wala dara fa génn di dox doxam rek dañ lay interpeller woo la daal lay teg loxo yóbbu la ci anam boo xamante ni dëppoowul yoon benn yoon moom ngeen di gis noonu dugal nañu ko ci seen oto bi nga xamante ni minibus yooyu euh, après fu ñu xam nag jëma ko ñoom waaye ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax rek comme ni ma koy waxee topp gi nga xam ne yéen a ñu koy topp boobu ak euh, léegi euh, ci ci moom mi ngi wax Ali waxal sa mbokk bi mu baal ma man ma réew ma ñàkk a jom xamadin ñàkk a ruus waaye yooyu yëpp amul solo ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñu ngi lay jaajëfal yi tamit bu baax a baax a baax di leen di kontaane euh, gis ngeen ko biir Ngor da ngay sax yëf yi wàññeeku na wala dara musta wàññeeku nañu meloon ci boobu ak léegi. Euh, noonu la yëf yi continuer mel ba léegi ñi ngi ñi ngay wëy di jàmmaarloo ak euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di xale yi ba ba léegi gendarmerie keroog ci jàmmaarloo yi fi amoon euh, wax dëgg neex fa yàlla gis nga xale yi beneen arrestation amaat na gis ngeen kooku di ñu jàppaat di di di andiwaat gis nga keneen keneen ki ñu ki ñu ki jàppaat di ko andiwaat noonu mooy mooy li may wax rek ñoom nañ la gis rek ngay ngay ngay dox wala nga boot sa ñu jàpp la andi dugal si biir oto bi loolu mooy ndeyi lan loolu pour lan la nañu bàyyi nit ñi nit ñi dañu am ay soxla war ko doxi euh, dañu nekk ci période événement ak yooyu euh, war a dem lijjanti seen bopp mais ba ngay romb rek ñu jàpp la gis nga kooku jàpp nañ ko ñu ngi koy andi ci ci mi ngi leen di expliquer waaye ñaar ñi ko téye nanguwuñ ko sax déglu gis nga ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi nga ñi ngi diri di diri di andi pour dugal ci seen oto ñi ngi noonu teg nañ ko loxo ñaari gendarme mi ngi ñi ngi mi ngi wax ak ñoom mais mais mais dégluwuñu ko sax mooy li may wax ñi ñi ngi ko ñi ngi jàpp nit ñi rek di di di di andi di dugal seen biir oto te ñii nga gis ne ñi ñu ñu jàpp xoolal xeetu comportement bi nga xam ne am nañu ko dalee leer ne ay ay père de famille yuy dem di lijjanti ji seen bopp ñu ngi noonu di ko dugal ñu ngi noonu di ko dugal gis nga ñu ngi noonu di leen dugal ba pare boole lekk nag bu ñu leen dugalee ne leen nañu toog ci suuf bu ñu toog ci chaise ci ci ci ñoo xamee ni dañuy doon dox di dem di lijjanti si ji seen bopp ku ne xam ci feet la ñu nekk ak yooyu ñu jàppala dugal la ci biir oto boole ko ërtal ak ñàkkal kersa ci ab anam boo xamante ni doo sax ko comprendre ci ban façon la la la la ñu koy defee jéggi na dayo jàpp nañu ñaaragum dugal ci seen oto demaat nañu léegi keneen ku génnaat rek. ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jàppaat la tegaat la loxo mu ne reporter bi li ngay wax seet ci yàlla waaye yooyu tamit li ngay bind seet ci yàlla ndax dëgg gën julli maanu moo gën koor. gis nga gis te te te réalité li ci doy waar xool euh, mi nga xam ne mi ngi xew fii nii euh, te te gis ngeen ne ñi nga xam ne ñoo di takk dee suñu sonnee rek mooy ko ne ku ñu romb rek nga ku gis nga romb vraiment euh, dañ lay jël dugal fi nga xam ne daanaka moo di seen oto bu ñu la dugalee seen oto dafa mel ni xam naa ne dinañ la xaw dinañ la xaw a def li nga xam ne daanaka moo di ay daan yu xaw a mété mété mété mété mété mété mété te ñenn si mën naa ne takk dee yi bu ñu sonnee pour ngeen comprendre ko noonu rek takk der yi bu ñu bu ñu bu ñu sonnee ñoom dañuy xool kenn koo xam ne mën naa ne sa yoon nekku ci boo mooy jàpp nga ne ñàkkum ah, ah, romb la rek nga jël saagam ah, vérifier xool tey yi gis naa ko kenn koo xam ne ko dugal dafa vérifier li nga xam ne daanaka moo di saagam ba gisee saagam bi fekk ci li nga xam ne moo di bineegar ma ne waa yi nii ñu jàpp ne est-ce que yëgul ne fi nga xam ne daanaka moo di cité kër góor gi dafay am li nga xam ne daanaka moo di as manifestation moo mën vinaigre dugal ko ci biir saagam mais kooku noonu lañ ko jàppee tooñ ko ci soo demee manifesté wul xamul lan mooy manifesté soo demee dafa apolitique mais xoolal aali li nga xam ne jàpp nañ ko kenn a mujj est ce que ñi ñu jàpp tey mën fi nga xam ne daanaka moo di euh, ci prison bi aali li lu doon aali di xew ci réew mi aali duñu seetaan nag ñuy jàpp nit ñi di leen yóbbu ñuy te defuñu dara ñuy korité ci biir prison yi ak yooyu ñi ñu jàpp te defuñu dara ngallaawaay nañ leen bàyyi ñu delluwaat ci seen i ay yitte parce que ñii ñu teg loxo euh, gémmiñ su waxul dëgg rek dafay wax ay fen wax dëgg ne fa yàlla lii ñuy gis ci sunu ay ay ay gët di ko gis ci ci ci ci ci xar kanam bi nga xaman ne moom la ngor amee jamono ji mooy ñii ñu tekk ay loxo di leen arrêté bokk na ci ñoo xamee ne seen yoon nekkul ci yëf yi dañuy romb rek di dem seen yoon ñu ñu woolu la jàpp la patam patame daal di lay dugal ci seen oto atel la ñàkkal ak yooyu mu nekk na loo xamante ne rafetul dara rafetul dara dëgg su jotee dañu koy wax donte dañ lay rey sax waxal dëgg li ñu gis moom dañu koy wax wax dëgg fi yàlla lii neexul sax ci ci gis-gis wala ci ci ci dégg-dégg nga nga di ko gis pour barab bu bu ngor jamono ji ni nga xamante ne ñi ngi atte ñàkkal ñi nga xamante seen yoon nekk ci xale yi ñi ngi noonu di di di continuer di xeex boole kook ay yuuxu yu méttee métti euh, lébu yi tey dama mel ni tey fii koor amu fi ñoom dafa mel ni tey mataluñ fanweeri fan yi 29 jours la ñu am parce que lii est-ce que mën na ànd ak woor parce que lébu yi xeex bi nga xamante ne dañ koy xeex jom ji ñu ciy àndal seen i ay mooy li may wax manifestation dana am góor ñi rek nga daan gis waaye fii ci diwaanu Ngor góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ngay gis. ca dañu koy baare dañu mën a xeex ay cocktail molotov fii rek laa ko gis keroog. keroog fii rek laa ko gis ci ci ci diwaan bu Ngor xale yi di ko utiliser gis nga fële nu mu lëndamee crise jàmmaarloo ca côté rond-point ba jàmmaarloo yu méttee métti métti métti yoo xamante ne ñu nga fa am ay bu ma mënoon di saxi laaf ba dem ba wan leen foofa la fa xew euh, ñëwaat toogaat jàpp sama ñàmb di dinaa ko def parce que tey jii fii ci biir Ngor gis ngeen ñaari oto gendarmerie yi taxaw ni ñi jàpp ci lañ leen di dugal mooy li may wax léegi rek day am ñenn ñoo xam ne dañ leen di teg loxo seen yoon du nekk nekk ci li nga xam moom moo am que ku ne xam nga ci ci période événement la ñu nekk nit ñi dañuy doxi seen i soxla di dem di lijjanti ji seen bopp mais da romb sax ñu ñu woola nga ñëw ñu jàpp patam patam dugal ci biir oto nekk na loo xamante ne dëppoowul ak yoon nañu bàyyi nit ñi nag ñu dem xool euh, doxi seen ay soxla bu ñu bëggee ñu jàpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàmmaloo ak ñoom wala ñay xeex ak ñoom xam nañ leen te ña ngi leen di gis xam nañ fa ñu nekk nañu fa dem ñu teg leen loxo mais pas ñi nga xamante ni dañuy circuler ci mbedd mi dem dem lijjanti ji seen bopp ñu woo la teg la loxo dugal la ci oto bi xam nga ci ci anam boo xamante gis nga léegi mag mi nga xamante ni jàpp nañ ko euh, day maaseeg sa baay sax ah, wala mu doon sa moro bi baay xam nga xam nga nga nga nga nga ñëw patam patamee ne ko dugal ci biir mu dugg bëgg toog ci saisi nga ne ko eh, toogal ci suuf ci ci kilifa gu toll noonu dafay nekk loo xamante ne day day jéggi lii li li lii mën na la sax siisuloo barke yonent bi. Ali nañu baal ci image euh, bu baax a baax Ali yow miy laaj ndax lii tay la wala dara ñi ngeen euh, euh, euh, vous êtes en direct fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV ngeen baal ñu ci image saxaar si moo xaw a jóg bu baax a baax lakk-lakk yi nga xam ne daanaka ndaw ñu ko moo tax image yi xaw a mel noonu donc ne yéen a ngi en fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV maa ngi am daanaka li nga xam ne moo di as 15 heures sooy xool te ndaw ñaa ngi continuer di wóyale nee naa la rond point bi nga xam ne daanaka mooy pour ñuy xam booy ñëw ngor bu baax a baax baax pour jéegi dem ci deuxième place ba ñu xaw a maîtriser foofu noonu côté boobu noonu la gars yi nekkee pour mën a euh, baare euh, li ni mel pour a gën a jàkkaarloog ñi nga xam ne daanaka ñoo di euh, takk der yi donc li nga xam ngi xew ci diwaanu Ngor compliqué na li nga xam bu baax a baax a baax yaa ngi gis takk der yi dafa mel ni dañ gars dañ koy may ndox mu naan aali takk der bi naan na ndox ndeysaan nee naa la lii mënta ànd ak koor waa suma assistance yi ñoo ko may ndox mu naan nee la lii moom vraiment aali mënta ànd ak koor ndax woor ba pare di naan ci lekk du mosé ni wala woor ba pare di jàmmaale ñi nga xam ne ñoo di ndaw yi gi ngeen mi ngi jël deuxième case ah lii nee naa dina dina jël lu raw à deuxième case ga sama sama copain ngi naan gendarme bi mi ngi naan lii la la Ali. <laughs> bu naanul xam boo naanul rek a xama sama yaay Fama Ba mi ngi laajte ndax Ali séeréer nga xanaa waaw waaw mun na am de ma nekk séeréer ndax Diouf laa sant. Euh, seen gaal seen sa kaw nee na Ali doo leen wàcc est-ce que doo ñëw ñu wàccee la yow fii bu nu fi wàccee tey ji tama du nu oppi buum. noonu la demee ma bi Abdoulaye wax ma la naan waaye lu raw naan sax dina ko def ndax euh, mbali mbali gi bopp ba léegi fii ci euh, wurub Ngor dafa jéggi dayu keroog naka ci biir Ngor Ngor nee naa ay pàcc la ñuy xeexee day am ñenn ñoo xamante ñoom ñooy gérer saaga bi am ñoo xamante ni ñoom ñooy sànni xeer yi ñoo xam ñooy taal pune yi ak yooyu mais li ma ci gën a jaaxal rek euh, Ngor xeetu saaga bi ñu yor. boo ko déggoon ni lébu di saaga loolu moo dàq subana subana tabaski lu lu garaaw laa lay wax de boo leen ko mënoon wax ngeen ngeen dégg ko mm, di di di di di ngeen ree ba daw parce que boo leen jegee xeetu saaga bi waa Ngor yor loolu loolu loolu loolu jéggi na dayo ni ñu koy waxee dafa dafa neex euh, tey jii nag fii ñu nekk ci ci diwaan bu Ngor euh, tey jii euh, mi ngi yemoo ak àjjuma Eh, tey ñu nekk fi eh, ngor am ay xat-xat ay jàmmaarloo yoo xamante ni eh, mi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi jéggi dayoo xale yi ñi ngi wéy di xeex ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di way takk deri gendarmerie ay jàmmaarloo yu metti gis ngeen gendarme bi nga xamante ne am na fi gaañu gaañu ba waa suma assistance ñoom ñoo ko mujj ñëw jël si évacuer ko yóbbu ko am na oto sapeur pompier bu mag a mag boo xamee ni tamit ñëw na ci barab bi du ñàkk dafa dafa am kër goo xamante ni dafay dafay dafay jéggi dayoo TikTok SN maa ngi lay bëggee di la bu baax a baax yow TikTok SN moomu di la jaajëfal bu baax a baax a baax ndeysaan jamono nag fii ci biir Ngor wax dëgg neex fa yàlla Euh, métti métti bi foo ko foo ko natt euh, weesu na ñu ngi gis ñi tamit kër Farba Ngom ñu ngi koy taal nañu ko ak yooyu mais dinañu lijjanti ndax information bu wérte woor la laataa ñu leen koy dégtal rek dinañ ko topp lijjanti ko ndax loolu am na wala amul aha am na waaye kon euh, c'est c'est confirmé que nii kër Farba Ngom xale yi taal nañu ko Farba Ngom ku xam nga ko mun nañu sax wax ni moom mooy géwalu Macky Sall ndax moom Euh, Farba Ngom saa ne rek euh, ci ci côté wax ji dañu koy gis euh, day day wax rek taxawoon na ca assemblée ba di jay boppam ne dafa sañ seek wala dafa la mu sol dafa rafet ak yooyu yëpp waaye Farba mën ngaa sol lu rafet mais rafetoo gémmiñ bu waxul dëgg day wax la ca gannaaw dëgg waaye tey fii ci diwaan bu Ngor nag lii fi nga xamante ne am na fi di ay jàmmaarloo métti na benn xeetu métti beet boo xamante ni jéggi na dayoo Sergio Ramos mu ne sa liggéey rafet na yow itamit ñi ngi lay jaajëfal eh, yéen mbokki internet yu Feeling Dakar fi ngeen koy am ni ci biir Ngor bu ngeen gisee nag tey ji eh, dañu dañu ñologo ci ci ci ci ca kaw teraas yi ni golog kaw ndax boo wàccee ci suuf rek tamadu la pi boobu ndax tey ji léegi Sénégal dem nañu ba presse bi dootuñu leen bàyyi ñu amal seen ak liggéey ah, du dañuy njort ni ñoom day am yenn yoo xam dañu koy bëgg def te duñu bëgg ku ko fësal wala ku ko wax wala dara loolu moom moo tax duñu bëgg mm, presse bi di leen di leen di leen jël boo ñëwee dañu lay gazé mais dañuy bëgg rek comme yéen ñi topp géegeen ñuy topp lépp lu fi am rek dinañu sob sob soblu ba ba dégtal leen ko moo tax ñu ñologu tey def golo kaw yéeg ci kaw di leen dégtal image yi ngeen di ko gis noonu ci ci ci anam bi gis nga booy euh, xale yi ngor yi ñoom euh, dañuy xeex boole kook ay yuuxu man nee naa rek mooy li may wax euh, te bésub tay bi bokkul ci bés yoo xamante ne ngor xam naa mën naa ne ñoo woor nañu ko ndax lii ñu koy xeexee nii boole kook ay yuuxu ah doy na waar ñii am na lu ñu jël balaa ñoo wàcc ci terrain bi parce que da gis góor ak jigéen mag ak ndaw di di di xeex saa su ne saa su ne saa su ne eh, ci fii ci biir Ngor eh, ak yeneen manifestation yooyu ni mu daan amee lébu yi ñoom dañoo dañoo jël ndab ni mën nañ ni parce que ñoom ni ñu koy amalee ni góor ak jigéen mag ak ndaw eh, rek ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñooy génn surtout góor ñi jigéen ñi la du moins ñoom ñoo nekk ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk li nga xamante ne ñoom ñooy jàmmaarloo jigéen ñi ay dañu sol seen ay cuissard sol seen ay baa di di di di génn nekk ci kanam jiital jiita yëf yi di xeex euh, euh, xeex yoo xamante ne la day day jéggi dayoo sax. non foofu ñu dugg du du ñàkk kër yoo xamante ni lacrymogène yi dafay dafay dafay dafay dugg foofu euh, te bu fa duggee rek mun na fa andi ay jee ñenn ñi mun nañ fa amee tawet wala sax muy muy muy tàkk yenn xeetu tàkk yoo xamante ni doo comprendre loolu moom moo tax xale yi day ñi nga xamante ni ñoo di wax sapeur pompier ñoom itamit dañuy dañuy ñëw. pour mun di di di di di taxaw euh, li nga xamante ne moom moo moom moo xew fii wala yaa ngi laaj Mansour Gueye muy laaj ndax tay la war a tey ci ci bisu vendredi ni Eh, ñu naan suba la korité ah, wala tey am na ñuy korité fii ci biir diwaan bu Ngor fii la jàmmaarloo yu amee ay jàmmaarloo yu métti eh, takk der yi dafa mel ni xaw na nañoo def la nga xam ne daanaka moo di as sonn te booy xool affaire yi xaw baax a baax a baax sooy nga xam ne daanaka moo di as juma la gars yi julli nañu juma am ñeneen ñoo xam ne daanaka jot nañoo yokk ci li nga xam ne moo di ndaw ñi gars yi ngi continuer di xeex nga xam ne daanaka ñoo di eh, takk der yi bu baax a baax a baax a baax ñu ñuy suivre rek image foofu la mën a tool te xam naa ne bu ñu wàccee de xaw difficile ci ñun bu baax a ñu gars yi di dóoree la nga xam ne daanaka moo di as lacrymogène di ñëw xaw euh, euh, wax ak ñeneen ñi nga xam ne daanaka ñoo di ay moroom takk deram xaw ma nag lan leen di dee noonu te maa gis mi ngay joxoñ ci euh, koñ bi noonu bu baax te koñ boobu noonu muy joxoñ am na yenn ay ndaw nee ko dóoral fii nii yéen a ngi gis mi ngi waaj a dóor aali xaar ma zoomal leen ko gaaw ngeen gis waa ni nu muy nu muy nu muy nu muy nu muy lancé ña nga xam ne daanaka ñoo di ngeen lu ma leen di wax waa dóoraan na benn Euh, waa ji euh, daanaka euh, dóoraat na beneen waa ji mu ngi dóor noonu waa jaa ngi dóor gis ngeen li ma leen di wax jaa ngi dóor gii ngeen mi ngi dóor beneen deuxième waa ji doo ko woo mu daw si ñëw ba mu ñëw ba ci moom mu na ko dóoral ma fële mu waa ji joxoñ xool ko ba mu neex ko na ko teel a dóor ne ko teel door euh, euh, te fi mu ko joxuñ xam naa ne foofu la foofu bu baax bi la te xam naa ne gis ngeen mi ngi dóor euh, une deuxième waajaa ngi noonu di dóor deuxième li nga xam ne daanaka moo di lacrymogène gis ngeen ko noonu ni muy tiiree gis ngeen ko noonu ni muy tiiree dóoraat ko mu duggaat ci beneen angle bi ñu ngi gis tamit am ni oto boobu noonu ngeen di seen am na yenn ñenn nit ñi nga xam ne arrestation yi nga xam ne daanaka def nañ ko mu di ci aspa ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne daanaka ñu ngi ci biir oto bi gis ngeen dafay dóoraat troisième dafay doora a troisième mi ngi koy joxoñ mi ngi koy won yoon bi ne ko ko nee na ko yoon bii ngay dóoree gi nga dóorloo nee na ko téel dem na allahu akbar lii lan la ak koor gi nii gis ngeen ci gendarme bi sax bu naan ah, la nga xam ne daanaka oh saf na wi yaay yooyu Ali Ali ñu fu parce a affaire yi mu ngi ñëw si ñun bu baax a baax waa ji xam naa ne fu mu dóor lacrymogène bi baaxul Euh, affaire bi contrevent la te mi ngi ñëwaat euh, suñu côté euh, bu baax a baax a baax Ali lii lii lii vraiment kenn kenn kenn xamul lu mu doon waa ji mi ngi koy yoon do won yoon bi pour mu mën a teg fa li nga xam ne daanaka moo di lacrymogène bi nga xam ne bés bu fa dalee rek yaa ma gën a xam dina tey soo xool lacrymogène yi système la te booy étudiants ñoo koy xaw a gën a mën a maîtriser bu baax a baax baax a baax gis ngeen waa ji nga xam ne daanaka moo dooroon noonu mooy avancé waat noonu di dem waa ji mooy avancé waat noonu di dem gis ngeen day dooraat beneen wala waa ji day dooraat beneen wala waa ji day dóoraat beneen wala waa ji defaat na benn euh, recul bu baax a baax a baax gis naa ko mu dugg léegi ci koñ bi ah. mais dafa mel ni dafa defaat li nga xam ne daanaka moo di as euh, recul donc euh, lii lii lii li kéemaan na lii lii kenn xamul lu mu doon vraiment donc nekk na loo xam ne métti na gaa yaa ngi koy continuer di dund bu baax a baax a baax quinze heures dix-huit donc lii te booy xam naa dama naan. Euh, booy mun naa jàpp ne dañuy doog a euh, def la nga xam ne daanaka moo di as euh, commencement donc booy ñu bay pare waaji mi ngi waaj a dóoraat beneen xam naa ne yenn ci oto yi nee naa la am na oto yoo xam ne mën naa ne ci défilé laa ko gisoon euh, procès Ousmane Sonko ki nga xam ne daanaka moo di Mame Mbaye Niang ñu koy ne moo di Ousmane Sonko ak diffamation moom naa ko fi euh, euh, a waajal parce que mën naa jàpp ndaw ñi dañoo xawoon a dominer ñi nga xam ne daanaka moo di gaay moo tax gaay jël lépp li nga xam ne daanaka moo di seeni ay matukaay pour gën a mën a jàkkaar jàkkaarloog ñi nga xam ne daanaka moo di ndaw ñi kër Farba Ngom gaa yi taal nañu ko donc mën naa ne ay du yem ci boppi borom gis nañ tamit benn euh, euh, takk der boo xam ne mën naa ne blessé na ba mënatoon a taxaw otosement bi moo ko mujjee jël si euh, ba ñu jàllale ko donc lii lii lii kenn xamul mu doon donc lii lii kenn xamul lu mu ay ay du yem ci boppi borom nañu arrêté li ni mel ay du yem ci boppi borom nañu arrêté li ni mel saxaar saa ngi continuer di ñëwaat parce que contrevent bi ñu taxawee la Euh, moo tax saxaar si mi ngi continuer euh, di ñëwaat bu baax te soo xool gis ngeen lacrymogène bi dañ ko dóor euh, mais mais dafa yëg ci kaw bu baax a baax a baax a baax te nee naa la li ànd toog koor booy xool takk der bi gis naa ko muy jël na ñaari dose mooy naan na ñaari kaasu ndox ndax lii moom vraiment mun naa ne ànd toog koor ànd toog koor te xool affaire na jër sax mais teewul euh, ñu ngi gérer bu baax a baax bu seen nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV mbégte la loolu vraiment ñuy euh, bu baax a baax a baax a baax si c'est Feeling Dakar TV en temps réel en show ngeen koy amee euh, fi nga xam ne moo di daanaka ci Feeling Dakar TV gis ngeen takk der yi taxawaay bi ñu def bu baax a baax a baax sur l'autre côté tamit xam naa ne bu ma mënoon génn dem gën ko jege tamit dina nekk am solo mais dafa wóoratul ndax pëccëxoo bi may gis foofu noonu téeli téeli gi may gis foofu noonu nekk na loo xam ne euh, mën naa ne euh, compliqué na euh, lool Ali xam naa ne lacrymogène yaa ko xaw a sonal trop sax vraiment mais mais Ali jàmbaar la donc Ali boo ñu mënee jegewaat bu baax a baax a baax ndax gars yi internet yi ñu ngi lay laajte ndax ma gën a mën a zoomal gars yi lii nga xam ne daanaka mi xew en ce moment fi nga xam ne daanaka moo di ci diwaanu Ngor Ali ñëwal mm-hmm. dina nekk lu am solo vraiment jaajëf. waa mbokk yi internet yu Feeling Dakar comme ni ngeen koy gisee boobu ak léegi. fii ci ci ci biir ngoro yëf yi mi ngi yokk am na ci ñenn ñoo xamante ni jëlee nañ ci ay gaañu gaañu euh, ci bokk ci ci ci corps bu gendarmerie am na ci gaañu gaañu yu metti ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa suma assistance ñoom ñoo ko mujj ñëw jël si fi évacuer ko yóbbu ko. am na ci kër yoo xam ne ni ñuy sàndee grenade rek ni machine yi euh, dafay dafay dafay xaw a doy waar. Euh, moo tax ba sapeur pompier seen oto bu bu mag bi sax dafa mujj daal di daal di ñëw. di di di di di di di fay la nga xam ne moom mooy tàkk-tàkk yaa am foofu noonu jamono ji nag fii ci diwaan bu Ngor suñ leen ko waxee ak suñ leen ko waxul yëpp euh, affrontement yi nga xamante ne am na fii jéggi na dayoo métti na lool lool lool benn xeetu métti boo xamante ni doo sax comprendre tey jii bu ñu mënoon wàcc dem ba ci suuf. pour mun leen ko jëlal dañ koy def mais boo wàccee rek ci ci buntu kër gi fii ñu nekkee nii rek maanaam euh, takk der yi dañu dañu dañu lay dañu lay gaze ak yooyu dañu lay dañ lay comme comme ni ngeen ko gisee noonu euh, actuellement yi yi dafay dafay dafay metti fii ci ci ci ci ci biir Ngor pour nga di ko dund euh, dafay metti loo xamante ne Euh, actuellement a nga comme ni ngeen koy gisee noonu dafay nekk loo xamante ni day day xaw a doy waar tuuti. ndax xale yi ñu ngi wéy di jàmmaarloo ak takki der yi gis ngeen oto euh, li nga xamante ni moom moo di euh, sapeur pompier bi noonu mooy oto bu mag bi nga xamante ni moom moo di fay mooy fay lakk yi moom moo di moom mooy romb noonu euh, comme ni ngeen koy gisee ci ci image yi bu sapeur pompier bi ndax li nga xamante mooy li may wax léegi rek du ñàkk ci biir kër yi niñ ci dóoree ay grenade lacrymogène ak yooyu dafay am ay jë yoo xamante am ci biir kër yi ak yooyu loolu moom moo tax nag ñoom dañuy dañuy dañuy ñëw pour sécuriser ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci yooyu euh, lieu tey fii ci biir Ngor euh, am na ci ñeere ñoo xam am nañ ci ay gaañu gaañu yu métti euh, ko waral ci ci waa gendarmerie mais gis nañu ñeneen ñoo xamante ne def dem arrêté nañ am na arrestation yoo xamante ne ay nit teg nañ leen ci loxo yóbbu leen ci li nga xamante ni moom moo di seen oto yooyu noonu pour téye leen foofu noonu yow yaa ngi yaa ngi laaj lu am solo ñu ay journaliste lañ lan moo tax ñu di ñu gazé euh, parce que euh, réew bu Sénégal dem na ba toll foofu bu ñu demee ba presse bi tuñ leen ñu def seen liggéey bi mu waree euh, dafay nekk loo xamante ni lu jéggi dayee kenn xameetul xar kanam bu Sénégal ndax ñoom dañuy bëgg di def dara di ko di ko nëbb nit ñi bañ di ko xam ndax ñun suñu liggéey mooy lépp loo xamante ne gis nañ ko ñu biral ko ci ci ci ci ci ci ci ci biir réew mi nit ñi xam lan moo xew actuellement suñu liggéey kese la ñuy def ci biir Ngor démb am na kenn ku ñuy doon waxtaanal ku dëkk ci biir dëkk bi fi juddoo fi yaroo fi màggee fi di yeewoo ci biir dëkk bi mu ngi ñuy xamal ni affrontement yi li ngeen gisagum dafa tuuti ndax am na ci ndaw yoo xamante ne lu toll ci trente bus yoo xam ne ni jóge nañ fii ci biir Ngor dem ci diwaanu Mauritanie ca Nimzat pour. Euh, feete foofu korité bi mu ne imagine la but euh, ndaw yooyu yëpp ñu ngi woote di fësal seen naqar ci li nga xamante ni moom moo am actuellement ci seen gox bi di Ngor ni loolu ñoom bu leen fi fekkoon neneen lay demee te ñoom ñi yàkkamti loolu seen euh, taba seen ko korité jeex bu nu ñibbisi waate bu ñu ñibbisee fii bu nu fi fekkee coow li coow li dina ëppi loxo ñoom ñoo ko ñoo ko wax di ay ndaw yoo xam ne dëkk nañ fii ci biir gox bi di nga xamante ni moom moo di Ngor ñu ngi wax ne am na seen ay morom yu baree bari bari coow li fekk leen fi dafa fekk ñoom ñu dem euh, fee nga xamante moom moo di ca ca euh, Mauritanie Nimzat euh, fara yi ñu dem pour passer fa korité bi ñoom nag ba ñu demee seen ginnaaw la yëf yi am loolu moom moo waral ñoom affaire yi daf leen a métti métti métti ba ba sax doo comprendre ñoom bugguñu rek lu dul ñibbi si waate dellu si waat fii ci biir gox bi ba mën a jàmmaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di tàkk der kon dañuy jàpp ni ñooñu bu ñu delloosee lu toll ci trente bus yoo xam ne jóge nañ fi dem pèlerinage la ñu ko mën a waxee bu bu bu bu ñoom bu ñu dellu si fekk si ah, ndaw yi nga xamante ne ñoom ñu ngi fi moom Mamadou Samba mi ngi ñuy xamal ci lu toll ci 40 pour cent ñoom dem nañu ñoo ñu ñëpp bu ñu ñëwee fekk si mbooloo mi nga xamante ne moom moo des fi kon jàmmaarloo yi mën nañ jàpp ne du fi yem dafay gën di yokk loolu nag eh, jàmm loo ko jëndee jar na ko ndax jàmm gën jamaa olof dafay wax loolu kon ñi nga xamante loolu moom moo waral coow li sax la ñuy wax nañu xool li nga xamante ne moom la ñuy mën a def ba régler ko mu jeex benn yoon ndax jàmm moom moo gën ay euh, comme ñooma problème bi nga xam ne moom la ñu am ak gendarmerie actuellement que ñu xam ne ne nag gendarmerie amoon na fii ci biir ngoro brigade am na fi mais brigade bi ñoom nee nañu euh, brigade bu tawee dafay taa. léegi nag loolu moom moo tax nag waa gendarmerie ñoomi tamit bëgg ñoŋalaat euh, beneen place boo xam ne dinañu dinañu. dafa nekk pour euh, di di mën a wéyal seen liggéey jóge ci taataa boobu ñoom nag fa ñu ciblé moo di parking bu mag bi nekk fii ci wetu rond bi waaye nag ñi nga xam ñoom ñoo dëkkee fii ci biir gox bi ànd seek seen maire ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp dañu taxaw lànk ndaare di loolu du fi amee parking bi mënuñu leen ko jox ndax parking ba rëy na lool pour ñu def ko gendarmerie ñoom nag ca noonu la ñu rek a gis guddi euh, ñu ñu wax gendarmerie wàccee seen ay béton fer ak ciment ak ay mool commencé gaz di di di di commencé travaux yi ak xale yi nag ci noonu la ñu xëy nag ne ah comme ñi lañ leen waxoon ñoom xaaruñu dem nañ ba jigi gi kon travaux yi du fi amee du fi yegg ñu commencé di di di jàmmaarloo ak ñoom ay jàmmaarloo yu métti métti métti métti boobu ba léegi keroog nag ci jàmmaarloo yi fi njëkkoon am ñoom euh, seen maire bu gox bi keroog ñëw na ba wax takk der expliqué leen wax euh, ñenn ci chefu chef yi ba ñu sax mujj trouver benn terrain d'entente wax ne waxtaan nañ ba juboo ba moom mu ñëw euh, ne xale yi kon mën nañu delluwaat ci kër yi ndax euh, waxtaan nañu ak ñoom nee nañu dinañu teg lépp ci suuf ba xale yi delluwaat ci seen ay kër mais dëkk léegi dañoo xëy gis euh, travaux yi di gën di yokk ñu ñu ñu ñu jël foofu barab boobu daal di koy clôturer ak yooyu trois cent trois cent mètres carré dafa ñu ne dafa rëy ñoom nag waa gendarmerie commencé nañ collecter foofu ba travaux yi ñuy wax ak yéen jamono ji euh, ñu ngi koy commencé di awal foofu xale yi nag nee nañu du ci dal euh, liggéey du fi commencé tey du fi yegg ëllëg loolu moom moo waral euh, jàmmaarloo yi di gën di am fii nga xamante ne moom moo di ci diwaan bu Ngor ndax boo mënoo nekk ci ci ci barab man ci ci jàpp jàpp naa ne tey ji boo demee ci ci ci gox bëgg fa tabax kër sax di nga dem auto autorisation de construire euh, ma ca ca ca yi ba euh, nga koy nga koy uti jee ci maire bi moom moo la koy jox waaye gendarmerie noonu damay laajte naka la ñu mën a commencé di di di di wóyal seen ak tabax te maire bi nga xamante ne mooy maire gox bi euh, gérer suuf bu dëkk bi yëgul tinul loolu dafay dafay am lenn loo xam daf koy nuur boo waxee. ñu ne ñu ne da xaw far wala dara te alors que gémmiñ su waxul dëgg dafay wax la ca gannaaw dëgg. li nga xamante moom mooy dëgg nit ki mënuloo ko fekk fi nga xamante ni foofu la dëkk euh, moomeelam suufam nga ñëw bëgg ko ko forcer bëgg ko nangu ci ay loxoom def fa la la neex ci ci anam boo xamante ne yow na nga ko bëggee nam ko nam la soobee rek sa arrangement nga ciy xool ku ne xam ne it euh, gendarmerie baax na ci gox euh, pour pour pour ñogalaat sécurité wala dara waaye tey jii jàpp naa ne fii ci diwaan bu Ngor police sax la ñu gënoon yelloo que gendarmerie parce que parce que Ngor ville touristique la di nga di gis di nga gis Ngor euh, ñi fi ñi fi ñëw ci ci ci ci côté touriste dafa bari Ngor jege na Almadi ak yooyu dina jaadu police euh, am am ci biir biir gox bi te yow ñi nga xamante yéen yi waa gendarmerie am na benn gendarmerie brigade gendarmerie boo xam mi ngi fii ci biir Ngor. am na fi ñoom nee nañu kat brigade bi maanaam euh, dafay bu tawee dafay taa dafay taa léegi loolu moom moo tax. Euh, ñoom euh, dañu bañu bëgg beneen barab pour ñu jox leen ko ci biir gox bi laata nag waa ñi nga xamante ne ñooy mairie bi ak ñeneen di leen saytul benn site pour jox leen ko ñoom fa ñu taal mu nag du fenn dafa dul euh, ci ci ci fi nga xamante ne moom moo làngoo ak rond bu bu ngor ba mooy eh, eh, parking ba nekk foofu ñoom fa la ñu dem ne fukkee daal di jël nag commencé defal seen ak ay travaux Euh, mu nekk loo xamante ne nag askan wi ñoom itamit du ñu toog yaafus ñuy def noonu suuf bu Sénégal di ko salfaañe lu lu neex waaye def parce que booy xool wuruma ko Ndakaaru place desatu fi yenn yi ña nga xamante ne ñoom ñoo di euh, homme politique yi wala ministre wala keneen wala président wala dara jël nañu suuf yi jaay ko te ah, espace amatul fii tey waa Ngor am na leen lu ñuy réclamer euh, am na am lu ñuy réclamer lu am solo loo xamante ni moom moo di euh, li nga xam moo di Ngor amul lycée am amul amul euh, lycée boo xamante ni école bi mun nañu mun nañu fa xale yi mun nañu fa jàng moo tax ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy saytu barab boobu tey buñ leen ko joxoon ñu ñu tabax ko def ko lycée boo xamante ni dinañ mën di di di amal seen ay xale yi dinañ mun di di jàng foofu noonu amul lycée amul sem amul. xamul dara euh, te te effectivement loolu yella woon nañ ko fii ci ci barab bu bu Ngor gannaaw ba ñii di gendarmerie ñu xoolal leen beneen beneen lieu boo xamante ni dinañ leen ko jox parce que waa Ngor ñoom la ñuy laajte ñu bañuñu leen ko euh, jox euh, waaye lañ ko jëlee dafa rëy lool dafa yaatu dafa ëpp pour pour pour gendarmerie xanaa kay dañuy wax defatuñ ko gendarmerie waaye dañu ko bëgg a def gendre wu gendarmerie lycée wala wala CEM ah, amul ci ci ci biir biir biir biir biir Ngor te te te il est temps ñoom ñu ñu am ko tey jii euh, comme police war na mën a am fii ci biir Ngor parce que waa Ngor ñàkkul bu ñu bëggee carte d'identité ah, dañuy dem sax ba di waanu parcelle la ñu koy wuti jee ak yooyu. kon yooyu yëpp foo ñu di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax dem nañu ba carte boo boo ko bu yenn papier yi boo ko bëggee parcelle parcelle nga jëm parce que du du am fii. Ali takk der bi mi ngi avancé euh, di continuer di dóor euh, fi nga xam ne daan na ko moo di ci angle di continuer di dóor euh, fi nga xam ne ko moo di ci koñ yi te ñu ngeen yéen a koy gis noonu dans les images waa noonu joxoñ joxoñ joxoñ bi muy def waa jooju joxoñ joxoñ bi muy def yéen a ngi koy gis noonu. bu baax a baax a baax te gars yi ñu ngi continuer di dóor te lu gaaxal ci affaire yi booy booy lébu yi alam lébu yi euh, wala booy ngor yi euh, buñ dóoree ñoom tamit seen i ne moo a jàkkaarloo ñi nga xam ne moo di takk yi instant na si yenn euh, takk ne ñoom wooru parce que lii moom mën naa ne bu ànd ak moom suñ borom ko xam naa ne koor plus lay doon vraiment doon na loo xam ne compliqué na yéen a ngi gis waajooñ noonu ni mu booy bi a ngi koy gis noonu dans les waaj waa ji ni mu jàkkaarloog booy di continuer di doo dafa mel ni booy euh, daanaka mën naa ne euh, booy dañoo nekk euh, ci ci angle bi bu baax a baax moo tax waa ji di continuer di dóor yéen a ngi gis takk-der yi noonu di avancer di ñëw bu baax. waa ji mi ngi koy joxaat saak bi dafa mel ni dafa xaw a manqué lacrymogène gis ngeen ko mi ngi kenn ki ngi joxoñ ay loxoom ah, naan naan topp leen sinon sànq ba gis naa ne ñu ngi dóor foofu noonu li nga la nga xam ne daanaka li nga xam ne daanaka moo di saak saak bi dafa mel ni dafa jeexal lacrymogène day ñëw remplir euh, pour mën a gën a dem jàkkaarloog ñi nga xam ne moo di booy mi ngi ñëw ci oto bi noonu mi ngi ñandu ne mi ngi ñandu pour mën a dem ci oto bi ngeen saak boobu mu yor euh, daanaka mën naa ne moo def lacrymogène yi euh, gis ngeen ko mooy ñëw noonu gendarme boobu di dox di ñëw di dugg si biir affaire yi nee naa la affaire gis ngeen am na beneen oto bi ñëwaat am na beneen oto takk der bu ñëwaat kii li daw bari na la kii li muy daw bari na oto mooy oto bii bii la aali Ali oto oto bii bii la gis nañ ne Ousmane Sonko euh, bañ koy arrêté fële nga xam ne daanaka moo di ca di ko yóbbu fa nga xam ne moo di ci euh, bañ koy jàppee ca pont bi nekkee ca côté Soumbédioune euh, oto boobu noonu lañ ko jëloon oto yi ko escorté woon oto bi romb léegi nii ci la bokk moo ci oto bii bii donc li nga xam ne mi ngi xew fii ci Ngor compliqué na lool te booy xool booy xaajuñu booy bàyyi te xool takk der ñoom xeexu koñ a koñ la da ngay xool angle par angle daf may fàttali nawetaan xandaalu kusum. Medina da ngay gis genre bagaar yi bu fa jotoon am ni la ko booy di xeexee takk der dañuy taxaw koñ koñ booy nekk ci koñ te booy duñ nekk euh, fi nga xam ne bi donc bi euh, mën naa ne euh, ñëpp a comprendre situation bi wala xeex bi mën naa jàpp ne ñëpp a xam daanaka naa ne jot nañoo xaw a li nga xam ne xeex xeex yi nga xam ne daanaka mi ngi am ci ci ci ci bërëb yi parce que ngay xool booy ñoom ñëpp kenn du ci nangooti nekk fi nga xam ne daanaka moo di ci kaw tali bi comme xeex université Cheikh Anta Diop Dakar gi ngeen takk der bi avancé waat na takk der bi avancé waat na takk der bi avancé waat na day dóor day dóor non delluwaat na ay bu dóoroon foofu te booy xool takk der bi daanaka dafa solo solo solo ba fees dell xam naa ne dox sax du ko mën ah, dox sax du ko mën am na benn oto bi ñëwaat sama ginnaaw am na beneen oto euh, gendarmerie euh, buy ñëwaat noonu sama ginnaaw gis ngeen waajee jonkan bi noonu noonu la mën a tiire gis ngeen waa euh, euh, ma ngay euh, tiirewaat di gën a wéyale te te lii naa ne naan ay yom ci boppi borom gis ngeen benn gendarme boo xam ne mën naa ne jot naa def ne daanaka moo di as blessé gis ay arrestation ñoo xam ne daanaka jot nañ leen a jàpp ba dugal leen ci oto bi kenn xamul fan lay yem donc ñu ci war a artu rek nañ ci artu pour lii mën a jeex parce que xool Cambérène jëloon li nga xam ne daanaka moo di seen wàll di gën a wéyale ci li ni mel donc Ali gis ngeen gars yi ñu ngi continuer di gën a def gis nga takk der yi ñu continuer di gën a dóor li nga xam ne daanaka moo di ay lacrymogène euh, donc lii lii li fa la jëm bu ci gars yi waxul lii fa la jëm Ali voilà xeex yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi affrontement yi mi ngi wéy di am ci ci ci biir diwaan bi euh, ci anam boo xamante ne nag wàññeekuwul dafay gën di yokk ndax euh, xale yi mën ngaa jàpp ne ñii sonn nañ dañuy noppalu ko ji wala dara mais ci ci ci ci deux heures de temps ou trois heures de temps. ñoom ñu ngi wëy di di di jàmmaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo dégg ngeen euh, biir bi teel teel ji yaa ngi koy dégg ci ci alentour bu Ngor su doon sax benn tali kese la la xale yi jël di ci jàmmaroo takk der yi nga ne waaw déedéet du benn tali kese de angle par angle koñ par koñ fépp fu fu fu fu fu euh, kii koñ am rek wala angle xale yi génn nañ fa di jàng yi boobu ba léegi euh, ñii di ñii di nag waa waa gendarmerie dañuy dem ba dañuy mujj seen woo seen ay ay renfort ndax xale yi nii ñu leen ni ñu leen sonalee li nga xamante ne moom moo xew fii actuellement parce que gendarmerie euh, xale yi euh, dañ leen a xawoon sax dem nañ ba woote seen seen renfort boobu ba léegi nag ña nga taxaw ca kaw fële nga xamante ni fala yëf yi amee di jàmmaarloo ak ak ak xale yi ñu ngi ñu ngi waaye ñu ngi andi renfort renfort bi renfort bu bu bu méttee métti am na fii nii parce parce que tey jii booy booy xooloo ci ci. waaye parce que xale yi mooy li may wax dañu dem ba sonal yi nga xamante ne ñoom ñoo di waa gendarmerie loolu moom moo waral ñoom ñu daal di dem jëlee ay renfort andi leen pour pour mun a xeex ak ñoom parce que xale yi ngor da ngay gis ñoom saa sune rek. du ñu bàyyi te du deltu gannaaw noppalu ku ñu benn yoon wane wuñu benn moment boo xamante ne danga naan xale yi dañoo sonn ña nga ña ngay dellu ca biir kër yi ak yooyu defuñu ko waaye ñi ngi wéy di di di jàmmaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di di di takk der yi jamono ji euh, ay ay jàmmaarloo métti métti jàmma jàmmaarloo yu métti métti métti métti moom moo am uh, fi fi nga xamante ne moom moo di ci ci diwaan bu bu Ngor uh, loo xamante ne nag wax dëgg ne fa yàlla uh, fii ñu nekkee di ci ci biir biir Ngor jéggi na jéggi na dayo jéggi na jéggi na dayo jéggi na dayo jéggi dayo goo xamante ne gendarmerie dem nañu ba mujj jaaxle woote renfort parce que boo suppoo nii say say say gët nga sànni ko li ngay gis ci ci ci ay oto takk der yu yu yu yees yu ñëwaat gis nga ñii kii mi ngi roof ay ay armam euh, préparé ay bal blanc ak yooyu pour pour pour mën a mën a mën a mën a ñëw ci ci ci ci kaw xale yi parce que seen morom yi fi nekk xale yi xaw nañ leen sonal benn xeetu sonal boo xamante ne loolu moom moo tax ñoom. ñoo ñoo ñu ñoo gis ngeen ko gis ngeen voilà affaire yi gën a gën gën a gën a jéggi dayo gën a jéggi dayo euh, ci ci biir Ngor bii gis ngeen ko noonu affaire yi gën a jéggi jéggi jéggi dayo ñi ngi commencé gis ngeen ko tey jii naka gis ngeen euh, bruit bi ngeen dégg renfort bi ñoom ñoo ñëw commencé di dóor gis ngeen yooyu moom ngeen commencé di dégg renfort la ñu woote moo tax ñu ñëw di di di di di dóor euh, ci ci kaw xale yi di leen gazé noonu yéen ne ko gisandoo wax dëgg ne fa jéggi na dayo benn xeetu jéggi dayo goo xam ne ni gis ngeen renfort ba ña ngay ña ngay pare nañu takku nañu ba dëgër ña nga noonu di dox wutali fa yëf yi xewe gis ngeen renfort bi ñu woolu noonu ñoom ngeen di gis ci image bi noonu ñi ngi ñi ngi ñi dox di dem di di di di fa fa affaire yi amee parce que gis nga leen boo dañ doon compter rek doo xam fu ñu am renfort bi ñëw na ñi ngi noonu di dem ñi ngi ñi ngi dox wutali xale yi ñi ngi dox wutali xale yi ñii dañoo bari sax ñii dañoo bari sax dem nañu ndax xale yi mun nañ xawoon nañ leen sonal loolu moom moo tax ñoom ñu ñu ñu ñu renfort pour ñëw jàmmaarloo ak ñi nga xamante ne ñoo di xale ngor yi ndax euh, xale gis ngeen ko noonu renfort bi ñëw na yëf yi gën naa jolli au lieu mu wàññee waaye gën naa jolli gën naa jolli lii nag dafay firnde rek ni waa waa ngor xeetu xeex bi nga xam ak jàmbaar bi nga xamante ne moo ngi ci moo ngi ci ñoom Eh, ñoo di ko amal seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di woy takk déeri ñoom ñu ngi jàmmaarloo ñoom jàmmaarloo yu métti loolu waral sax ñi nga xamante ne ñoo di waa gendarmerie dañu mujj woote ak renfort pour ñu ñëw xettali leen ci li nga xamante ne moom moo am fii actuellement di ay yu métti dox seen diggante ak population bu Ngor gis nga waa Ngor yàkkoon nga ni sax ni xale yi ah léegi ñu sonn dem dugg seen biir kër noppalu waaye defuñu ko dañoo mujj di sonal policiers yi xeetu sonal goo xam ni ñi nga xamante ne ñoom ñoo di takk der yi sax dañu mujj wooteek renfort pour ñu ñëw mën leen a dimbali ci euh, li nga xamante ne moom moo am fii actuellement ci biir Ngor jéggi na dayo euh, saxaar si métti na xet gi it métti na waaye yéen internautes yu Feeling Dakar dañ leen koy dégtal ngeen di ko gis comme ngeen koy gisee noonu gendarmerie mujj nañu wootee renfort xeex nag boo xamee ni dem nañ ci ba gendarmerie di ci wooteek renfort rek kon xamal ni loolu jéggi dayo Euh, doy na waar mais ëpp na tool sax la ñuy wax fii ci biir Ngor situation bi ni ñu koy dundee nii actuellement doy na waar lool lool lool lool gis ngeen ko noonu ngi noonu di di di di di di dem di jële xale yi euh, di di gën a jege xale yi pour di leen sox seen ay grenade lacrymogène waaye xale yi ñoom itamit deltu wuñu gannaaw benn yoon ñu ngi wëy di amal li nga xamante ni moom moo am am na ci euh, nag fii ci diwaan bu Ngor Euh, fii lango ak terminus bu bu busu 3 bi foofu lañu nekkee jamono ji euh, tali bi moom mooy jëm directement ci biir dëkk ba euh, waaye ci Ngor du ci tali bi kese la xeexi amee alentouru Ngor fépp foo xamante ni rek mën nañ ne fii ci Ngor la bokk ay jàmmarloo yu métti ñoom ñoo fa am ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo dëkk ci koñ bi ku ci nekk koñ ba nga nekk wala angle ba nga dëkk yow yaa koy gérer sa bopp jamono ji. Ali je ne pense pas lii mën a yam fii wala mën a arrêté. heure bii nii te sooy xool takk der yi ñuy gën a yokku man li ma gis ci bi l'autre côté bi xam naa ne policier bi li may xool xool yi may moo tax mënu leen ko jox euh, fii nga xam ne moo di sama caméra mais gis naa ne côté bii nii ma gën a taxawee nii euh, jëm ci côté euh, virage gars yi ñu ngi gën a renfort di gën a ñëw donc booy ngor yi xam naa ne tamit est-ce que dinañu mën a maîtriser takk der yi seen sakkan bi ñu gën a sakkan en tout cas li nga xam ne daanaka mën nañu ko wax il faut que ñu déglu population bi parce que genre détail yii nii di am wala genre jàmmarloo di ci am ay blessé di ci am ñu ciy jàpp ay nit ngeen jàpp ne jaadu na ko que ñu bàyyiwaat ñu xel ñun ñi nga xam ne daanaka ñoo di ñoo peuple bi il faut que ñu bàyyiwaat ñu xel ñun ñi nga xam ne daanaka ñoo di sénégalais lambda parce que c'est important parce que li xam ne bi nga xew ci diwaanu Ngor est que jàpp ngeen ne jaadu na tey nit ñi di korité suba nit ñi ne war a nit ñi war a nekk ci yeneen vibes si xoolal li nga xam ne daanaka xale yi ñu ko nekkee ngeen jàpp na lii nii jaadu na donc ñu ci war a artu ñu ci artu ñu arrêté lii nii ndax policiers yi may gis ñuy gën a renforcer di gën a ñëw nii euh, mer nañu mer boo xam ne tey jii nii te gis naa si ñenn ñoo xam ne ñu ngi yor ay pistolet yoo xam ne c'est ay c'est des balles blancs te ñi kuñ ko dóoru billahi gëm naa ne suba doo ko rite aali ah, lii nga jàpp ne jaadu na il faut que ñu bàyyiwaat ñu il faut que ñu bàyyi woon ñu xel donc euh, vous êtes nombreux di ñu suivre laaj leen affaire bi rek te xam naa ne dinañ ko gën a wéyal ak yéen euh, di leen gën a jox affaire yi bu baax a baax a baax baax duñ ci tàyyi euh, gis ngeen gars yi ni ñuy préparé woo di di yor. di takk takk li nga xam ne daanaka moo di seen i ay masque pour gën a mën a avancer soo xool tout droit bi yëpp gars yi ñoo ko occupé booy ci pàcc yi la ñu nekkee wala booy ci koñ-koñaat yi la ñu nekkee daanaka pour mën a gën a jàkkaarloo gars yaa ngi avancé gars ngi avancé benn bloc avancé na noonu. benn bloc avancé na noonu gaa yaa ngi euh, avancé euh, gaa yaa ngi avancé bu baax a baax noonu pour mën a dem gaa yaa ngi avancé noonu euh, pour gën a mën a dem donc gis ngeen ko noonu dans les images gaa yi ñu ngi gën a yokkute di gën a dem gaa yi ñu ngi dem noonu donc ñu xaw ñoo baal tuuti ci image yi rek parce que ni ñu leen koy joxee xaw naa compliqué de tuuti donc baal la ñu rek gis ngeen gaa yi bloc boobu ñu def. Euh, mooy as tout droit pour mën a dem pour euh, jàll jàppale euh, daanaka ñi nga xam ne daanaka ñoo nekkee ci kanam kanam xam naa ne ñooñu moom vraiment so son sonn nañu moo tax gars yi defal leen la nga xam ne daanaka moo de as renfort pour ñu mën a kën a mën a maîtriser booy donc lii moom vraiment yéeme na li nga xam ne mi ngi xew fii moom vraiment kenn xamul lu mu doon gis ngeen tout droit boobu ni ma leen koy waxee lépp ay takk der la. lépp ay gendarme la ñu ngi gën a euh, gën a bari takk der yi ñu ngi gën a bari euh, ci côté virage bi tamit maa ngi gis oto gendarme yi nga xam ne daanaka ñooy njuuli kon jàpp nañ ne euh, lii ah lii xam naa ne ca défilé ba laa ko doon gis oto gendarme yi ñu rangaloo yi nii doon pil naa jàpp ne plus de vingt oto wala vingt oto lu ëpp te xam naa ne ëpp na ko sax daanaka euh, yoo xam ne daanaka dañoo rangaloo yoo xam ne ay ndaw ñoo ci nekk wala ñi nga xam ne daanaka ay gendarme ñoo nekk ci biir oto yooyu noonu euh, pour préparer euh, bu fee xaw a yëngatoo tuuti rek ñoom ñooy wàcc pour mën a gën a dem defi li nga xam ne daanaka moo di Assurance Fort donc lii kañ la nar a jëm lii fan la nar a jëm donc Ali Ali man man damaa mujjee tiit parce que lii lii xew nii mën naa ne jaaduwut lii xew nii yéeme na vraiment di xew ci diwaanu Ngor Ali ma bàyyi la nga voilà euh, gis nga ne ci biir euh, xeex bi ba tey sax ñii di waa Croix-Rouge ñoom ñi ngi jëw di artu euh, ndax mm, yii bu amee rek day am ñenn ñoo xam ne dañ ciy am ay gaañu gaañu ak yooyu ñoom nag ku ci am a gaañu gaañu ñoom ñooy ñëw. taxawu la defal la ay premiers soins laata ñu lay yóbbu ca l'hôpital gis ngeen ñoom nag ñu ngi noonu waaye fii ci diwaan bu Ngor mooy li may répété sànq ba léegi rek am na ci ñeneen ñoo xam dañuy doog a ñëw ci live bi bëgg xam lan moo xew fi waa ngoro li nga xamante ni moom la ñuy jàpp jàmmante euh, jàmmaarloo ak ñi nga xam ñoo di euh, way waaye takk der yi tey ji ñoom nag li nga xam moom moo fi xew moo di euh, problème mu suuf la ñu am <laughs> ndax am na yéen yenn ci yéen ñoo xam ne yéen ay laajte oto bi boobu moom nag buy daw du daw ndànk moom day xëlli xëlli rek daal di ñëw mel na ni tamit ñi nga xam ñoom ñoo di ñoom ñoo di takk der yi Ali euh, dafa mel ni euh, drone bi nga xam ne gars yi ñu ngi ko doon laam-laame drone nga xam ne gars ngi ko doon laam-laame euh, fële nga xam ne daanaka moo di mel ni moom laay seet noonu mu taxawee ci côté ba taxaw benn place xaw ma la moo tax jógeegul foofu noonu oto yi nga xam ne mën na jàpp ne nee nañ ay drone la nga xam ne daanaka buñ ne ñoom ñooy naaw Ali loolu moom nu mu a mel oto drone bi daal mën nañ jàpp ne mi ngi taxaw en place Ali ma bàyyi la nga wéyale la tax oto drone bi di déplacé pour ñu mën ko jox les internautes internautes yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel euh, fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar ku gis kaa nii gis ba li nga xam ne moo di oto drone bi euh, ñëw ali lii fan la nar a jëm donc ñu ko war a wax nañu wax ñu arrêté lii nii parce que lii nii ay du am ci bopp borom de billahi bi léegi nii dafa blessé ba gars yi ko dugal ko ci oto bi te xam naa ne ay ndaw noonu la ñu blessé ñu ci war a wax nañ wax ñu arrêté lii nii parce que lii yéeme na Ali. voilà bu ñu demee ba naka na ay drone dafa ñëw ak yooyu. Euh, bés bu ñoo demee ba andi drone bu ko tiimale askan wi di leen ko gazé rek boobaa duñu du ma wax sax waa Ngor kese ñoom ñooy jóg waaye Sénégal yëpp ñoom ñooy jóg bu boobaa ndax loolu du nekk loo xamante ni dafay niroo ak dëgg bu ñu demee bay andi euh, drone boo xam ne dafay gazé ay grenade lacrymogène xaw xawma boo dëgg la am déet ndax gisaguma ko waaye su ma ko gisee si samay gët euh, bu ñu ko commencé di ci def rek boobaa muy Sénégal ak ñëpp ba ci ñun ñi sax dinañu wàcc am nenn noo xamante ne dinañu ko taxawee ndax loolu du nekk loo xamante ne dafay niru dëgg ak yoon ay jàmmaarloo yu mel nii rek jarul ñu ci di ci def yooyu yooyu bu ñu demee ba andi ay drone nag commencé di ko bàyyi muy wadd ci kaw askan wi wax dëgg ne fi yàlla loolu du du du du du du du daal nekk loo xamante ne dafay jaadu wala dañu koy rafetlu ci xar kanam bu Sénégal ndax loolu dafay dem bay ëpp loxo bu ñu amee ay drone yu ñu utiliser ak yooyu euh, mara deytaal yi loolu du pour fii ah loolu du du du pour du pour fii euh, tey jii nag actuellement ci Ngor. Euh, gis nga euh, ñii di takk der yi par équipe la ñu def ña ca kanam bu ñu demee ba sonn euh, wax dëgg neefa dañuy dañuy replier ñeneen ñi ci ginnaaw ñëwaat dem nañu àndi ay renfort parce que alignement bi ñu nekkee ci wetu jardin bi comme ni ngeen koy gisee wax dëgg neex fa yàlla ñii di waa gendarmerie seeni ay oto ñoom ñoo fees ci couloir bi bari fi lool lool lool lool lool wax dëgg def yàlla ñoom ñoo fi bari lool woo dañu renfort euh, du ñàkk nag xale yi ñoom ñoo ñoom ñoo dem ba sonal leen gis nga ñëw nañu boucler waat ci benn angle boo xamante ni moom moo nekk ci côté bi euh, di di di di du ñàkk xale yi ñoom ñooy génnaat foofu ndax xale yi da ngay jékki gis leen ñu taxawee benn angle sandi sandi sandi ñu gaze ñu wiiriwaat demaat taxawaat ca benn angle ba ca tesaat ñu ñu ñoom lañ ko jàppee seen digg ak ñi nga xam ñoom ñoo di takk dere te affaire Euh, dafay mel ni rek euh, saasu su ne euh, xale yi maanaam xaw ma stratégie laa ko mun a waxee wala dara wax dëgg de yàlla dañuy xeex génn fii dem fële ñii te boobu ak léegi gisoo ci xale yi wàññeeku lim bi dafay gën a takku rek. ndax ñoom itamit dañu def équipe ñenn ñi dañuy toog tuuti noppalu may ñeneen ñu ñu jëflante bu ko defee ñoo ñu rendu ñeneen ñëwaat moo tax boobu ba léegi ci suba ak léegi lañ leen di wax ngor li fi am ni lii moo fi am wàññeekuwul dafay gën di yokk xale yi ñu ngi gën di di di di di jàmmarloo takk der takk yi nag ci noonu la ñu dem ba xam yëf yi kat du mënta yem fii moo tax ñu woote waat ñoom itamit seen ak renfort ñu ñëw ngir gën a mën a ñoŋalaat seen ak Eh, taxawaay wala jàmmaarloo bi nga xamante ni ñu ngi koy def ci diggante ak eh, seen eh, xale yi muy ay jàmmaarloo yoo xam métti na gis nga ba tey coup de yi ñu ngi wëy di dal coup yi ñu ngi wëy di di dal xeex bi mu ngay wëy di am gis nga xoolal dóor nañu ko ca côté boobu te côté ba nga ko dóor ca kaw terrasse jàmbur la gisoo fa manifestant bu fa taxaw wala dara ñoom dañuy jékki rek dóor fu leen neex te xoolal ci kaw terrasse jàmbur bi ñu dóor lii bu amoon tey yëre yu ñu fa weer wala dara mu lakk ko euh, yàqal nit ñi seen ay matériel ak yooyu dafay nekk loo xam di doy waar la nañu xool balaa ñuy def dara ne ñu ko saytu xoolaat ko xam li ñuy def lan la parce que mënoo jékki rek dóor sa grenade lacrymogène euh, ci ci ci ci ci foofu ba pare euh, te doo xam lan moo fa lan moo fa nekk day nekk loo xamante ni lu lu doy waar la jamono ji ci ci diwaan bu Ngor nag noonu nga dañu koy dundee loolu moom moo fi am ci ay affrontement yoo xam dox na ci diggante population bu Ngor ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der jamono ji ñoom ñooy amal ay jàmmaarloo yu métti métti métti euh, gis ngeen beneen oto suma assistance ñëwaat na beneen oto suma assistance ñëwaat na du ñàkk am na keneen ku ci amal gaañu gaañu am na ñu ci aw wéy di am ay gaañu gaañu blessé yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi bari ci ci ci ci ci euh, biir Ngor nii jamono ji mooy mooy tukkee ci population bi ak ñi nga xam ñoom ñoo di woy takk déeri ay gaañu gaañu mi ngi woy di ay gaañu gaañu mi ngi mi ngi mi ngi wëy di am ci ci biir barab bi ñu ñu baal ñu tuuti rek ndax fii ñu nekkee ni jamono ji wax dëgg li ñu fiy dund saxaar si ak mm, di ko yi dafay metti loolu moom moo tax léeg-léeg fi di xaw di kii waaye xale yi ña ngay di xeex di boole kook ay jubilé yoo xamante ne ñi ngi koy amal ñi ngi ñi ngi xeex di jubilé ñi ngi xeex di jubilé ñi ngi xeex di jubilé léeg nga dégg ñu kii ba mu yàgg ñu taxaw yuuxu wooy demaat ca beneen côté ba xeexaat waa Ngor nag jamono ji ñoom ni ñu koy defee nii moom wax dëgg ne fa yàlla ah, jéggi na dayo wàññi wuñu dañuy yokku kon nag li nga xamante ni ñoo ñoo war a def médiation ba yëf yi tege ci suuf nañu xool ñu ñu waxtaanee ak population bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu waxtaan ko ba trouver terrain d'entente euh, ku ci nekk delluwaat sa kër ñoom gendarmerie ñu delluwaat seen seen liggéey continuer niñ ko doon amalee ak yooyu gis ngeen grenade lacrymogène ba tey yéen a koy gis ci kaw terrasse yi muy muy wàcce noonu ci ci ci kaw kër yi lañ koy dóor. ku ne xam na ngor nu mu nu bindoo am na ay immeuble yu fi nekk yu bëree bëri bëri mais dañuy jël grenade lacrymogène yi dóor ko ci euh, muy nekk loo xamante ne dafa dama am euh, policier limite bee ñu def ne dañ faa yàgg trop te te daaw ma gis lii dama doon gis euh, takk der yi ñoom taxawaay bi ñu am ni da xool su jëloon ay minute dëgg damay gis dañuy attaqué avancé ci ñi nga xam ne daanaka ñoo di booy mais dama gis limite ba la ñu am yàgg nañ fa lool lool lool lool te juguñ pour mën a jëm ci kaw ndaw yi kon côté boobu noonu lan moo foo xaw a nekk. ba gis takk deer yi effectif bi ñu yor ni maanaam euh, ñii di gendarmerie effectif bi ñu xaw a yor ni avancé wu ñu jëm ci ñi nga xam ne daanaka moo di booy donc li euh, nee la euh, kenn kenn kenn kenn xamul lu mu doon vraiment te gis ngeen gaa ñuy continuer di gën a yokk takk der yi nga xam ne daanaka gis naa leen sama beneen côté côté virage bi takk der yi oto yi dañoo ràngaloo bu baax ci kaw euh, nee na boo dañ ko barricade te mais lacrymogène yi est-ce que dina baax ci euh, kër nga xam ne daanaka euh, ñoo nekkee sur l'autre côté donc lii doon na loo xam ne mën naa ne métti na lool soo xool tout droit bi ni ma la ko yàgg di waxee rek tout droit bii nii ma taxaw nii takk der yi dañ fay gën a fees booy ci pàcc yi la ñu nekk booy ci koñ-koñaan yi la ñu nekk gën a mën a jàkkaarloog daanaka euh, ñi nga xam ne daanaka ñoo di euh, takk der yi te soo xool takk der ñu ngi continuer euh, di lancer li nga xam ne moo di ay lacrymogène teewul am na ñuy lancer ci tout droit bi am na ñuy ci gauche am na ñoo xam ne daanaka ñu ngi lancer droite am na xam ne ñu ngi lancer en arrière donc loolu loolu xam naa ne compliqué na donc ñu ci war a artu rek dañ ci artu parce que lii may gis nii billahi lii jeexagul lii may gis nii jeexagul de donc ñu ci war a wax rek nañ ci wax ñu arrêté situation bi nga xam ne gars yi ñu ngi ko dund fii ci diwaanu Ngor nee naa la tey ku wooroon di nga woori tey ñu wooroon dinañ woori de parce que li lii may gis nii euh, mën naa ne euh, booy yi euh, bàyyeeguñu booy yi bàyyeeguñu te oto yi ma leen waxoon ñoom tamit ñu ngi ci côté virage bi xam naa ne ñu ngi gën a avancé par benn maa ngi leen di seen am na leneen lu ma seenaan noonu de oto bi comme comme genre loo xam ne la boo xam ne benn weñ la boo xam ne ay chaîne moo ci nekk dafa mel ni loolaa gis gendarme bi moom la yor noonu di dem ci oto bi benn weñ boo xam ne euh, dafa def ay chaine xaw ma nag pour lan la exact mais gendarme bi mu ngi koy yor di dox noonu di dem ci euh, beneen oto bi te beneen oto bi tamit gën a avancé euh, pour mën a gën a jege ñi nga xam ne yaa naka yéen moo di yeneen takk déedéet pour gën leen renforcer li nga xam ne moo di ay lacrymogène mais teewul gaa yaa ngi dóor ci yeneen côté kon gaa yi dañuy dóor xam ne ñu ngi dóor gauche ak droite ñu ngi continuer di gis ngeen takk der yi noonu ñoom ñu ngi avancé euh, di gën a euh, bari ci euh, sur l'autre côté di gën a dóor li nga xam ne daanaka moo di ay lacrymogènes yi donc ñun moom xam naa ne jël nañ ba doyal ñun moom xam naa ne jël jël jël jël nañ jël nañ ba doyal vraiment. donc euh, xam naa euh, donc yéen képp ku jël sama direct rek xam naa ne en direct Feeling Dakar TV moo la koy jox rek euh, maa ngi koy seen bu baax a baax a baax a baax ici c'est Feeling Dakar TV moo leen di jox la affaire bi en temps réel ak show fi nga xam ne daanaka muy xewee fi nga xam ne daanaka moo di ci diwaanu Ngor li kéemaan na lii yéeme na lool lool lool lool bu lool nombre vous êtes nombreux di fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV gars yi. continuer leen di like affaire bi rek dina ko gën a toppal euh, ba mu euh, jeex a jeex a jeex a jeex a jeex a jeex donc Ali ma bàyyi la nga wéyal rek laataak ngay may ñëwaat euh, mën a dem selmu ji pour gën a mën a nekkaat ci affaire yi pour gën a mën a jox gars yi mais damaa gis am na benn oto bi avancé noonu lan moo nekk ci oto boobu Ali. voilà mbokk yi comme ni ngeen ko gisee rek actuellement ba léegi ci ci biir Ngor. ah affrontement yi mu ngay woy di am boo xoolee ca kaw nële ñu ngay wëy di sox seedi ay grenade lacrymogène di ko tirer muy dem gis nga ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi tiire ñi ngi woy di tiire xolo ndaysaan ndaw sale eh, ca kaw terrasse ba la ko grenade bi fekk mu daal di daw bàyyi fa yére ya nga xamante ne doon na ko weeri sax eh, bàyyi na ko fa daal di daw gis ngeen eh, ñu ngi góoy ba léegi ci biir wuruma ko ngor di di amal ay jàmmaarloo yoo xamante ni mi ngi am foofu ci biir barab ba ba léegi yéen a koy gis noonu gis ngeen ci biir ngor ba léegi ñu ngi ñu ngi wéy di jàmmaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di di di di xale yi gis ngeen ko noonu gis nga euh, ñii di takk der yi ñoom ñu ngay woy di ñoŋalaat seen ak taxawaay euh, ci ci ci ci ci biir koñ yi ak yooyu wax dëgg ne fa yàlla nekk na loo xamante ni nag jamono ji lu lu doy waar la gis ngeen ñoom ñu ngi noonu di di avancé di di replier waat demaat ci beneen côté bi ndax xale yi euh, ni ñuy woy di jàmmaarloo ko ñoom dafa jéggi dayo xale yi bàyyiwuñ benn yoon gis nga oto suma assistance bi mi ngi noonu ci kaw am na ay ñenn ñoo xam ay blessé lañu dañuy dem mu daal di leen jëli pour defal leen ay premiers soins wala ñu yóbbu leen ca barab ba daal di leen saytu seen yaram faj leen ba ba ba ñu ba noonu nag gis nga ñi nga xamante ne ñoo di waa gendarmerie ñoom ñu ngay replier di di deltuwaat defaraat seen ak taxawaay gis nga ñëwaat nañu taxaw ba ci mun nañ ne fii ñu nekkee ñu ñu jege nañ ñu fii lool waaye ñun. mënuñu lu dul rek euh, ñu ñu jéem a xool nu ñuy lakkatoo ndànk-ndànk pour bañ rek euh, ñu ñu ñu gis ñu fi ñu nekkee ndax buñ ñu fi gisee rek mun nañ ñu fi jëlee euh, wàccee ñu fi loolu moom moo taxate bu boobaa rek image yu bari yi ngeen doon gis du ngeen ko mën di amaat moo tax dañuy xaw a sax lakkatu pour rek ngeen di mën di di di di gisee li nga xam moom mooy xew foofu. am na ci keneen koo xam ne comme euh, day romb di dox doxam di dem gàddu saagam kii da lay leer ni dafay julli ji wala muy am lu muy préparé mais woolu nañ ko pour pour pour pour am yenn yu ñu ko laaj ci posé ko ay question nañu ko bàyyi mu dem euh, ndax moom boo ko xoolee rek di nga xam ne yoonam nekkul ci li nga xamante ni moom mooy xew fii actuellement gis nga ma ngay waxtaan ak gendarme gendarme bi mu di ko wax pour mu pour mu jaare ca beneen côté ba ndax fii bu fa jaaree wóorul gis nga voilà pour loolu euh, nag dinaa d'accord euh, pour sécurité am nga ne ko sax mu wiiri jaare nale mais euh, woo nit mu ñëw nga jàpp ko dugal sa oto te yoonam nekkul ci li nga xamante ne moom mooy xew fi wax dëgg neex daal du dëppoo ak yoon gendarmerie bi geste bu mu def mun nañ ko saluer sax waaye am na ñeneen ñoo xam ñu ngi ci biir oto bi ba tey ñu téye leen comme ni ñu def kii la ñu ko def ay moroomam ñoo koy woo mu ñu ñu ñëw fooy kii ak yooyu ñu jàpp daal di dugal ci biir oto ba ñoom nag ñëwoon nañu tax gis nga ñi nga defaat seen rang bu jub xocc daal di daal di eh, eh, yor seen ay prothèse ak seen ay liif yow sa liif yi ngeen yor xamu ko ngeen koy dóor xam nga ñu ngi noonu nag defaraat seen ak di di di di demaat defaat nañu rang di demaat fee nga xamante ni fa la yi gën a takkarnaase mooy renfort bi nga xam moom moo mujj ñëw ñoom nag eh, def nañ seen rang bu jub di di di dem fee nga xamante ni fa la affaire yi nekkee Eh, tey jii nag ci biir Ngor xaw ma jigéen ji léttu ju mbaa góor muy watu tey di ngeen toog xaar ba yëf yi jeex ndax fii gisuma benn place wala bërëb boo xamante ne rek ubbeeku na fi eh, pour nga mën a eh, defar sa yenn besoin yi nga xam wala nga wàcce li nga xam moom moo di feetu korite Ngor tey jii ñu jëndagul ganaar xoola da ngeen ko jënd démb mbaa bërki démb denc ko parce que tey dem ak dikk ci biir Ngor bi amu fi nit demu fi salaw nit demu fi coiffé ji wala dara rek la amagul ci biir Ngor ndax ay jàmmaarloo yoo xamante ni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 dinga am info yu leer ci people et sport politique Dakar